heure bu ñu yeewoo. sëñ bi lan nga wax nga ni man bee rek metti si ñoo xamante ni am na yoo xam ne ñoom ñoo la waroon téye di la sécuriser. jàpp benn booy bu ndaw war na sëñ Bamba jàpp leen dóor ay dóor yu metti loo xam ne tagul si benn yoon ñun jouru dëj Mouhamed bi ba si dóor bi ñun dañoo toog ñu ñëw fekk ñu fi dóor ay lacrymogène lii kenn kenn xamul lii kenn xamul ban dëkk la war na sëriñ Touba lii kenn xamul benn ban dëkk la ñun inspiré ñun inspiré ñun inspiré xamal la ñu war def tëral suñu bopp rek ñu dóor ñu war na sëñ Bamba ñoo xam ne ko ñu jàpp fii ne instant koy maltraité seen oto nii nii nii tax xeebuñu lii ñu def tey ñii ñun bañuñu ci dara fii ba. dafa am kuñ ci jàpp dafa am kuñ ci jàpp. am na benn paa a baay ci boppam nii nii man dañ ma naroon a fël moom mooy leen. ci lañ jàpp nañu paa ñu rey booy ñu ñu ñu ñu nekkee ñu ñëwaat di def dee mënuñoo booleeg ñàkk mag ñooy leen ngi ni door pour lan la ñoo jërëjëf mbokk yi ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci pikin ci dëju ki nga xamante ne nii moo di euh, Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. waa police Pikine la waaw. jërëjëf mbokk internet yi comme ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xam ne moo daal di ñàkk bakkanam yéen a ngi koy gis nag li nga xamante ne nii moom moo fi xew nekk lu doy waar ndax bu ñu demee ba nit nekk ci naqar ay lacrymogène ay dóore di lacrymo xale yaa ngi xeex ñëpp ngi xeexoo solo nañu nit ñi a ngi daw lacrymogène yaa ngi nii wax dëgg yàlla li metti na métti na trop reneen doomu jàmbur ji ñu rob ko bari ñu policiers yi ñëw di leen ñaaw di leen tur di leen sol ay ko du dëkk du yoon nañu sonn nañu sonn nañu mbay doomu jàmbur ñuy rey lii war nañ wax lii war nañ wax mi ngi noonu war wax nañ ko sonn nañu sonn nañu sonn nañ sonn nañ dañu arrêté dañu arrêté lii ngi defal suñu doom yi di muñ di leen defal suñu doom yi démb ba léegi ñu leen defal nañu dal nga rey suñu doom ba pare ñuy sang dem di suuli ngeen attaqué leen waat ñoom ñooy ban am ban monde lañ nekk léegi ban adduna lañ nekk léegi ñoom lan lañ bëgg lan lañ nañ ñem sa amer rey ko mais bu ñu reyaale si ban adduna lañ nekk yow dangay tooñ ni ka pare rey ko ñoom la ñuy seet si moom gisuñu ko jëlee nu fekk nañ ko këram jëlee ko këram dóor ko yóbbu ko technopole ba dóor ko rey ko yóbbu yóbbu ko hôpital indil nañ ko jël nañ suñu suñu néew suuli nañu waa jàmm naa nañ ñu may jàmm mais doxaat ñoo fekkaat ñu fu ñuy dajee suñu dëj di lekk ñu attaqué wañ ak ay lacrymogène dañu rey ay borom yi xool la ñun ay nit lañ ay jaabi yàlla lañ buñ ñu rey buñ ñu rey lii nag leneen lu ci am ñoo koy nit seen bopp buñ ñu rey na ñu may jàmm d'accord jërëjëf jërëjëf internet yi ñu droit ñëw si dëkk jàmbur xam nga di di di di dóor ay lacrymogène du yoon ko quoi bu dul dara ñu xool ñi dañoo am métit ba pare bu leen teg beneen métit policiers yi xam nga nañu bàyyi di téye gars yi di rey nit bu defee loolu yoon da nga koy yóbbu si kii nii at si yoon yoon atte ko mais du noonu c'est pas professionnel quoi. Euh, non justice nous euh, xam nous voulons la justice quoi vraiment nu sommes marre nous voulons la justice Pikine gars yi dañoo respecté wul te ay noobu loo fi dëkk ay jàmbaar ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ñun Pikine lañu gëm ñun Pikine lañu sago xam nga mais nit bu defee lu yoon yóbbu ko si yoon yoon atte ko mais pas nga koy fitnaal yàlla bëggul kuy fitnaal doomu aadama ba pare non seulement ñi ñoo si dëju jàmbur ba pare di dóor di dóor yi loolu du yoon du benn yoon du yoon ki ñu rey nii sama jarbaat la sama jarbaat la sama lépp la xamul dara lu dul liggéey liggéey rek la xam te moo yoroon ay famem lii dafa ñaaw ki nga boo jàppee nit bu nekkul si yoon da nga koy téye yóbbu ko si yoon ñu jaarale ko si yoon waaye di dóor nit yóbbu ko ba buntu police naan dafa yomb yóbbu ko ba continuer moom ba technopole di ko dóor ba damm ay faaram. dafa metti toj ndaalu bopp bi xale ndaw. lekkagul dara ci àddinaam te famem yaayam ak papaam bu yàggul rek la ñu génn àddi dete moom moo yor ay famem lii dafa ñaaw léegi léegi la ñu doon tànn ay la chromosome dañoo daw renfort la ñu yor ñu ngi nii rey ba pare waxatuñ si dara ñu indi wat ay renfort di ni kii ñu woor ba woon dañ ko tàmm du bii yoon de du bii yoon dañ ko def dañ ko tàmm habitude la ci ñoom dañuy dóor dañ lay fekk sa biir kër dóor la ba nga bëgg a dee saboté la yàq say bagage toroxal ki li ñu def ni teguñu ko fenn dañ si war a wax nguur gu bees gi dañ si war a wax nag ñu jël mesure am ñu benn droit di dóor ku lan ñuy dóor xale bi responsable la xale bi responsable la mooy mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne ni moo di Mouhamed nekk jeune bi nga xamante ni moo fi génn àdduna waaye gis ngeen mbir mi dafa euh, mujjee metti ndax gis ngeen ci dëj bi ay lacrymogène la lañu fiy dóor xeex commencé fi ay jàppal bàyyi mu nekk loo xamante ne nii ah, metti na euh, fi mu nekk nii euh, nañu ki nga xamante. Hmm. dóor leen ba rey leen teguñu ko leen ñi ñoo la xale ci boppam Modou ñu indi fi waruñu ko indi waa yoon Modou bàyyi faal la Modou dooñul kenn dugul ci kenn moo ko amee taayaa na yàlla nit ku baax lañ rey nit ku baax lañ yóbbu teguñu ko fenn lañ def Modou ñoo ngi indiwaat ko fii nañ bàyyi jàmbu defu leen dara Modou Giraar kenn la yéen a koy dégg nañ bàyyi jàmbur deful kenn leen mhm. metti na am na taay nañ ñëpp baax na yaru na nii fekk nañ ko fa fekk ci loo xamante ne yorul dara dara social dong la doon def ñu rey ko nii nii moo ngi noonu li nañu metti xaritam yi xaritam boo gisee ñu def li lii moo leen metti niñ ko def nii dañ kaa rey rey bu ñaaw rey bu ñaaw lañ ko rey ba pare ñëwaat toroxoñu suñu biir dëj waaye yéen nañu xaar léegi laaj nañ la ndax luwaa am na ci dëkk bi nag lii luwaa la wax leen nag lii nag naqar bii nag mënuñu kaa ci àdduna mënuñu kaa fàtte. léegi suñu ndey yaa ñu jooy depuis une semaine ñu rey ko tëj ko ñu rey ko tëj ko mënuñoo xamee médecin ci lu mu nekk buñ demee di ko seetu duñ ñu may sax ñu gis am médecin lan ñoo gën a am lu ñu ñu bokk moom ah boobu dee la ah, ñu nëbb ko une semaine yàlla ñu mu dee ñu nëbb ko door ay birig yeeg lépp lañ ko doon dóor Ameth Ndiaye daa attan loolu. naka ni boobu sama xarit bi ma nekk si biir oto bi may naan ñii ko ñuy dóor dóor yi métti na mu mel ay xeer la ñuy dóor si biir oto bi ñuy dóor maay na ay waay ñuy soxor nañ ko ñuy dóor si oto bi yaagu tuuti Ibrahima Ndiaye ñoo ne ma sa xarit bi la la gars yi jàpp fee ma ne ko fii lañ romb di dóor taay si jour bi la dee Ameth Ndiaye si jour bi si jour bi la dee sama xarit boobu bi la dee. massa massa bilaay metti na. metti na metti na ñàkk sa mbokk ba pare teg ci di dund li nga xamante ne nii moo di naqar ak fitna ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xamante ne nii yaakaar naa démb gis ngeen image yi ci wasaare tey jii la ñu ñëwaatoon ci dëj bi ndax magam boobu wóoluñu fi puusal puusal ma jaar. ma ne ko daw sonko mu daw dugg si biir oto bi. billaahi 23 heures la ko rey. billahi te na boo leen ko door ba mu dee. fii xeeru pavé leen ko dóor ci femme amee daa tuuti amee maa ko ëpp xoolal man nu ma tooy billahi mais dañuy rey rek mais duñ taw ñoo Diop lañ sant Diop parce que Serigne Touba Mbacké billahi wallahi taalaay mardi lañ ko rey mardi dina ndësal affaire bi dina ndësal affaire ba kañ ba kañ yi daa war a jeex Pikine grand daa war a jeex Pikine massa massa doy na waar massa billahi metti na euh, ñu jékki-jékki ko kon li ma doon wax sànq gis ngeen leen policiers ay criminel lañu ay assassin lañu. gis nga lii état état na ci jóg. parce que munoo nekk ci dëj même boo amee ak ay booy problème fële mais nga xam ne yow yaa rey ki dem mais waroo ñëwaat ba ci dëj bi. imaam ya fa toog ak lépp nga di fa dóor ay lacrymogène mais lii lan lañ bari Sénégal lañ ne bari lii lii lan la non yeneen yeneen bakkan lañ bëgg ñoom nañ sivilu ñëw bu ñu fekkee ay góor lañu nañ sivilu ñu ñëw nañ ko def ñu xool wallaahi atum ko duñ def comme jigéen nañ ko def ñu ñëw waaye ñu xaj la ñu way jërë ngeen jëf bokk internet yaakaar naa ne fu mu nekk nii eh, gis ngeen li nga xam ne moo xew file eh, ci Pikine dégg ngeen nag magam bi daal dinay jot ci li nga wax ci li nga xamante ni moo di autopsie beeg yooyu fi mu nekk nii gis ngeen li nga xam ne moom moo fi xew ñu ngi taxaw ak koo xam ne mag la aussi si famille bi dañ koy bàyyi rek moom mu tamit mu wax ni mu ko gis. de m'exprimer en français. Euh, c'est une population meurtrie, traumatisée, qui vient juste d'enterrer son fils, l'un des dignes fils de ce quartier, moo Diop. Euh, nous l'avons enterré parce qu'effectivement, il est d'une bavure policière. Les policiers, en l'amenant, l'ont traumatisé. Et nous avons constaté dans le certificat de genre de mort euh, qu'il a été euh, euh, tué d'une mort très violente. Selon le médecin légiste, euh, il subit beaucoup de traumatismes, euh, des fractures euh, de quelques côtes, des fractures crânières, ce que nous déplorons. Et nous espérons que le procureur de la République sera saisi, va s'autosaisir même pour que justice soit faite. Parce que vous avez vu comment les jeunes sont excités aujourd'hui. Parce que des de leurs est parti dans des conditions très douloureuses. Nous avons espoir en notre justice. Nous avons l'espoir qu'au lendemain de cette élection, cette ère nouvelle qui vient de s'ouvrir dans notre pays, avec l'arrivée de M. Diomaye Faye à la tête de ce pays, qu'il n'y aurait jamais plus d'impunité dans ce pays. Que cessent toutes ces bavures policières une bonne fois pour toutes. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de prendre à bras le corps cette situation-là, pour que cela puisse s'arrêter à ce mort-là. Sinon, Sinon, nous allons compter d'autres cadavres. Parce que vous voyez ces jeunes, ils ne sont pas là pour, euh, euh, euh faire les doux à la police. Ce qui est sûr et certain, tout policier qui ose s'aventurer au dehors dans ces jours-là risque sa vie. Et c'est dommage que les, les, les autorités aujourd'hui entendent le cri de cœur des populations entendre le cri de cœur de ces jeunes et qu'on ne fasse pas quelque en tout cas, arrêter l'hémorragie quand il est temps. En tout cas, nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que ceux qui sont artisans de cette bavure policière, que ceux qui ont les messieurs de sang aujourd'hui, le sang de, de, de, de, de Mohamed que ces gens-là soient traduits en euh, ngeen euh, li nga xamante ne ni moo di euh, kilifa gi moom tamit daal dinay wax waxaale li nga xamante ne ni moo am ci autopsie bi waaye ci ki nga xam ne moo di génn àdduna Mouhamed Diop moom tamit gis ngeen vidéo yi ci wasaare bi dugaloon nañu ko gis ngeen li nga xam ne tey nag moom moo fi xew ci jour bi nga xamante ne ni moom la ko denc di ko saraxal mu nekk loo ni lu metti la. ndax ñàkk sa mbokk ba pare boole ci ak ay xeex wala ay lacrymogène la lu day xaw a metti nañu ñaanal ki nga xam ne moom moo fi euh, bàyyeekoo tey yàlla yërëm ko xare ko aljanay si fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge mais tey nit du ñàkk ba pare nga koy gën a dolli loo xamante ne ni kenn du xam kenn du mën a. wan ñu yaa ngi gis ne si dëj lañ nekk dañu dem suulu ji lii léegi léegi ñëw même pas une heure de temps ñu sànni ñu ko mu ngi nii lu amul preuve bu leer naññee ñoom ñoo ko sànni léegi ñun lii senegal la lii lii lii nii si ban réew lañ nekk quoi sa waay ñii bakkan lañ jël bakkan bi ñu jël kii nii barke leeru arxuraan laa la wax de man man mii man sama jëmma bopp maa mën a seere ci moom lu bari ndax dama doon nekk moom tout le doon defal ay jaamu yàlla nag lu baax rek barke leeru alxuraan koor gi nii ba nu koor gi commencé ba nu muy jeexee day xëy di joxe ndogu barke Sey Ibra di ñaanal gaay yi jàmm ak wérgu yaram ak gudd fan te moom tay xool ko Fall yow Fall ñu nekkuñu Sénégal waaye waaye yow waaye yow mi daa nekk réew. Eh, eh, lii teel lay soog a feeñ soxna si lii man victime laa mos nañ ma ko def def nañ ma lii si xam na laa jotee ñoom. dañoo ñëw fekk ma si milieu di ma laaj carte d'identité ma ne ko présente toi indicateur la ñuy àndal dañuy doon policier ñaar ñu ànd ak lu ma cinq police kii indicateur ma ne ko présenté sa kii sa carte professionnelle mu ne ma yoo xam nga lépp di ma wax la ma ne ko eh man xaw ma la li ma sëkk yoo xam lan la carte d'identité nga woon ma sa carte ñu dóor ma xoolal mu dóor ma may xeex ak moom de ñu yóbbu ma ba fële technopole ñoom ñëpp téye ma man ak man la Birane Faye ak benn gel téye ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu ba sama bët yi di reetal est-ce que ma la gaañu ba pare jël ñaari paquetu yamba sëf ko keneen ki biraan ne ko moo ko moom man ñu ne ma veillé est-ce ma la lii c'est pas la première fois kii la ñett lañ jàlloo la Henri ak beneen jaago seen brigade boobu kese a xaaraar ñoom kese la waaw te duñ dara ay sàcc lañ man maa ko wax ay sàcc lañ ay doome xaram pire lañ. doom d'accord gaa ñëwal xalil euh, ñëwal tuuti ndax dégg naa ñu naan kii bu deewee xaw ma euh, soxna si nga xamante ne nii moom fi mu nekk nii sonn na du ngeen ko yóbbu hôpital du ngeen ko woote. damay laaj ba xam man damay laaj man ba xam policier am nañ droit ñëw fi te amuñu autorisation. mun nañ génn te dañu am PV commissaire nee na doom génn nañ te amuñu PV loolu mun na nekk mun nañ rey suñu nit boom ko rey ko ma mu dee ñu bëgg ñoo reyaat waaye ñun ban réew lañ ne. xoolal man mënu ma wax sama xol dafa tooy. mënu ma wax yóbbu ko mu dem dooma raam. naqar par ñu def suñu dëj ngeen ñëw di yàq suñu dëj def ay gërënaat ñun ci kaw suuf barki Sëriñ Fall yàlla nañu yàlla àttak ñun gàtt nañ suñu àq trop rey kii ba pare ñëw yàq suñu dëj ay magi jëm ba ngoon ñu daanu dafa nga loolu rafet na sunu àq na leen dal barke Sëriñ Fall sunu àq fii ku fi dee rek ñoom ñoo leen yóbbu lii àq na metti na trop gis ngeen li nga xam ne moo xew ci jouru dëju bu Mouhamed. voilà salaamaaleykum waa Wasaare TV lii na ngeen fexe mu dem si Jomaay fay ak président Ousmane Sonko parce que lii dafa war a yegg si ñoom ñun ñun ñu ngeen di gis tey ji ñu taxaw fii nii ñun ñoo xeex biir Pikine bu manifestation amee bu injustice amee bu ñu jàppee Sonko ba Adji Sarr defee lu ko neex keneen ak keneen ak keneen ñun ñoo doon wàcc terrain bi di xeex tey nag déguisé wuñ duñ kagulewu yéen yéen a fi nekk bu fekkee sax dañ ñoo jàpp tey deux jours na ngeen génnee xam ne dañ doon dañ doon xeex dignement on veut la police nous voulons la gendarmerie et nous réclamons la justice pour Ahmed Taya na ko ñëpp yëg amul diaspora bi na ñëpp xam lii na ko Mollah Morgun live ñëpp jot si lii du yoon lii gis nga buñ ko bàyyi bu jàll dinañ reyaat beneen beneen sën dañoo yaakaar ne ñun ay ay ay ay malfaiteur lañ ñun duñ ay malfaiteur la ay soudeur lañ ñun état dañoo reconnaître lu garaaw laa wax policiers yi dañuy saagaloo ñi dañ nice quoi jërëjëf jërëjëf fi mu nekk nii seen xol moo neexul ndax comme ni ma koy waxee nga ñàkk sa doom ba pare mbir yu mel nii ñëwaat dal ci sa kaw kilifa gi wax nga ne. waaw ma ne man Sénégal man dama xamatul ñun si ban réew la ñu ne. mu noo rey nit say élément rey nit ba pare police dóor nit ba mu dee si ñuy dëj ñu fekk ñu fa di dóor ay lacrymogène te dëj bi am na fi ay nit ñoo xam ne tey jii daanu nañ daanu boo xam ne ni tey lu leen mënta dal responsable bi ñoom la. waaw ndax tey mënuñu rey ñun suñu rax ñu am lu ñu metti dem suuli ba ñëw ñu fekkaat ñu fi ñu dóor ay lacrymogène xale yu ndaw yi lacrymogène yi si biir kër yi xale yu ndaw yeeg liir yi ak maire yi màgget ah mais mais ñun si lan la ñu nekk lan la ñun kenn xamatul lan la rey suñu rakk ñuy jooy noppee ñu fekkaat ñu si biir dëj bi duñu dóor ay lii nañ si wax wala ñoom léegi ah suñu bakkan xoola dañ leen koy jaay boo bëggee dëgg-dëgg suñu bakkan dañ leen koy jaay waaw d'accord jërëjëf yaakaar naa ne yéen a ngi gis li nga xamante ni moo di image yi nga xam ne moo xew ci dëju Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di euh, bàyyeekoo gannaaw démb bi ñu fi ñëwee tey nag ñu xëyaatoon ñëw ci li nga xam ne moo di sarax bi waaye euh, li nga xamante ni moom ngeen fii gis daal di nay euh, doy lool ndax bu ñu demee ba dëj ay lacrymogène di ci am ci weeru koor bi nga xam ne am na ay mag ñu fi nekk am na ñeneen ñoo xamante ni feebar nañu fi kon mbir moom mu doy na waar nañu ki nga xamante ne ni moom moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko xare ko aljannay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge euh, gis ngeen nag ñun dañu ñëwoon rek ngir bokk ak famille bi euh, tiis bi waaye bokk ak ñoom naqar bi waaye fu mu nekk nii yaakaar naa ne euh, tiis bi ak naqar bi dafa nekk loo xam ne dafa booloo double ci li nga xam ne moo di famille Mouhamed mi nga xam ne mi xam ne moo fi daal di jóge kon yéen a ko gisandoo yéen bokk internet yi ci li nga xamante ni moo di ci image yi kon na ci président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di wax na génne kàddu jëmale ko ci balaa moo gën a metti wala balaa moo gën a tiis ndax bu demee nii wala mu gën a lii defee nii rek xëy na dina yegg foo xamante ne nii yaakaaruñu ko woon comme son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye bi mooy première kaawam boo xamante ne nii gis nañu mu metti lool kon ñu ngi koy ñaan bisabilillah mu jàpp ci teel ci àddu balaa moo yegg foo xamante ne nii duñu ko fa foogee ndax bu ñu demee bu ay dëj lacrymogène di ci am xeex di ci am fayantoo di ci am wax rek xëy na dina egg foo xam ne fay yuuxu dafañ foogee wutoon loo xam ne dina metti lool ci côté yëpp nag ci côté ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy famille waa ji ci ñi nga xamante ni moo day ay xaritam ci côté ñi nga xamante ne ñoo yor sécurité Sénégal kon ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye ñu ngi lay ñaan rek nga gaaw addu ci li nga xamante ne ni moo xew Pikine ci dëju ki nga xamante ne moo di Mouhamed di jeune bi nga xam ne moom moo fii dal di bàyyeekoo comme ni ngeen koy gisee jël nañu famille bi jël nañu magam jël nañu tamit ñi nga xamante ñuy wax ci autopsie bi nga xamante ne ni daal dinay génn kon yéen a gis image yaa ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci seen site bi di wasaare di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah ak yeneen i actualité ak système benn taalibe sëñ Abdoul Karim Mbacke bu mag bi jaajëf. ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax. naka la. tur bi Iba Diop la. Kebe Diop nga nekk grand frère ci Mouhamed mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo nga yoroon li nga xam ne moo di autopsie yooyu ndax mën nga ñu wax ci kayitu autopsie bi lan la génne ak yi nga xam ne moo xewoon ci hôpital bi. waaw li si hôpital ba mooy daanaka affaire torture la rek jël nañ xale bi dóor nañ ko dóor ba daanaka biñ koy yóbbu hôpital sax presque dee na la ñuy wax rek bi ñu ñëwaatee ñu def li ñu war a def kayit autopsie bi génn bi autopsie bi génn tamit wanewul lu dul ay yax yu dammook ay faar yu damm ay mbagg yu damm. yooyu dong moom lañ fi wane te bu ñu wanee lool tamit kuy autopsie dafa doon lu leer loo xamante ne ñun mënuñu si dara mënuñu si dara waaw rayal nañ ñu nag suñu rakk koo xam ne amaloon nañu njëriñ njëriñ la ñu amaloon ndax euh, daanaka suñu lu bëri moo ko yoroon ndax mu ngi liggéey mu ngi def lu mu war a def ñun fu mu war a jaar ñun mu ngi jaar ak ñun foofu autopsie nag lu mu génnee dafa doy waar lool lool sax dama doon sax ragala a wane affaire autopsie boobu faar yu damm bëri ay fracture autopsie bi li mu ngi nii léegi léegi dinaa la ko jox nga xool ko ndax loolu ku ko xool xam ni carrément te dañ leen tooñ ba ci kanamu yàlla li ñu leen toojee fekk naa la si biir néeg yaa ngi ndogg sa ndogg mais jarul ñu lay takkal bu ñu amee CO soupçon nañ ñëw def li ñu war a def te bu ñuy dugg si kër war nañ am mandat bi ñuy dugg amuñu mandaa amuñu dara mënoo dugg kër jàmb rek yuuxu saaga dóor li nga bëgg amoo ko nga ni dañ may jox lii nga saaga nit mu fayu nga ni da ngaa réew nga yëpp ko dem si oto yóbbu ko mais lan mooy firndeel que ne ay homme de tenue la ndax dañu présenté carte wala dañu soloon tenue wala nu mu demee. Euh, ak lu ñu ma ñàkk présenté carte man bi ma ñëwee ñu ma carte ndax dama ñëw fekk ñu jël booy yi ba yóbbu leen bi ñuy génnee booy yi man ci laa yem dégg ak menaces yi ñu leen doon def ak saaga yeeg dinañ leen yóbbu loolu man dégg naa ko ci man bañ leen yóbboo nag bañ demee police nag man xam naa ñoo xam ne ay policier lañ loolu man xam naa ko ci te gis naa ko ci te ñoo xam ne am ñeneen ñoo xam ne ñoom it ay policiers am na si ay ASP ñoom ñëpp xam nañ seen tur mën na nañoo tudd seen tur benn par benn ndax xam nañ seen tur ñoom ñëpp waaw. bi nga xamee ne te ne gis nga ko moom euh, maanaam yaramam lan fa la am ay gaañu gaañu. man avant autopsie di am biñ koy njëkk a évacuer di ko yóbbu dalal jàmm man ma nekkandoo ak ñoom ak ci biir li ma nekkandoo ak ñoom ak ci biir yëpp di ko yóbbu man kii laa gis si moom lu ma gis si moom daal man gis naa ne yaram bi tëccu na. loxo bi neewi na man xam yaram bi yëpp toj na xam naa ni kii dafa damm loolu xam naa ko ci moom mais biñ demee nag autopsie bi nag moom moo leeral yenn yi waaw mais lan moo li ndax gis nañu ba ci jouru dëj bi ay lacrymogène ak yeneen ak yeneen di ci xew. xam nga policiers yi dañ ñoo tooñ bëgguñu tooñaat ñaari yoon mu xam xamee nag moom mu xameetu nit ñi la mu xameetu nit ñi la. ndax Mouhamed moom moo ji nit ñi teraanga c'est ku ne teraanga bi nga xamee ne loolu am na ñu am lu leen metti lool yoon war a def liggéeyam yoon defatul liggéeyam ñëw ba si biir dëj bi di fi dóoraat ay lacrymogène loolu teguñu ko fenn loolu teguñu ko fenn gis nga ni ñëw ba si dëj di fa dóor ay lacrymogène di jàmmarloo xale yi xale yi il faut ñu fayu ñoom tamit li dañoo am lu leen metti ndax ku leen amal njëriñ lañ def te yaakaar naa nag dañoo nekk si. nguur gu bees nguur gu bees yi nag war na mën a def liggéeyam lii war na si mën a taxaw te yaakaar naa bii mooy seen première cas war nañ see mën a taxaw ndax lii lañ doon séntu si ñoom ndax lii lañ doon xeex ba ñu jox leen nguur gi kon kat nañu def seen liggéey. d'accord lan nga mën a jox ay kàddu seede ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. Mouhamed dafa di nit ku baax Mouhamed buggul ku mer buggul ku ñàkk man magam laa ñoo bokk ndey baay dama yor jabar yor yi doom Mouhamed dafa ma teggil sama lépp. lépp la ma Mouhamed eggul ki taxawoon léegi wéeru ma nii sama doom la mu Mouhamed moo leen yor moo leen defar lu nekk moo leen koy defar su ma leen jox sax dafa naan bàyyi leen koor gi mooy joxe ndogu mooy joxe xëdd mooy joxe lu ñu togg ba fee mu jaral ko bëgg joxe moo ko jaral mu dem sa daaru fee problème bi amee di fa segg ndogu di joxe xoolul kenn ko ko jox dërëm wala ñaar dërëm lu mu yar ci ay xaram di jaay di yar ay ginaaram di jaay lu mu mu koy bokk ak nit ñi di ko bokk ak ñun ñii waaw. mais naka la demee fi ngeen ko yóbbu fan nañ ko yóbbu hôpital ndax moom ci yoon bi la ñàkkee bakkanam kanam wala ci hôpital bi la ñàkkee ba kanam ndax biñ ko yóbbu hôpital moom waxul deful dara biñ ko yóbbu hôpital ba ni mu gaañoo amul benn lenn lu mu wax waaw niñ ko yóbbu hôpital ba ñuy wax waxul dara waaw waaw. d'accord comme fi mu nekk nii yaakaar naa ne fi mbir mi mu ngi gën a metti dañu lay jaajëfal rek di la jaale di la saw ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax. yaay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Seynabou Seck. bu lan nga ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi dal di bàyyeekoo. yaayam laa parce que maa ngi ñu bokk ndey ak sama rakk la waaw Ahmed sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal dal ci seen kaw di la ma saw bu baax a baax yan kàddu yu sedd rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di jóge Ahmed dafa doonoon doom ju baax. wax dëgg yàlla ak yonente bi gëm boppam bëgg liggéey xoolul alalu kenn waaye dañ ma woo ma nekk kër Mbay Fall ñu ne ma yaay Amet dañ ko jàpp ma ne ko lan la def mu ne deful dara de dañ leen fekk foofu rek bi ñuy ndogu policier ñëw dugg fekk leen fa jàpp leen di leen dóor di leen palpe fekk ñu ci ñoom dara di leen dóor ah ma ne ko loolu du yoon ma toogaat ba ci kanam ñu ne ma yóbbu nañ leen ma ne ko fu ñu leen yóbbu mu ne nee na dañ leen yóbbu police ba delloowaat leen ma ne ko déedéet ma toog a toog a toog ba min wi jot sama doom bu jigéen bi woo na ne ma ah yaay yóbbu nañ leen technopole de waaye dañ leen a dóor a dóor a dóor ba amet daal mu ngi ci diggante dund ak dee wallaahi nee na noonu ñu jël ko yóbbu ko hôpital bu ñu dem nag duñ ko jël hôpital bu ñu dem duñ ko jël ñu mujjee nag dem principal bi ñu demee lañ ko dugal bi ñu dugalee Amet ñun bu ñu buggee dem gis Amet sax ñu bañ ñu ne duñu dugg pour gis ko mu metti lool nag waaw ñu naqar lu ko torop nag wax dëgg yàlla ak yonente waaw mu doonoon soutien de famille yor ay rakam yor ay magam man mi di wax ak yow mu yor ma lu ma soxla suba ba ngoon mu defal ma ko moom Amet bu yàggul rek laa ñëw na ko Ameth sama téléphone bi laa bëgg nga changé ma mun a ma yaay dinaa la ko changé bu bees laa lay wutal maa ngi yaayam ñoo bokk ndey baay waaye daf ma def comme yaay wax dëgg yàlla yonente bi métti lu naa ko torop nag. ndax ci li nga xamante ne ni jot nañ la ko expliquer ndax Ameth dafa amoon problème ak ñooñu wala. wax dëgg yàlla amul woon problème ak ñooñu wax dëgg yàlla xanaa nag dañ koo soupçonné rek waaye amul woon problème wax dëgg yàlla ak yonente bi. jàmm rek lañ ko xam leel segg kafeem toog ñu fekk ko fa def ko lañ ko def dóor ko ba mu dee metti na nag ba ci kanamu yàlla waaye nag lépp dañ koy teg ci loxo yàlla léegi nag ñuy ñaan nag président bi mu def liggéeyam parce que lii dafa metti lii dafa war a jeex ci dëkk bi parce que du moom rek lañ ko def am na ñeneen ak ñeneen ñu ko def technopole am na ñoo xam ne sax gisuñu leen am na ñoo xam ne gisuñu leen léegi nag ñun dañuy ñaan dimbal waa ñu jàppale ñu te yàlla tax président def liggéeyam su deful liggéeyam tamit ah sunu njaboot gi tam dinañ def seen liggéey. def seen liggéey ci naka. waaw foo ñu def seen liggéey. ndax duñ leen bàyyi noonu. di dox di leen xool nii di leen gis ñuy dem seen yoon ah déedéet mënuñu ko waaw dañuy ñaan nag président de la république bi mu def liggéeyam. ndax da ngeen xam ñan ñoo ko def wala da ngeen a am njottu ci ñu ko def. am na xale yi am na ñu bari xam nañ leen. ci ñi ko def waaw ci ñi ko def man xaw ma leen waaye xale yu góor yi am na ñu bari xam nañ leen wax dëgg yàlla yéen am na ñu bari xam nañ leen waaw mu metti lool nag waaw daal moo nekkoon sama wax. d'accord ndax bi ñu euh, dóoree ba bi nga xamante ni sa doom daal dinay génn àdduna ndax jot nga ko gis wala. déedéet wax dëgg yàlla jotuma koo gis nee naa la suñ demee hôpital ñu ne kenn du dugg ñun ñëpp dañuy dellu si waat wax de ndax loolu neex na ci xol neexul ci xol boobu ba tey sa doom tëdd hôpital mardi. ba ni mu gaañoo tegoo ko bët ndax loolu neex na ci xol ah, metti na trop nag. ban yëg-yëg nga am bi ñu la nee sa doom tëdd na hôpital ba ni ñu la nee sa doom daal dinay génn àdduna te gisoo ko tàggatoo ak moom sax tàggatoo gu mujj. defuma ko dañu maa wax bi ñu ma nee rek sa doom noppalu na ah, man de wax dëgg yàlla nit ñëpp ma fekk sama kaw falaa daanu waa kër gi yëpp ñëw ba ci koñ bi ñëpp ñëw fekk ma sama biir kër waa ci laa jógee nag sol sama yére. ànd ak samay doom ne la ñëw leen ñu dem parce que ma fi maa ngi dëkk Kër Mbay Fall ma ànd ak sama njaboot ñu ñëw fii waaw ki doon wax fii léegi kooku sama doom la ku góor ki waaw kooku sama doom la waaw. lu bari marqué na ma ci moom Ameth lu bari marqué na ma ci moom wax dëgg yàlla yonente bi ndax bu ma duggaan fii rek fa mu nekk laay dem Ameth nangam Ameth nangam mu laax ak waxtu mu yëkkati jox ma kon loolu rek daf ma marqué. marqué na ma torop munu ma nag wax yàlla xam na ko munu ma wax. kon daal mën nañu ne sa doom ji tey daal dina lay wéetal bu baax a baax. dina ma wéetal ndax saa yi bu ma duggee Pikine dem këram fekk ko fa fi muy fréquenté fa laay dem fekk ko fa mu toog ndeysaan bu ma egsee mu yëkkati la mu am ne ma yaay am demal nga ñibbi ma dem ñibbi kon manqué na ma torop dëgg yàlla ak yonente bi waaw ma la waxoon léegi rek moom laa lay waxaat na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam. lii rek mooy solution bi. jërëjëf yaa booy ñu ngi lay jaale bu baax a baax di bokk ak yow tiis bi. jërëjëf. c'est bon grand. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi siyaar bu baax soxna si. tur bi naka la. tuur bi tur bi Idi Sañ la. lan nga ci Mouhamed mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. waaw Mouhamed mii sama doomu ndey la. waaw sama raq la. waaw ñoom ñëpp man maa man maa si mag yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ba baay waaw sama rakk la. sa rakk gannaaw ba ñu la jaalee ma mosawu la ci tiis bi nga xamante ni moo daal di dal ci seen kaw yan rek nga mën a jox ci li nga xamante ni moom moo fi xew. waaw information yi moom mbir mi moom yenn yi tooñ la waaw ndax tey jii. tooñ tooñ si ndax nit même sax boo ko fekkee sax lu ñuy tere. amoo droit dóor man mii di wax ak yow damay waxee si ancien militaire. classe 2002 2002 laa dem armée dem Batpara Batpara laa nekkoon kon man tey xam naa loi lu mu wax ak lu lu mu tere mais loolu musul am si benn loi waaw mais ñoom xaw man lu ma mënul comprendre nga jàpp nit vingt heures ba ay minuit di ko yóbbu vingt lañ leen jàpp si biir kër gi sax foofu lañ leen njëkk a xam nga tamit nit nga fekk ko si biir néeg dóor ko pompe à ba pare ëpp buntu néeg bi mais loolu mooy la loolu mooy kon ñoom dañu jëloon question ne dañ jëloon kii intention pour jéem a ray booy. vingt heures ba minuit moom xale yi moom fan la ñu nekkoon. minuit bi wër nañ leen fu ne mais technopole ba lañ leen yóbbu xam nga ne koo yóbbu technopole yeew ko di ko dóor ay cours xamal ne kooku mooy dëgg da nga koy rey joxante dëgg tamit yéen nii waaw mais mais lii lii nii état da si war a jóg waaw ndax ñun tey jii lii du du duñu duñu duñu bàyyi de. du ñu bàyyi. bu yaboo ñoom nañu préparer bu bu état deful lu leer lu gaaw dinañ ñu rey ñun par kenn par kenn. ndax am ngeen ay preuve que ne ay hommes de tenue lañ parce que ñi ma ci jël yëpp nee nañ bi ñuy ñëw dañu daal di ciblé ba pare joxuñu leen lenn loo xamante ni mën na leen présenté que ne ñii ay hommes de tenue lañ. non ñooñu Pikine fii ñëpp leen xam xam nga pigin fii moom benn bopp la Pikine fii xale bu ndaw sax day xamante koo xam ne mu ngi dëkkee beneen secteur ñooñu xam nañ leen fii bu baax a baax. te tamit ak ay ASP tamit dañ ci raxaale ay ASP te xam nga ASP moom amul droit sax téye nit bay dóor nit waaw. mais lan moo sabab histoire bi ndax ñoom dañ leen a tooñ wala dafa am leen lu ñu leen di toppee wala lan moo indi problème boobu. non ñoom ñoom ñoom xamante nañoo booy boo bëggee dégg-dégg ñoom xamante nañoo booy yi yàgg nañu di jàpp booy fekk booy di tux wala booy yor lu ñuy tere ñu encaissé booy xaalis. ñoom ak booy yi xamante nañu bu baax a baax xam naa nag lii boo gisee mu demee nii nag dañ doon jéem a encaissé booy booy bañ. no booy loolu. non man loolu moom wóoruma waaw mais loolu man moom wóoruma wax dëgg fa yàlla moom waaw mais li nga xam ne man loolu lañ ma wax te ñu dëkk si kër gi ñoo ma ko wax ndax man tëngéej laa dëkk mais man fii lu xew pikin man dama koy yëg waaw maa ngi tëngéej mais pikin fii man sama lépp fii la waaw. noonu lépp. lépp après ñun ndax ñun lu si waroon këyit yëpp mu ngi ñun. waaw nga xamante ni moo génn àdduna muy Mouhamed di sa rakk ndax jot nga ko gis. no man waa gis naa ko ndax ndax man nii depuis boobu ba léegi man maa si toppoon di dugg fu ne pour lijjanti këyit yi man boobu ba nii ba tey ji talu ma sax lekk te maa ngi woor waaw bu man ndogoo ba naan kafe rek jeex na du ma nelaw. ko gisee ci yan anam nga ko gisee moom. non man gaawuma jooy mais tey moom dama jooy. waaw man ma jooy nag waaw mais tey dama jooy ndax man li ma gis tey bu ma judoo ba léegi musu musu musuma ko gis waaw non gaañu gaañu yi dafa meti fo métti bopp bi bopp bi faar yeeg moom daal yaram bi daal moom na ko daa yàqu moom wax dëgg fa yàlla moom waaw yaram bi moom dafa yàqu waaw kon bu kii nu mu mel nii kii boo ko gisee nii da xam ne kii même bu dundaatee sax du baax. waaw même bu dundaatoon sax du baax mhm. waaw. am nga kenn koo xamante ni expliqué na naka lañ leen doon dóoree wala lañ leen leen dóor. wala man kii bi sama sama kii bi frère bi. Mhm. moo magam ku mu bokkoon day ak baay Iba Diop moom moom moo leen toppoon moom moo leen toppoon waaw mais kii bi euh, beneen booy bu ñu escanté ba wekki bëñi booy boobu moo ko ne technopole lañ leen yóbbu mhm. ak dañ leen yóbbu technopole jëlee leen fa dugalaat leen biir arène ba. biir arène nationale ba pare mënatoo leen di leen dóor ay cours booy boobu ñu escanté ba defeere ko kooku moo wax loolu Ibba waaw te kooku moom tamit daa sonn waaw non moom nii noo moom kii nañ ko defeere nañ ko waaw nañ ko non kii maa ko yar ndax tey jii man ak moom ñii ñun ñun suñu maam ñun moo yar ñun suñu maam moo ñu yar waaw moom yaayam dafa teel a gaaju sama maam nag yor ko benn moment sax sama yaay jëloon na ko yóbbu ko tëngéej ñu yeewandoo benn kër ma nag moom waaw benn kër ñu koy yeewandoo sama rax la du ma dugg Pikine tey te te seetu ma ko ba gis ko waaw nit ku baax la te tamit alalam du ko booleeg mindeef waaw tey tey jii fii pikin fii amul kuy taxaw ne mu musul lekk xaalisam waaw lu mu yor si poos bi yaa ko moom waaw waaw waaw waaw waaw ok merci jërëjëf mais daal man li ma siy dolli mooy lenn la policiers yi nan nañ wax ak ñoom liggéeyuñ ñoom seen bopp xam nga nit booy booy aar ay nit da ngay jubale mais ñoom jubuñu ñoom ñooy bandi yi ñoom ñooy criminels yi boo bëggee dégg-dégg lii moom duñ si bàyyi dara xam nañ leen ñoom ñëpp nag bu si état deful dara dinañ ñu rey ñun ba ñu jeex kenn par kenn waaw merci jërëjëf. ah gisoo ma ko mu bëgg ma ne ko kon naa la denc sama caat mu ne kooku de mën naa ko xaar parce que ñoo. mun naa ko xaar parce que dañoo déggoo ma ne ko amul problème ma woo mag ji ñu waxtaan ba pare man la maa ngi dellu Tëngéej ma dellu Tëngéej ci guddi gi lañ ma woo ci mu wax problème bi man loolu lu mu mën nekkee vidéo yi yëpp gis ngeen ko ni policiers yi duggee yàq sagage yi néegu jàmbur ki leen tax a jóg fekk ci moom benn drogue. ñoom am kenn ku leen tax a jóg am na ku doon wax xam na benn boy bi ñu doon seet si foofu mais même boo bu même kooku boo ko fekkoon ñu wax la ko fekkoon moom dara mais loolu lan nga ko war a def mais nañ bàyyi li ñuy def di toroxol xale yi ñoom ay nit lañu comme ñun dañ leen a jur ñu am papa am yaay xale yi am papa am yaay mais nañ bay la ñuy def lii nag bés bu ñu ko bàyyiwul ah képp kuñ ci xam nga rey nit nañ la rey. parce que loolu mooy xamante ni gis nga gis nga sa doom ji ci li nga xamante ne ni moo di ci hôpital bi état de santé maanaam yaramam wér gu yéem. non lii dafa ñaaw gis nga lii ay gestes criminels dëgg lañ def non kii xale bi boo xoolee bopp bi dañ ko def. bu ko ma wax sax ñu ni famille bi di yëg xeer pavage yooyu ñu doon wax bopp bi yëpp lañ yàq. faar yi côté nopp bi sama xol bi dafa jeex daaw ma jooy de mais tey dama jooy ah di pour lan amet ah, ma xool est euh, que ëppal na ëppal na vingt cinq ans ëppal na vingt cinq ans ndax autopsie bi génn na wala yëpp génn na ren nañ ko commissariat ba mu bindal ñu kii bi ñu yóbbu ko ci procureur bi procureur bi répondre nañu ba ñu jëlaat papier yi delluwaat hôpital ñu libéré ñu corps bi yenn autopsie euh, autopsie yi yenn papier yi ñu ngi suma jarbaat bi yooyu yëpp ñu ngi ak ñoom maa leen nañ ko garder pour l'instant waaw. non autopsie bu kay li ci def dafa ñàng sax man moo tax cause yu blessure yëpp mu ci après booy bu paree moom mën na la ko woon comme nga en tout cas lii daal dama bëgg ni état na yëg lii mooy surtout président am nañ président bu bees na taxaw ci lii ñoom it jaar nañ ay policiers yi ci lii ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ñëpp. kon xam nañu police actuellement defu liggéeyam ñun ay anciens militaires la ñu de mën nañ faj suñu bopp mais nañ nañ bàyyi li ñuy def ñun bi ñuy servir euh, suñu dëkk ñoom juddu wuñu. ndax da ngeen a déposé plainte wala yéen famille bi. plainte bi dinañ ko déposé avocat bi dina ko déposé bu jaree jër téeméer avocat bi wallaahi yaasim dinañ ko def. ndax kese la woon wala dafa am ñeneen ñu mu àndaloo. ñoom ñett lañu woon ñett la ñu benn booy bi ñoom gaañ nañ ko ba toj yàq bëñ yëpp kanam gi même chose mu ngi fële ñu ñu taxal ko ñu dañ koy dañ koy attee waaw ñu booy bi geste criminel la doon dem koo bëgg a rey mu fayu koo bëgg a rey du fayu ah léegi lan nañ bëgg di rey nit ki mu toog ñoom nit dangay ngay wax ak ñoom sax pare woo ñu mbéj la boo ñëwee ci brigade ba soxla kii keroog booy bi tëddee foofu kii dafa jëm foofu di ko xool waaye da ko ne dégage loolu war na leen ñoom ñu ñoo leen fi teg. mais bi nga xamante ni àkk si nañ xela yooyu ndax fekk nañ ci ñoom dara wala ba léegi amuñ ci ñoom benn preuve. dara amu ci ñëpp témoin yaa ngi fi. témoin yaa ngi fi ñu ko fekkee benn benn benn ñoom ñëpp a ngi fi amul benn bi nga xam ne ñoom mën nañu wax ne yor nañ ko fekk ñu ci ñoom dara ñoom bu ñu yaakaar ne yàlla amul yàlla am na. ñu xale bi wax dëgg yàlla ku ñàkk ñaan la lu mu am alalam boolewu ko kenn ñu nii di fa même de ah wax dëgg yàlla moom danañ yëngu ci ay laadum mag yooyu yëpp ah. yooyu yëpp mi ngi ak moom laadum yaa ngi fi xar yu ndaw yaa ngi ay ginaar ak yooyu yëpp da koy jaay mais tey loolu xale bu koy yëngu même bu fekkoon ne nekkoon na xale bu bon tey bay def lii mais police moo ko war a mais police mënta ñëw xale yi bu ñu yoree xaalis nga bëggoon nangu xaalis boobu pour lan bu ñu bëggee xaalis nañ ko liggéey nañ ko liggéey. am ngeen preuve que ne police moom moo ñëwoon ci néeg bi. ñoom la ñu xam leen du ñeen ñaa ngi dëkk fii nañ génn. nañ génn merci beaucoup ñu ngi lay jaale bu baax di la ma saw uh-huh. ah mais jërëjëf mi ngi nii daal maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm parce que bi ma leen ko waxee boobu ba léegi bàyyiwu leen yéen a ñëw waaw man kay li ma leen di li ma leen di ñaan rek lii na état fexe ba yëg ko parce que ñu ne du ñu bàyyi état bu bu ñu amu benn firne ni état def na liggéeyam ñu ne du ñu bay mais état bu deful liggéeyam leen lan ngeen fas yéene. nañu def nañu rey ñu jex peuple yëpp xam na ne rey rey nañ ñëpp loolu moo gën. policiers ay civil lañu nañu dem jàng dem armée moo gën lii ok. sëñ nga wax nga ne man man man benn affaire rek ma metti si ñoo xamante ni am am na yoo xam ne ñoom ñoo la waroon téye di la sécuriser jàpp benn booy bu ndaw war na sëñ Bamba jàpp leen dóor dóor ko ay dóor yu metti loo xam ne tagul si benn yoon. ñun jouru dëj Mouhamed bi. ba si dóor ba si jouru dëj bi ñun dañoo toog ñu ñëw fekk ñu fi dóor di ñu dóor ay lacrymogène lii kenn kenn xamul lii kenn xamul ban dëkk la war na sëriñ Touba lii kenn xamul benn ban dëkk la ñun inspiré ñun inspiré ñun inspiré xamal la war rek ñu dóor ñu

mënuñoo booleeg ñàkk mag ñooy leen ñu ni door ko ko mu dee ñun ñu ñàkk pour lan pour lan dañoo sonn waay. bu leen yi ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci pikin ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. waa Poul si Pikine la waaw. jërëjëf mbokk internet comme ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di amu Mouhamed mi nga xam ne moo daal di ñàkk bakkanam yéen a ngi koy gis nag li nga xamante ne nii moom moo fi xew nekk lu doy waar ndax bu ñu demee ba nit nekk ci naqar ay lacrymogène ay dóore di lacrymogène. xale yaa ngi xeex ñëpp a ngi xeexoo sonal nañu nit ñi ñëpp a ngi daw lacrymogène yaa ngi nii wax dëgg yàlla li metti na. métti na trop leneen doomu jàmbur ji ñu rob ko bari ñu policiers yi ñëw di leen ñaaw di leen tur di leen sol ay ko du dëgg du yoon nit ñi sonn nañu sonn nañu mbay doomu jàmbur ñuy rey lii war nañ wax lii war nañ wax mi ngi noonu wala jabar lii nañ ko sonn nañu sonn nañu sonn nañ sonn nañ dañu arrêté dañu ñu ngi defal suñu doom yi di muñ di leen defal suñu doom yi démb ba léegi ñu leen di defal nañu dal nga rey suñu doom ba pare ñuy sang dem di suuli ngeen attaqué leen waat ñoom ñooy ban am ban monde lañ nekk léegi ban adduna lañ nekk léegi ñoom lan lañ bëgg lan lañ bëgg nañ ñem sa amer rey ko mais bu ñu reyaale si ban adduna lañ nekk yow dangay tooñ nit ka pare rey ko ñoom la ñuy seet si moom gisuñu ko jëlee nu fekk nañ ko këram jëlee ko këram dóor ko yóbbu ko technopole ba dóor ko rey ko yóbbu yóbbu ko hôpital indil nañ ko jël nañ suñu suñu néew suuli nañu waa jàmm naa nañ ñu may jàmm mais doxaat ñoo fekkaat ñu fu ñuy dajee suñu dëj di lekk ñu attaqué wañ ak ay lacrymogène dañu ray ay borom yi xool la ñun ay nit lañ ay lu ci am ñoo koy nit seen bopp buñ ñu ray na ñu may jàmm d'accord jërëjëf jërëjëf internet yi amuñu droit ñëw si dëkk jàmbur xam nga di di di di dóor ay lacrymogène du yoon quoi bu ñu xool ñi dañoo am métit ba pare bu leen la policiers yi xam nga di di rey nit bu defee yoon da nga si kii at ci yoon yoon atte ko mais du noonu c'est pas professionnel quoi euh, non justice nous euh, xam nous voulons la justice quoi vraiment nu sommes marre nous voulons la justice Pikine gars yi dañoo respecté wul te ay noobu loo fi dëkk ay jàmbaar ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ñun Pikine lañ gëm ñun Pikine lañuy sagoo xam nga mais nit bu defee lu yoon yóbbu ko si yoon yoon ate ko mais pas nga koy fitnaal yàlla bugul kuy fitnaal doomu aadama ba pare non ñu ñi ñëw si dëju jàmbur ba pare di dóor di dóor yi du yoon du benn yoon du yoon ki ñu nii sama jarbaat la sama jarbaat la sama lépp la xamul dara lu dul liggéey liggéey rek la xam te moo yoroon ay famem lii dafa ñaaw gi boo jàppee nit bu nekkul si yoon da nga koy téye yóbbu ko si yoon ñu jaarale ko si yoon waaye di dóor nit yóbbu ko ba buntu police naan dafa yomb yóbbu ko ba continuer moom ba teg na pol di ko dóor ba damm ay faaram. dafa metti toj ndaalu bopp bi xale ndaw. lekkagul dara ci àddinaam te famem yaayam ak papaam bu yàggul rek la ñu génn àndi dese moom moo yor ay famem lii dafa ñaaw léegi léegi la ñu doon sànni ay la chromosome dañoo daw renfort la ñu yor ñu ngi nii rey ba pare waxatuñ si dara ñu indi wat ay renfort di ni kii ñu woor ba woon dañ ko tàmm du bii yoon de du bii yoon dañ ko def dañ ko tàmm habitude la ci ñoom dañuy dóor dañ lay fekk sa biir kër dóor la ba nga bëgg a dee saboté la yàq say bagage toroxal ki li ñu def ni teguñu ko feen dañ si war a wax nguur gu bees gi dañ si war a wax nag ñi jël mesure am ñu benn droit di dóor ku lan ñuy dóor xale bi la jërëjëf mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne ni moo di Mouhamed nekk jeune bi nga xamante ni moo fiy génn àdduna waaye gis ngeen mbir mi dafa uh, mujjee metti ndax gis ngeen ci dëj bi ay lacrymogène la lañu fiy dóor xeex commencé fi am ay jàppal bàyyi mu nekk loo xamante ne ni uh, metti na Euh, fi mu nekk nii euh, nañu ki nga xamante ñoo leen ko dóor leen ba rey leen teguñu ko fenn suñu ñëwee laaj graisse joxuñu leen graisse rek ñu sonal leen dóor leen ñi ñoo la xale ci boppam Modou bu ñu indi fii waruñu ko indi waa du yoon Modou Baye Fall la kenn dugul ci kenn moo ko taaya wóor na yàlla nit ku baax lañ rey nit ku baax lañ yóbbu teguñu ko fenn lañ def Modou ñoo ngi indiwaat ko fii dañ bàyyi jàmbur defu leen dara Modou Giraar kenn la deful kenn leen mhm. metti na am na taay amal baax na yaru na mais nii fekk nañ ko fa fekk ci loo xamante ne yorul dara dara social dong doon def ñu rey ko nii nii moo ngi li nañu métti xaritam bi xaritam bi boo gisee ñu def li lii moo leen métti niñ ko def nii dañ kaa rey rey bu ñaaw rey bu ñaaw lañ ko rey ba pare ñëwaat toroxoñu suñu biir dëj waaye yéen nañu xaar léegi laaj nañ la ndax am na ci dëkk bi nag lii luwaa la wax leen nag lii nag naqar bii nag mënuñu kaa ci àdduna mënuñu kaa fàtte. léegi suñu ndey yaa ngi nii booba léegi ñu jooy depuis une ñu rey ñu rey ko tëj ko mu nekk buñ demee di ko seetu duñ ñu may sax ñu gis am message pour lan ñoo gën a am lu ñu ñu bokk moom ah boobu dee na ñu nëbb ko une semaine yàlla ñu mu dee ñu nëbb ko door ay birig ak lépp lañ ko doon dóor Ameth Ndiaye daa attan loolu. naka ni boobu sama xarit bi ma nekk si oto bi may naan ñii ku ñuy dóor dóor yi métti na mu mel ay xeer la ñuy dóor si biir oto bi ñuy dóor maa ngi naan ay waay ñi soxor nañ ku ñuy dóor si oto bi yaagu tuuti Ibrahima Ndiaye ñoo ne ma sa xarit bi la la gars yi jàpp fee ma ne ko fii lañ romb di dóor taay si jour bi la dee. Ameth Ndiaye si jour bi si jour bi la dee sama xarit bi la dee. massa massa bilaay metti na. metti na metti na ñàkk sa mbokk ba pare teg ci di dund li nga xamante ne nii moo di naqar ak fitna ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xamante ne nii yaakaar naa démb gis ngeen image yi ci wasaare tey jii lañu ñu ci dëj bi ndax magam boobu wóoluñu puusal ma puusal ma jaar. ma ne ko boo dee demoo nga rey ma. barki maam seere fa boo dee demoo daw sonko mu daw dugg si biir bi. billaahi 23 heures lañ ko rey. billaahi technopole lañ ko door ba mu dee. fii xeeru pavé lañ ko dóor ci fàmb. amee daa tuuti amee maa ko ëpp xoolal man nu ma tooy som nit. billahi mais dañuy rey rek mais duñ taw ñoo Diop lañ sant Diop parce que Serigne Touba Mbacké billahi wallahi taalaay mardi lañ ko rey mardi dina ndësal affaire bi dina ndësal affaire bi ba kañ daa war a jeex Pikine grand daa war a jeex Pikine massa massa doy na waar massa billahi metti uh-huh. kon li ma doon wax sànq gis ngeen leen policiers ay criminels lañu ay assassins lañu gis ngeen lii état état na ci jóg. parce que munoo nekk ci dëj même boo amee ak ay booy problème fële mais nga xam ne yow yaa rey ki dem mais waroo ñëwaat ba ci dëj bi imaam ya fa toog ak lépp nga defa dóor ay lacrymogène mais lii lan lañ bari Sénégal lañ ne bari Sénégal lañ ne mais lii lii lan la non yeneen yeneen bakkan lañ bëgg ñoom nañ sivilu ñëw bu ñu fekk ay góor lañu nañ sivilu ñu ñëw nañ ko def ñu xool wallaahi duñ def comme jigéen nañ ko def ñu ñëw waaye ñii xaj la ñu way. jërë ngeen jëf mbokku internet yi yaakaar naa ne fu mu nekk nii eh, gis ngeen li nga xam ne moo xew file eh, ci Pikine dégg ngeen nag magam bi daal dinay jot ci li nga wax ci li nga xamante ni moo di autopsie beeg mu nekk nii gis ngeen li nga xam ne moom moo fi xew ñu ngi taxaw ak koo xam ne mag la aussi si famille bi dañ koy bàyyi rek moom mu tamit mu wax ni mu ko gis. de m'exprimer en français. Euh, c'est une population meurtrie, traumatisée. qui vient juste d'enterrer son fils, l'un des dignes fils de ce quartier, Mohamed Diop. Euh, nous l'avons enterré parce qu'effectivement, il est victime d'une bavure policière. Les policiers, en l'amenant, l'ont traumatisé. Et nous avons constaté dans le certificat de genre de mort euh, qu'il a été euh, euh, tué d'une mort très violente. Selon le médecin légiste, euh, il subit beaucoup de traumatismes, euh, des fractures euh, de quelques côtes, des fractures crâniennes, ce que nous déplorons. Et nous espérons que le procureur de la République sera saisi, va s'autosaisir même pour que justice soit faite. Parce que vous avez vu comment les jeunes sont excités aujourd'hui. Parce que des leurs est parti. dans des conditions très douloureuses. Nous avons espoir en notre justice. Nous avons l'espoir qu'au lendemain de cette élection, cette ère nouvelle qui vient de s'ouvrir dans notre pays, avec l'arrivée de M. Diomaye Faye à la tête de ce pays, qu'il n'y aurait jamais plus d'impunité dans ce pays. Que cessent toutes ces bavures policières une bonne fois pour toutes. Ce que nous demandons, aux autorités, c'est de prendre à bras le corps cette situation-là, pour que cela puisse s'arrêter à ce mort-là. Sinon, sinon, nous allons compter d'autres cadavres. Parce que vous voyez ces jeunes, ils ne sont pas là pour, euh, euh, euh faire les doux à la police. Ce qui est sûr et certain, tout policier qui ose s'aventurer au dehors dans ces jours-là risque sa vie. Et c'est dommage que les, les, les autorités aujourd'hui entendent le cri de cœur des populations, entendent le cri de cœur de ces jeunes et qu'on ne fasse pas quelque chose pour, en tout cas, arrêter l'hémorragie quand il est temps. En tout cas, nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que ceux qui sont artisans de cette bavure policière, que ceux qui ont les messieurs de sang aujourd'hui, le sang de, de, de, de, de Mohamed Diop, que ces gens euh, ngeen euh, li nga xamante ne ni moo di euh, kilifa gi moom tamit daal dinay wax waxaale li nga xamante ne ni moo am ci autopsie bi waaye ci ki nga xam ne moo di génn àdduna Mouhamed Diop moom tamit gis ngeen vidéo yi ci wasaare bi dugaloon nañu ko gis ngeen li nga xam ne tey nag moom moo fi xew ci jour bi nga xamante ne ni moom lañu ko denc di ko saraxal mu nekk loo xamante ni lu metti la. ndax ñàkk sa mbokk ba pare boole ci ak ay xeex wala ay lacrymogène la lu day xaw a metti nañu ñaanal ki nga xam ne moom moo fi euh, bàyyeekoo tey yàlla yërëm ko xare ko fiir daw si fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge mais tey nit du ñàkk ba pare nga koy gën a dolli loo xamante ne ni kenn du xam kenn du mën a hmm. wan ñu ba wan yaa ngi gis réussite dëj lañ nekk dañoo dem suul ji léegi léegi ñëw même pas une heure de temps ñu sànni ñu mu ngi nii lu amul preuve bu leer naññee ñoom ñoo ko sànni léegi ñun lii senegal li lii lii lii nii si ban réew lañ nekk quoi sa waay ñii bakkan lañ jël bakkan bi ñu jël kii nii barke leeru arxuraan laa la wax de man man mii man sama jëmm bopp maa mën a seere ci moom lu bari ndax ma doon nekk ak moom tout le temps. doon defal ay jaamu yàlla nag lu baax rek barke leeru alxuraan koor gi nii ba nu koor gi commencé ba nu muy jeexee day xëy di joxe ndogu barke Cheikh Ibra di ñaanal gaay yi jàmm ak wérgu yaram ak gudd fan te moom tey xool ko Fall yow Fall ñun nekkuñu Sénégal waaye waaye yow waaye yow réew mi daa nekkoon réew. Eh, eh, lii teel lay soog a feeñ soxna si lii man victime laa mus nañ ma ko def def nañ ma lii si xam na laa jotee ñoom. dañoo ñoo fekk ma si milieu di ma laaj carte d'identité ma ne ko présente toi indicateur la ñuy àndal dañuy doon policier ñaar ñu ànd ak lu ma cinq police kii indicateur ma ne ko présenté sa kii sa carte professionnelle mu ne ma yoo xam nga lépp di ma wax li ma ne ko eh man xaw ma la li ma sëkka yoo xam nga lan la carte d'identité nga woon ma sa carte ñu dóor ma xoolal mu door ma may xeex ak moom de ñu yóbbu ma ba fële technopole ñoom ñëpp téye ma man ak man la Birane Faye ak benn gel téye ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu ba sama bët yi di reetal est ce que ma la gaañu ba pare jël ñaari paquetu yamba sëf ko keneen ki biraan ne ko moo ko moom man ñu ne ma veillé est ce que ma la lii c'est pas la première fois kii la ñett lañ jàlloo la Henri ak beneen jaago seen brigade boobu kese ak xaaraar ñoom kese la waaw te duñ dara ay sàcc lañ man maa ko wax ay sàcc lañ ay doome xaram piir lañ. ay doom. d'accord gaa ñëwal xalil euh, ñëwal tuuti ndax dégg naa ñu naan kii bu deewee xaw ma euh, soxna si nga xamante ne nii moom fi mu nekk nii sonn na du ngeen ko yóbbu hôpital du ngeen ko woote. damay laaj ba xam ma damay laaj man ba xam policier am nañ droit ñëw fii te amuñu autorisation. mun nañ génn te dañu am PV commissaire nee na doom génn nañ te amuñu PV loolu mun na nekk mun nañ rey suñu nit boom ko rey ko ma mu dee ñu bëgg ñoo reyaat waaye ñun ban réew lañ ne xoolal man mënu ma wax sama xol dafa tooy. mënu ma wax yóbbu ko mu dem dooma raam. naqar par ñu def suñu tëj ngeen ñëw di yàq suñu tëj def ay gërënaat doomu xaraam ci kaw suuf barki Sëriñ Fall yàlla nañu yàlla àttak ñun gàtt nañ suñu àq trop rey gi ba pare ay magi jëm ba ngoon ñu daanu dafa ne loolu rafet na sunu àq na leen dal barke Sëriñ Fall sunu àq na leen dal fii ku fi dee rek ñoom ñoo leen yóbbu lii àq la. ndeysaan metti na. metti na trop gis ngeen li nga xam ne moo xew ci jouru dëju bu Mouhamed. voilà salaamaaleykum waa Wasaare TV lii na ngeen fexe mu dem si jamaay fay ak président Ousmane Sonko parce que lii dafa war a yegg si ñoom ñun ñun ñu ngeen di gis tey ji ñu taxaw fii nii ñun ñoo doon xeex biir Pikine bu manifestation amee bu injustice amee bu ñu jàppee Sonko ba Adji Sarr defee lu ko neex keneen ak keneen ak keneen ñun ñoo doon wàcc terrain bi di xeex tey nag déguisé wuñ duñ kagulewu yéen yéen a fi nekk bu fekkee sax dañ ñoo jàpp tey deux jours prochains na ngeen ñu génnee xam ne dañ doon dañ doon xeex dignement on veut plus la police nous voulons la gendarmerie et nous réclamons la justice pour Ahmed Taya na ko ñëpp yëg amul diaspora bi na ko ñëpp xam lii na ko Mollah Morgun live ñëpp jot si lii du yoon lii gis nga buñ ko bàyyee bu jàll dinañ reyaat beneen beneen sën dañoo yaakaar ne ñun ay ay ay ay malfaiteur lañ ñun duñ ay malfaiteur ñun ay soudeur lañ ñun état dañoo reconnaître lu garaaw laa la wax yi dañ ñuy saagaloo ñi nice quoi jërëjëf jërëjëf fi mu nekk nii seen xol moo neexul ndax comme ni ma koy waxee nga ñàkk sa doom ba pare mbir yu mel nii ñëwaat dal ci sa kaw kilifa gi loo wax nga ne. waaw ma ne man Sénégal man dama xamatul ñun si ban réew la ñu ne. munoo rey nit say élément rey nit ba pare police dóor nit ba mu dee si ñuy dëj ñu fekk ñu fa di dóor ay lacrymogène te dëj bi am na fi ay nit ñoo xam ne tey jii daanu nañ daanu boo xam ne ni tey lu leen mënta dal responsable bi ñoom la. waaw ndax tey mënuñu rey ñun suñu rax ñu am lu ñu metti dem suuli ba ñëw ñu fekkaat ñu fi di ñu dóor ay lacrymogène xale yu ndaw yi lacrymogène si biir kër yi xale yu ndaw yeeg liir yi ak maire yi màgget ah mais mais ñun si lan la ñu nekk lan la kenn xamatul lan la rey suñu raq ñuy jooy noppee ñu fekkaat ñu si biir dëj bi di ñu dóor ay lacrymogène lii nañ si wax wala ñoom léegi ah suñu bakkan xoola dañ leen koy jaay boo bëggee dégg-dégg suñu bakkan dañ leen koy jaay waaw d' accord jërëjëf yaakaar naa ne yéen a ngi gis li nga xamante ni moo di image yi nga xam ne moo xew ci dëju Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo gannaaw démb bi ñu fi ñëwee tey nag ñu xëyaatoon ñëw ci li nga xam ne moo di sarax bi waaye li nga xamante ni moom ngeen fii gis daal di nay doy waar lool ndax bu ñu demee ba dëj ay lacrymogène di ci am ci weeru koor nga xam ne am na ay mag ñu fi nekk am na ñeneen ñoo xamante ni feebar nañu fi kon mbir moom mu doy na waar nañu ñaanal nga xamante ne ni moom moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko ko xare ko aljannay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge euh, gis ngeen nag ñun dañu ñëwoon rek ngir bokk ak famille bi euh, tiis bi waaye bokk ñoom naqar bi waaye fu mu nekk nii yaakaar naa ne euh, tiis bi ak naqar bi dafa nekk loo xam ne dafa booloo double ci li nga xam ne moo di famille Mouhamed mi nga xam ne victime la mi xam ne moo fi daal di jóge kon yéen a ko gisandoo yéen bokk internet yi ci li nga xamante ni moo di ci image yi kon na ci président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di wax na génne kàddu jëmale ko ci balaa moo gën a metti wala balaa moo gën a tiis ndax bu demee nii wala mu gën a lii defee nii rek xëy na dina yegg foo xamante ne nii yaakaaruñu ko woon comme son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye bi mooy première kaawam boo xamante ne nii gis nañu mu metti lool kon ñu ngi koy ñaan bisabilillah mu jàpp ci teel ci àddu balaa moo yegg foo xamante ne nii duñu ko fa foogee ndax bu ñu demee bu ay dëj lacrymogène di di ci am wax rek xëy na dina egg foo xam ne fay yuuxu dafañ fooge wutoon loo xam ne dina metti lool ci côté yëpp nag ci côté ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy famille waa ji ñi nga xamante ni moo di ay xaritam ci côté ñi nga xamante ni ñoo yor sécurité Sénégal kon ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye ñu ngi lay ñaan rek nga gaaw addu ci li nga xamante ni moo xew Pikine ci dëju ki nga xamante ni moo di Mouhamed di jeune bi nga xam ne moom moo fii daal di bàyyeekoo comme ni ngeen koy gisee jël nañu famille bi jël nañu magam jël nañu tamit ñi nga xamante ni dinañ ñuy wax ci autopsie bi nga xamante ne ni daal dinay génn kon yéen a gis image yaa ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci seen site bi di wasaare di leen jox rendez-vous ba beneen incha allah ak yeneen i actualité ak système en taalibe sëñ Abdoul Karim Mbacke bu mag bi jaajëf. ki lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax. tur naka la. tur bi Iba Diop la. Kebe Diop nga nekk grand frère ci Mouhamed mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo nga yoroon li nga xam ne moo di autopsie beeg yooyu ndax mën nga ñu wax ci kayitu autopsie bi lan la génne ak yi nga xam ne moo xewoon ci hôpital bi. waaw si hôpital ba mooy daanaka affaire torture la rek jël nañ xale bi dóor nañ ko dóor ba daanaka biñ koy yóbbu hôpital sax presque dee na la ñuy wax rek bi ñu ñëwaatee ñu def li ñu war a def kay autopsie bi génn bi autopsie bi génn tamit wanewul lu dul ay yax yu dammook ay faar yu damm ay mbagg yu damm yooyu dong moom lañu fi wane te bu ñu wanee loolu tamit kuy autopsie dafa doon lu leer loo xamante ne ñun mënuñu si dara mënuñu si dara waaw rayal nañ ñu nag suñu rakk koo xam ne amaloon nañu njëriñ njëriñ la ñu amaloon ndax euh, daanaka suñu lu bëri moo ko yoroon ndax mu ngi liggéey mu ngi def lu mu war a def ñun fu mu war a jaar ak ñun mu ngi jaar ak ñun foofu autopsie nag lu mu génnee dafa doy waar lool lool lool sax dama doon sax ragal a wane affaire autopsie boobu faar yu damm bëri ay fracture autopsie bi li mu ngi nii léegi léegi dinaa la ko jox nga xool ko ndax loolu ku ko xool xam ni carrément te dañ leen tooñ ba si kanamu yàlla li ñu leen toojee fekk naa la si biir néeg yaa ngi ndogg sa ndogg mais jarul ñu lay takkal bu ñu amee CO soupçon nañ ñëw def li ñu war a def te bu ñuy dugg si kër war nañ am mandaa bi ñuy dugg amuñu mandat amuñu dara mënoo dugg kër jàmbu rek yuuxu saaga dóor li nga bëgg amoo ko nga ne dañ may jox lii nga saaga nit mu fayu nga ne da ngaa réew nga yëpp ko dem si oto yóbbu ko mais lan mooy firndeel que ne ay homme la ndax dañu présenté kart wala dañu soloon tenue wala nu mu dem euh, ak lu ñu ma ñàkk présenté carte man bi ma ñëwee waruñu ma carte ndax dama ñëw fekk ñu jël booy yi ba yóbbu leen bi ñuy génnee booy yi man ci laa yem dégg ak menaces yi leen doon def ak saaga yeeg dinañ leen yóbbu loolu man dégg naa ko ci man bañ leen yóbboo nag bañ demee police nag man xam naa ñoo xam ne ay policier lañ loolu man xam naa ko ci te gis naa ko ci te ñoo xam ne am ñeneen ñoo xam ne ñoom it ay policiers am na si ay ASP ñoom ñëpp xam nañ seen tur mën nañoo tudd seen tur benn par benn ndax xam nañ seen tur ñoom ñëpp waaw. bi nga xamee ne te ne gis nga ko moom euh, maanaam yaramam lan fan la am ay gaañu gaañu. man avant autopsie am biñ koy njëkk a évacuer di ko yóbbu dalal jàmm man ma nekkandoog ñoom ak ci biir li ma nekkandoog ñoom ak ci biir yëpp di ko yóbbu man kii laa gis si moom lu ma gis si moom daal man gis naa ne yaram bi tëccu na. loxo bi newi na man xam yaram bi yëpp toj na xam naa ne kii dafa damm loolu xam naa ko ci moom mais biñ demee nag autopsie bi nag moom moo leeral yenn yi waaw mais lan moo waral coow li ndax gis nañu ba ci jouru dëj bi ay lacrymogène ak yeneen ak yeneen di ci xew. xam nga policiers yi dañ ñoo tooñ bëgguñu tooñaat ñaari yoon mu xamee nag moom mu xameetu nit ñi la. Mouhamed nit ñi la ndax Mouhamed moom moo ji nit ñi teraanga c'est que ku ne teraanga bi nga xamee ne loolu am na ñu am lu leen metti lool yoon war a def liggéeyam yoon defatul liggéeyam ñëw ba si biir dëj bi di fi dóoraat ay lacrymogène loolu teguñu ko fenn loolu teguñu ko fenn gis nga nii ñëw ba si dëj di fa dóor ay lacrymogène di jàmmarloo xale yi xale yi il faut ñu fayu ñoom tamit li dañoo am lu leen metti ndax ku leen amul njëriñ lañ def te yaakaar naa nag dañoo nekk si. nguur gu bees nguur gu bees yi nag war na mën a def liggéeyam lii war na si mën a taxaw te yaakaar naa bii mooy seen première cas war nañ see mën a taxaw ndax lii lañ doon séntu si ñoom ndax lii lañ doon xeex ba ñu jox leen nguur gi kon kat nañu def seen liggéey. d'accord lan nga ñu mën a jox ay kàddu seede ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. Mouhamed dafa di nit ku baax mu Mouhamed bëggul ku mer buggul ku ñàq man magam laa ñoo bokk ndey ak baay dama yor jabar yor yi doom Mouhamed dafa ma teggil sama lépp. lépp la ma Mouhamed eggul li tax woon léegi wéeru ma nii sama doom la mu Mouhamed moo leen yor moo leen defar lu nekk moo leen koy defar su ma leen jox sax dafa naan bàyyi leen koor gi mooy joxe ndogu mooy joxe xëdd mooy joxe lu ñu togg ba fee mu jaral ko bëgg joxe moo ko jaral mu dem sa daaru fee problème bi amee di fa segg ndogu di joxe xoolul kenn ko ko jox dërëm wala ñaar lu mu yar si ay xaram di jaay di yar ay ginaaram di jaay lu mu mu koy bokk ak nit ñi di ko bokk ñun ñii waaw. mais naka la demee fi ngeen ko yóbbu fan ngeen ko yóbbu hôpital ndax moom ci yoon bi la ñàkkee ba kanam wala ci hôpital bi la ñàkkee ba kanam wala. ndax biñ ko yóbbu hôpital moom waxul deful dara biñ ko yóbbu hôpital ba ni mu gaañoo amul benn lenn lu mu wax waaw niñ ko yóbbu hôpital ba ñuy wax waxul dara waaw waaw. d'accord comme fi mu nekk nii yaakaar naa ne fi mbir mi mu ngi gën a metti dañu lay jaajëfal rek di la jaale di la saw mu ngi leen jaajëfal bu baax a baax. yaay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Seynabou Seck. Seynabou lan nga ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi dal di bàyyeekoo. yaayam la parce que maa ngi yaayam ñu bokk ndey sama rakk la waaw Ahmed sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw di la ma saw bu baax a baax yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di jóge Ahmed dafa doonoon doom ju baax. dëgg yàlla ak yonente bi gëm boppam bëgg liggéey xoolul alalu kenn waaye dañ ma woo ma nekk kër Mbay Fall ñu ne ma yaay Amet dañ ko jàpp ma ne ko lan la def mu ne deful dara de dañ leen fekk foofu rek bi ñuy ndogu policier ñëw dugg fekk leen fa jàpp leen di leen dóor di leen palpe fekk ñu ci ñoom dara di leen dóor ah ma ne ko loolu du yoon ma toogaat ba ci kanam ñu ne ma yóbbu nañ leen ma ne ko fu ñu leen yóbbu mu ne nee na dañ leen yóbbu police ba delloowaat leen ma ne ko déedéet ma tooga tooga toog ba min bi jot sama doom bu jigéen bi woo ma ne ma ah yaay yóbbu nañ leen technopole de waaye dañ leen a dóor a dóor a dóor ba amet daal mu ngi ci diggante dund ak dee wallaahi nee na noonu ñu jël ko yóbbu ko hôpital bu ñu dem nag duñ ko jël hôpital bu ñu dem duñ ko jël ñu mujjee nag dem principal bi ñu demee lañ ko dugal bi ñu dugalee Ameth ñun bu ñu buggee dem gis amet sax ñu bañ ñu ne duñu dugg pour gis ko mu metti lool nag waaw ñu naqar lu ko torop nag wax dëgg yàlla ak yonent bi waaw mu doonoon soutien de famille yor ay rakam yor ay magam man mi di wax ak yow mu yor ma lu ma soxla suba ba ngoon mu defal ma ko moom Ameth bu yàggul rek laa ñëw na ko Ameth sama téléphone bi laa bëgg nga changé ma mun ne ma yaay dinaa la ko changé bu bees laa lay wutal maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak baay waaye def comme yaay wax dëgg yàlla yonente bi métti lu naa ko torop nag. ndax yaay ci li nga xamante ne ni jot nañ la ko expliquer ndax Ameth dafa amoon problème ak ñooñu wala. wax dëgg yàlla amul woon problème ak ñooñu wax dëgg yàlla xanaa nag dañ koo soupçonné rek waaye amul woon problème wax dëgg yàlla ak yonente bi. jàmm rek lañ ko xamleel segg kafeem toog ñu fekk ko fa def ko lañ ko def dóor ko ba mu dee metti na nag ba ci kanamu yàlla waaye nag lépp dañ koy teg ci loxo yàlla léegi nag ñuy ñaan nag président bi mu def liggéeyam parce que lii dafa metti lii dafa war a jeex ci dëkk bi parce que du moom rek lañ ko def am na ñeneen ak ñeneen ñu ngi ko def technopole am na ñoo xam ne sax gisuñu leen am na ñoo xam ne gisuñu leen léegi nag ñun dañuy ñaan dimbal waa ñu jàppale ñu te yàlla tax président def liggéeyam su deful liggéeyam tamit ah sunu njaboot gi tamit dañ def seen liggéey. def seen liggéey ci naka. waaw foo ñu def seen liggéey ndax duñ leen bàyyi noonu di dox di leen xool nii di leen gis ñuy dem seen yoon ah déedéet mënuñu ko waaw dañuy ñaan nag président de la république bi mu def liggéeyam. ndax da ngeen xam ñan ñoo ko def wala da ngeen a am njottu ci ñu ko def. am na xale yi am na ñu bari xam nañ leen. ci ñi ko def waaw ci ñi ko def man xaw ma leen waaye xale yu góor yi am na ñu bari xam nañ leen mm-hmm. wax dëgg yàlla yéen am na ñu bari xam nañ leen mm-hmm. waaw mu metti lool nag mm-hmm. waaw daal moo nekkoon sama wax. d'accord ndax bi ñu euh, dóoree ba bi nga xamante ni sa doom daal dinay génn àdduna ndax jot nga ko gis wala. déedéet wax dëgg yàlla jotuma koo gis nee naa la suñ demee hôpital ñu ne kenn du dugg ñun ñëpp dañuy dellu si waat wax de ndax loolu neex na ci xol neexul ci xol boobu ba tey sa doom tëdd hôpital mardi. ba ni mu gaañoo tegoo ko bët ndax loolu neex na ci xol ah, metti na trop nag. ban yëg-yëg nga am bi ñu la nee sa doom tëdd na hôpital ba ñu la nee sa doom daal dinay génn àdduna te gisoo ko tàggatoo ak moom sax tàggatoo gu mujj. defuma ko dañu maa wax bi ñu ma nee rek sa doom noppalu na ah, man de wax dëgg yàlla nit ñëpp ma fekk sama kaw falaa daanu waa kër gi yëpp ñëw ba ci koñ bi ñëpp ñëw fekk ma sama biir kër waa ci laa jógee nag sol sama yére. ànd ak samay doom ne la ñëw leen ñuy dem parce que dëkkuma fi maa ngi dëkk Kër Mbaye faal ma ànd ak sama njaboot ñu ñëw fii waaw ki doon wax fii léegi kooku sama doom la ku góor ki waaw kooku sama doom la waaw. lu bari marqué na ma ci moom Ameth lu bari marqué na ma ci moom wax dëgg yàlla yonente bi ndax bu ma duggaan fii rek fa mu nekk laay dem Ameth nangam Ameth nangam mu laax waxtu mu yëkkati jox ma kon loolu rek daf ma marqué. marqué na ma torop munu ma nag wax yàlla xam na ko munu ma wax. daal mën nañu ne sa doom ji tey daal dina lay wéetal bu baax a baax. wéetal dina ma wéetal ndax saa yi bu ma duggee Pikine dem këram fekk ko fa fi muy fréquenté fa laay dem fekk ko fa mu toog ndeysaan bu ma egsee mu yëkkati la mu am ne ma yaay am demal nga ñibbi ma dem ñibbi kon manqué na ma torop dëgg yàlla ak yonente bi waaw ma la waxoon léegi rek moom laa lay waxaat na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam. nii rek mooy solution bi. jërëjëf yaa booy ñu ngi lay jaale bu baax a baax di bokk ak yow tiis bi. jërëjëf. c'est bon grand. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay siyaar bu baax soxna si. tur bi naka la. tuur bi tur bi Idi Sañ la. lan nga ci Mouhamed mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. waaw Mouhamed mii sama doomu ndey la. waaw sama raq la. waaw ñoom ñëpp man maa man maa si mag yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak waaw sama rakk la. sa rakk la gannaaw ba ñu la jaalee mosawu la ci tiis bi nga xamante ni moo daal di dal ci seen kaw yan information rek nga ñu mën a jox ci li nga xamante ni moom moo fi xew. waaw information yi moom mbir mi moom yenn yi tooñ la waaw ndax tey jii. tooñ tooñ si ndax nit même sax boo ko fekkee sax lu ñuy tere. amoo droit dóor man mii di wax ak yow damay waxee si ancien militaire. classe 2002 2002 laa dem armée dem Batpara Batpara laa nekkoon kon man tey xam naa loi lu mu wax ak lu mu lu mu tere mais loolu musul am si benn loi waaw mais ñoom xam man lu ma mënul comprendre nga jàpp nit vingt heures ba ay minuit di ko yóbbu vingt heures lañ leen jàpp si biir kër gi sax foofu lañ leen njëkk a escanté xam nga tamit nit nga fekk ko si biir néeg dóor ko pompe à ba pare ëpp buntu néeg bi mais loolu mooy la loolu mooy kon ñoom dañu jëloon question ne dañ jëloon kii intention pour jéem a rey booy. vingt heures ba minuit moom xale yi moom fan la ñu nekkoon. minuit bi wër nañ leen fu ne mais technopole ba lañ leen yóbbu xam nga ne koo yóbbu technopole yeew ko di ko dóor ay cours xamal ne kooku mooy dëgg da nga koy rey ñu waxante dëgg tamit yéen nii waaw mais mais lii lii nii état da si war a jóg waaw ndax ñun tey jii lii du du duñu duñu duñu bàyyi de. duñu bàyyi. bu yaboo ñoom nañu préparé bu bu état deful lu leer lu gaaw dinañ ñu rey ñun par kenn par kenn. ndax ngeen ay preuve que ne ay homme de tenue lañ parce que ñi ma ci jël yëpp nee nañ bi ñuy ñëw dañu daal di ciblé ba pare joxuñu leen lenn loo xamante ni mën na leen présenté que ne ñii ay homme de tenue la. non ñooñu Pikine fii ñëpp leen xam xam nga Pikine fii moom benn bopp la Pikine fii xale bu ndaw sax day xamante koo xam ne mu ngi dëkkee beneen secteur ñooñu xam nañ leen fii bu baax a baax. te tamit ak ay ASP tamit dañ ci raxaale ay ASP te xam nga ASP moom amul droit sax téye nit bay dóor nit waaw. mais lan moo sabab histoire bi ndax ñoom dañ leen a tooñ wala dafa am leen lu leen di toppee wala lan moo indi problème boobu. non ñoom ñoom ñoom xamante nañoo booy boo bëggee dégg-dégg ñoom xamante nañoo ak booy yi yàgg nañu di jàpp booy fekk booy di tux wala booy yor lu ñuy teere ñu encaissé booy xaalis. ñoom ak booy yi xamante nañu bu baax a baax xam naa nag lii boo gisee mu demee nii nag dañ doon jéem a encaissé booy yi booy bañ. mais booy loolu. non man loolu waaw mais loolu man moom wóoruma wax dëgg fa yàlla moom. waaw mais li nga xam ne man loolu lañ ma wax te ñu dëkk si kër gi ñoo ma ko wax ndax man tëngéej laa dëkk mais man fii lu xew Pikine man dama koy yëg waaw maa ngi tëngéej mais Pikine fii man sama lépp fii la waaw. lépp lépp après ñun ndax ñun lu si waroon këyit yëpp mu ngi ñun. waaw nga ni moo génn àdduna muy Mouhamed di sa ndax jot nga ko gis. non man waa gis naa ko ndax ndax man nii depuis boobu ba léegi man maa si toppoon di dugg fu ne pour lijjanti këyit yi man boobu ba nii ba tey ji talu ma sax lekk te maa ngi woor waaw bu ma ndogoo ba naan kafe jeex na du ma nelaw. ko gisee gisee moom. non man gaawuma jooy mais tey moom dama jooy. waaw man gaawuma jooy nag waaw mais tey dama jooy ndax man li ma gis tey bu ma juddoo ba léegi musu musu musuma ko gis waaw non gaañu gaañu yi dafa meti dafa métti bopp bi bopp bi faar yeeg moom daal yaram bi daal moom nag daa yàqu moom wax dëgg fa yàlla moom waaw yaram bi moom dafa yàqu waaw bu kii nu mu mel nii kii boo ko gisee nii da nga xam ne kii même bu dundaatee sax du baax. waaw même bu dundaatoon sax du baax waaw. am nga kenn koo xamante ni expliqué na naka lañ leen doon dóoree wala lañ leen leen dóor. wala man kii bi sama sama kii bi frère bi mooy yooga magam ku mu bokkoon ndey ak baay Iba Diop moom moom moo leen toppoon moom moo leen toppoon. waaw mais kii bi euh, beneen booy bu ñu escanté ba wekki bëñi booy boobu moo ko ne technopole lañ leen yóbbu ak dañ leen yóbbu technopole jëlee leen fa dugalaat leen biir arène ba. biir arène nationale ba pare mënatoo leen di leen dóor ay cours booy boobu ñu escanté ba defeere ko kooku moo wax loolu Ibba waaw te kooku moom tamit daa sonn waaw non moom nii noo moom kii nañ ko defeere nañ ko waaw nañ ko non kii maa ko yar ndax tey jii man ak moom ñii ñun ñun suñu maam ñun moo ñu yar ñun suñu maam moo ñu yar waaw moom yaayam dafa teel a gaaju sama maam nag yor ko benn moment sax sama yaay jëloon na ko yóbbu ko Tëngéej ñu yeewandoo benn kër ma nag moom waaw benn kër ñu koy yeewandoo sama rax la du ma dugg Pikine tey déggante teewu te seetu ma ko ba gis ko waaw nit ku baax la te tamit alalam du ko booleeg mindeef waaw tey tey jii fii Pikine fii amul kuy taxaw ne mu musul lekk xaalisam waaw lu mu yor ci poos bi yaa ko moom waaw waaw waaw waaw waaw ok merci jërëjëf mais daal man li ma siy dolli mooy lenn la policiers yi nan nañ wax ak ñoom liggéeyuñ ñoom seen bopp xam nga nit booy booy aar ay nit da ngay jubale mais ñoom jubuñu ñoom ñooy band yi ñoom ñooy criminels yi boo bëggee dégg-dégg te lii moom duñ si bàyyi dara xam nañ leen ñoom ñëpp nag bu si état deful dara dinañ ñu rey ñun ba ñu jeex par kenn par kenn waaw merci jërëjëf. ah gisoo ma ko ma bëgg ma ne ko kon naa la dencal sama caat mu ne kooku de mën naa ko xaar parce que ñoo. mun naa ko xaar parce que dañoo déggoo ma ne ko amul problème ma woo mag ji ñu waxtaan ba pare man la maa ngi dellu Tëngéej ma dellu Tëngéej ci guddi gi lañ ma woo di mu wax problème bi man la loolu mu mën nekkee vidéo yi yëpp gis ngeen ko ni policier yi duggee yàq sagaz yi néegu jàmbur ki leen tax a jóg mus ñoo fekk ci moom benn drogue. ñoom am kenn ku leen tax a jóg am na ku ñu doon wax xam na benn booy bi ñu doon seet si foofu mais même boo bu même kooku boo ko fekkoon ñu wax la ko fekkoon moom dara mais loolu lan nga ko war a def mais nañ bàyyi li ñuy def di toroxol xale yi ñoom ay nit lañu comme ñun dañ leen a jur ñu am papa am yaay xale yi am papa am yaay mais nañ bay la ñuy def lii nag bés bu ñu ko bàyyiwul ah képp kuñ ci xam nga rey nit nañ la rey. parce que loolu mooy xamante ne gis nga gis nga sa doom ji ci li nga xamante ne ni moo di ci hôpital bi état de santé maanaam yaramam wér gu yéem. non lii dafa ñaaw gis ngeen lii ay geste criminel dëgg lañ def non kii xale bi boo xoolee bopp bi dañ ko def bu ko ma wax sax ñu ni famille bi di yëg xeer pavage yooyu ñu doon wax bopp bi yëpp lañ yàq. faar yi côté nopp bi sama xol bi dafa jeex daaw ma jooy de mais tey dama jooy ah di pour lan amet ma xool est-ce que ëpp na ëpp na vingt cinq ans ëpp na vingt cinq ans. ndax autopsie bi génn na wala. yëpp génn na ren nañ ko commissariat ba mu bindal ñu kii bi ñu yóbbu ko ci procureur bi procureur bi répondre nañu ba ñu jëlaat papier yi delluwaat ak hôpital ñu libéré ñu corps bi. yenn autopsie euh, autopsie yi yenn papier yi ñu ngi ak suma jarbaat bi yooyu yëpp ñu ngi ñoom maa leen nañ ko garder pour l'instant waaw. non autopsie bu kay li ci def dafa ñàng sax man moo tax cause yu blessure yëpp mu ci après booy bu paree moom mën na la ko woon comprendre nga en tout cas lii daal dama bëgg ni état na yëg lii mooy surtout président am nañ président bu bees na taxaw ci lii ñoom it jaar nañ ay policiers yi ci lii ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ñëpp. kon xam nañu police actuellement deful liggéeyam ñun ay ancien militaire la ñu de mën nañ faj suñu bopp mais nañ nañ bàyyi li ñuy def ñun bi ñuy servir euh, suñu dëkk ñoom juddu wuñu. da ngeen a déposé plainte wala yéen famille bi. plainte bi ko déposé avocat bi dina ko déposé bu jaree jër téeméer avocat bi wallaahi yaasim dinañ ko def. ndax moom kese la woon wala dafa am ñeneen ñu mu àndaloon. non ñoom ñett la ñu woon ñett la benn booy ñoom gaañ nañ ko boo toj yàq bëñ yëpp kanam gi même chose mu ngi fële ñu ñu taxal ko ñu dañ koy dañ koy àtte waaw. nee booy bi geste criminel la doon dem koo bëgg rey mu fayu koo bëgg a rey du fayu ah léegi la nañ bëgg di rey nit ki mu toog ñoom nit da ngay wax ak ñoom sax pare woo ñu mbéj la boo ñëwee ci brigade ba soxla kii keroog bu booy bi tëddee foofu kii dafa jam foofu di ko xool waaj da ko ne dégage loolu war na leen ñoom ñu ñoo leen fi teg. mais bi nga xamante ni àkk si nañ xela yooyu ndax fekk nañ ci ñoom dara wala ba léegi amuñ ci ñoom benn preuve. dara amu ci ñëpp témoin yaa ngi fii témoin yaa ngi fi ñu ko fekkee benn benn benn ñoom ñëpp a ngi fi amul benn bi nga xam ne ñoom mën nañu wax ne yor nañ ko fekk ñu ci ñoom dara ñoom bu ñu yaakaar yàlla amul yàlla am na. ñu xale bi wax dëgg yàlla ku ñàkk ñaan la lu mu am alalam boolewu ko kenn ñu nii di fa même de ah wax dëgg yàlla moom danañ yëngu ci ay laadum ak yooyu yëpp ah. yooyu yëpp mi ngi ak moom laadum yaa ngi fi xar yu ndaw yaa ngi ay ginaar ak yooyu yëpp da koy jaay mais tey loolu xale bu koy yëngu même bu fekkoon ne nekkoon na xale bu bon tey bay def lii mais police moo ko war a encouragé mais police mënta xale yi bu ñu yoree xaalis nga bëggoon nangu xaalis boobu pour lan ñoom bu ñu bëggee xaalis nañ ko liggéey nañ ko liggéey. am ngeen preuve que ne police moom moo ñëwoon ci néeg bi. ñoom la ñu xam leen du ñeen ñaa ngi dëgg fii nañ génn. nañ génn merci beaucoup ñu ngi lay jaale bu baax di la masaw mhm. ah mais jërëjëf mi ngi nii daal maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm parce que bi mu leen ko waxee boobu ba léegi bàyyiwu leen yéen a ngi ñëw waaw man kay li ma leen di ko li ma leen di ñaan rek lii ne état fexe ba yëg ko parce que ñu ne du ñu bàyyi état bu bu ñu amu benn firne ni état def na liggéeyam ñu ne day du ñu bay mais état bu deful liggéeyam leen lan ngeen fas yéene. nañu def ñu rey ñu jeex peuple yëpp xam na ne rey rey nañ ñëpp loolu moo gën. policiers ay civil lañu nañu dem jàng dem armée moo gën lii ok. heure bi lan nga wax nga ne. man man benn affaire rek ma metti ci ñoo xamante ni am na tënk yoo xam ñoom ñoo la waroon di la sécuriser jàpp benn booy bu ndaw war sëñ Bamba jàpp leen dóor ay dóor yu metti loo xam ne tagul si benn yoon. ñun jouru dëj Mouhamed bi. ba si dóor ba si jouru dëj bi ñu dañoo toog ñu ñëw fekk ñu fi dóor di dóor ay lacrymogène lii kenn kenn xamul lii kenn xamul ban dëkk la war na sëriñ Touba lii kenn xamul benn ban dëkk la ñun inspiré ñun inspiré ñun inspiré xamal la ñu war rek ñu dóor ñu war na sëñ Bamba. fii ne instant ñu ngi koy maltraité seen oto nii nii nii tax xeebuñu li ñu def tey ñu waat foofu di kii ñun bañuñu ci dara fii ba su am kuñ ci jàpp dañ fa am kuñ ci nii di ko maltraité seen moroomu bàyyi ci boppam nii nii man dañ ma naroon a fël moom mooy leen ñu rey booy ba pare ñëw si dëj bi di saltel dëj bi loolu buñ ci jàpp ñu ñu leen bàyyi day ci ñu nekkee suñu mag ba pare buñ ñoo mag ba pare ñu ñu ñëwaat diñ def li dañoo sonn dañoo dee mënuñoo door ko ko mu dee ñun ñu ñàkk pour la pour na ñoo sonn waay ñi bu leen yi ni koy gisee ñu ngi file ci pikin ci dëju ki nga xamante ne nii moo di euh, Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo waa police Pikine la waaw jërëjëf mbokk internet comme ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xam ne moo daal di ñàkk bakkanam yéen a ngi koy gis nag li nga xamante ne nii moom moo fi xew nekk lu doy waar ndax bu ñu demee ba nit nekk ci naqar ay lacrymogène ay dóore di lacry. xale yaa ngi xeex ñëpp a ngi xeexoo sonal nañu nit ñi ñëpp a ngi daw lacrymogène yaa ngi nii wax dëgg yàlla li metti na. métti na trop leneen doomu jàmbur ji ñu rob ko bari ñu policiers yi ñëw di leen ñaaw di leen tur di leen sol ay du dëkk du yoon nit ñi sonn nañu sonn nañu mbaa doomu jàmbur yi ñuy rey lii war nañ cee wax lii war nañ cee wax mi ngi noonu war nañ cee wax nañ ko sonn nañu sonn nañu sonn nañu sonn nañu dañu arrêté nañu arrêté lii nañu arrêté teguñu ko fenn lii mooy lan lii mooy lan lii mooy lan yow yaa ngi rey doomu nit ba pare ñun ñu ngi defal doom yi di muñ di leen defal suñu doom yi démb ba léegi ñu leen di defal nañu dal nga rey suñu doom ba pare ñuy sang dem di suuli ngeen attaqué leen waat ñoom ñooy ban am ban monde lañ nekk léegi ban adduna la nekk léegi li ñoom lan lañ bëgg lan lañ bëgg nañ ñem sa amee rey nañ ko mais bu ñu reyalee si ban adduna lañ nekk yow dangay tooñ ni ka pare rey ko ñoom la ñuy seet si moom gisuñu ko jëlee na fekk nañ ko këram jëlee ko këram dóor ko yóbbu ko technopole ba dóor ko rey ko yóbbu yóbbu ko hôpital indil nañ ko jël nañ suñu suñu néew suuli nañu waa jàmm naa nañ ñu may jàmm mais doxaat ñoo fekkaat ñu fu ñuy dajee suñu daj di lekk ñu attaqué waa ñu ak ay lacrymogène dañu rey ay borom yi xool la ñu ay nit lañ ay jaabi yàlla lañ buñ ñu rey buñ ñu rey lii nag leneen lu ci am ñoo ko nit seen bopp buñ ñu rey na ñu may jàmm jërëjëf jërëjëf internet yi. amuñu droit ñëw ci dëkk jàmbur xam nga di di di la pharmacienne du yoon quoi bu dara ñu xool ñi dañoo am métit ba pare bu leen teg beneen métit policiers yi xam nga nañu bàyyi di téye gars yi di ray nit bu defee loolu yoon da nga koy yóbbu si kii nii at si yoon yoon ate ko mais du noonu c'est pas professionnel quoi. non nu nous xam nga nous voulons la justice quoi vraiment nous sommes marre nous voulons la justice Pikine gars yi dañoo respecté wul te fii ay noobu la fi dëkk. ay jàmbaar ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ñun Pikine lañ gëm ñun Pikine lañu sagoo xam nga mais nit bu defee lu dul yoon yóbbu ko si yoon yoon atte ko mais pas nga koy fitnaal yàlla buggul kuy fitnaal doomu aadama ba pare non seulement ñi ñëw si dëju jàmbur ba pare di dóor di dóor ool yi loolu du yoon du benn yoon du yoon ki ñu rey nii sama jarbaat la sama jarbaat la sama lépp la xamul dara lu dul liggéey liggéey rek la xam te moo yoroon ay famem lii dafa ñaaw gi boo jàppee nit bu nekkul si yoon da nga koy téye yóbbu ko si yoon ñu jaarale ko si yoon waaye di dóor nit yóbbu ko ba buntu police naan dafa yomb yóbbu ko ba continuer moom ba technopole di ko dóor ba damm ay faaram. dafa metti toj ndaalu bopp bi xale ndaw. lekkagul dara ci àddinaam te famem yaayam ak papaam bu yàggul rek la ñu génn àddi dete moom moo yor ay famem lii dafa ñaaw léegi léegi la ñu doon tànn ay la chromosome dañoo daw renfort la ñu yor ñu ngi nii rey ba pare waxatuñ ci dara ñu indi wat ay renfort di ni kii ñu woor ba woon dañ ko tàmm du bii yoon de du bii yoon dañ ko def dañ ko tàmm habitude la ci ñoom dañuy dóor dañ lay fekk sa biir kër dóor la ba nga bëgg a dee saboté la yàq say bagage toroxal ki li ñu def ni teguñu ko fen dañ ci war a wax nguur gu bees gi dañ si war a wax nag ñi jël mes am ñu benn droit di dóor ku lan dóor xale la xale la moo ñaari yoon jërëjëf mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed nekk jeune bi nga xamante ni moo fi génn àdduna waaye gis ngeen mbir mi dafa euh, mujjee metti ndax gis ngeen ci dëj bi ay lacrymogène la lañu fiy dóor xeex commencé fi am ay jàppal yi mu nekk loo xamante ne nii metti na fi mu nekk nii nañu ki nga xamante. dóor leen ba rey leen teguñu ko fenn suñu ñëwee laaj gërëse joxuñu leen gërëse rek ñu sonal leen dóor leen ñi ñoo la xale ci boppam Modou ñu indi fi waruñu ko indi waa du yoon Modou Baye Fall la Modou dooñu kenn dugul ci kenn moo ko amee taaya wóor na yàlla nit ku baax lañ rey nit ku baax lañ yóbbu teguñu ko fenn ko fii nañ bàyyi jàmbur defu leen dara la yéen nañ koy dégg nañ bàyyi jàmbur deful kenn leen mhm. metti na am na taay amal nañ ñëpp baax na yaru na mais nii fekk nañ ko fa fekk ci loo xamante ne yorul dara dara social dong la doon def ñu rey ko nii nii moo ngi li nañu metti xaritam bi xaritam bi boo gisee ñu def li lii moo leen metti niñ ko def nii dañ kaa rey rey bu ñaaw rey bu ñaaw lañ ko rey ba pare ñëwaat toroxoñu suñu biir dëj waaye yéen nañu xaar léegi laaj nañ la ndax luwaa am na ci dëkk bi nag lii luwaa la wax leen nag lii nag naqar bii nag mënuñu ñu ci àdduna mënuñu kaa fàtte. léegi suñu ndey yaa ngi nii booba ñu jooy ñu rey ko tëj ko ci nekk une semaine ñu rey ko tëj ko mënuñoo xamee message ci lu mu nekk buñ demee di ko seetu duñ ñu may sax ñu gis amee taay lan ñoo gën a am lu ñu métti ñun ñu bokk moom ah boobu dee la ah, ñu nëbb ko une semaine yàlla ñu mu dee ñu nëbb ko door ay birig ak lépp lañ ko doon door amet daay daa attan loolu ndaka boobu sama xarit bi ma nekk si biir oto bi may naan ñii ko ñuy door door yi métti na mu mel ay xeer la ñuy door si biir oto bi ñuy door maa ngi naan ay waay ñuy soxor nañ ko ñuy door si oto bi yaagu tuuti Ibrahima Ndiaye ñoo ne ma sa xarit bi la la gars yi jàpp fee ma ne ko fii lañ romb di door taay si jour bi la dee am na taay si jour bi si jour bi la dee sama xarit boobu si jour bi la dee massa massa bilaay metti na metti na metti na ñàkk sa mbokk ba pare teg ci di dund li nga xamante ne nii moo di naqar ak fitna ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xamante ne nii yaakaar naa démb gis ngeen image yi ci wasaare tey jii lañu ñu ci dëj bi ndax magam boobu wóoluñu fi puusal ma jaar ma ne ko boo dee demu nga rey ma barki maam seera fa ma daw sonko mu daw dugg si biir oto bi billaahi 23 heures lañ ko rey billaahi te na boo leen ko door ba mu dee. fii xeeru pavé la nga dóor ci femme. amee daa tuuti amee maa ko ëpp xoolal ma nu ma tooy. som nit. billahi mais dañuy rey rek mais duñ taw ñoom Diop lañ sant Diop parce que Serigne Touba Mbacke billahi wallahi taalaay mardi lañ ko rey mardi dina ndësal affaire bi dina ndësal affaire bi ba kañ ba kañ daa war a jeex Pikine grand daa war a jeex Pikine masa masa doy na waar masa billahi metti na uh-huh. Uh-huh. ñu jékki-jékki gis nga ko kon li ma doon wax sànq gis nga leen policiers ay criminels lañu ay assassin lañu gis nga lii état état na ci jóg parce que munoo nekk ci dëj même boo amee ak ay booy problème fële mais nga xam ne yow yaa rey ki dem mais waroo ñëwaat ba ci dëj bi imaam ya fa toog ak lépp nga defa dóor ay lacrymogène mais lii lan lañ bari Sénégal lañ ne bari Sénégal lañ ne mais lii lii lan la non yeneen yeneen bakkan lañ bëgg ñoom nañ sivilu ñëw bu ñu fekkee ay góor lañu nañ sivilu ñu ñëw nañ ko def ñu xool wallaahi duñ ko duñ def comme jigéen nañ ko def ñu ñëw waaye ñu xaj la ñu waay jërë ngeen jëf mbokk internet yi yaakaar naa ne fu mu nekk nii eh, gis ngeen li nga xam ne moo xew file euh, ci Pikine dégg ngeen nag magam bi daal dinay jot ci li nga wax ci li nga xamante ni moo di autopsie beeg yooyu fi mu nekk nii gis ngeen li nga xam ne moom moo fi xew ñu ngi taxaw ak koo xam ne mag la aussi si famille bi dañ koy bàyyi rek moom mu tamit moo wax ni mu ko gis. de m'exprimer en français. Euh, c'est une population meurtrie, traumatisée, qui vient juste d'enterrer son fils, l'un des dignes fils de ce quartier, Mohamed Diop. Euh, nous l'avons enterré parce qu'effectivement, il est d'une bavure policière. Les policiers, en l'amenant, l'ont traumatisé. Et nous avons constaté dans le certificat de genre de mort euh, qu'il a été euh, euh, tué d'une mort très violente. Selon le médecin légiste, euh, il subit beaucoup de traumatismes, euh, des fractures euh, de quelques côtes, des fractures crânières, ce que nous déplorons. Et nous espérons que le procureur de la République sera saisi, va s'autosaisir même pour que justice soit faite. Parce que vous avez vu comment les jeunes sont excités aujourd'hui. Parce que un de leurs est parti dans des conditions très douloureuses. Nous avons espoir en notre justice. Nous avons l'espoir qu'au lendemain de cette élection, cette ère nouvelle qui vient de s'ouvrir dans notre pays, avec l'arrivée de M. Diomaye Faye à la tête de ce pays, qu'il n'y aurait jamais plus d'impunité dans ce pays. Que cessent toutes ces bavures policières une bonne fois pour toutes. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de prendre à bras le corps cette situation-là, pour que cela puisse s'arrêter à ce mort-là. Sinon, Sinon, nous allons compter d'autres cadavres. Parce que vous voyez ces jeunes, ils ne sont pas là pour, euh, euh, euh pour, pour, pour, faire les yeux doux à la police. Ce qui est sûr et certain, tout policier qui ose s'aventurer au dehors dans ces jours-là risque sa vie. Et c'est dommage que les, les, les autorités aujourd'hui entendent le cri de cœur des populations entendre le cri de cœur de ces jeunes et qu'on ne fasse pas quelque cas, arrêter l'hémorragie quand il est temps. En tout cas, nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que ceux qui sont artisans de cette bavure policière, que ceux qui ont les messieurs de sang aujourd'hui, le sang de, de, de, de, de Mohamed Diop, que ces gens-là soient euh, ngeen euh, li nga xamante ne ni moo di euh, kilifa gi moom tamit daal dinay wax waxaale li nga xamante ne ni moo am ci autopsie bi waaye ci ki nga xam ne moo di génn àdduna Mouhamed Diop moom tamit gis ngeen vidéo yi ci wasaare bi dugaloon nañu ko gis ngeen li nga xam ne tey nag moom moo fi xew ci jour bi nga xamante ne ni moom la ko denc di ko saraxal mu nekk loo xamante ni lu metti la ndax ñàkk sa mbokk ba pare boole ci ak ay xeex wala ay lacrymogène la lu day xaw a metti nañu ñaanal ki nga xam ne moom moo fi euh, bàyyeekoo te yàlla yërëm ko xare ko aljanay si fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge mais tey nit du ñàkk ba pare nga koy gën a dolli loo xamante ne ni kenn du xam kenn du mën a. yaa ngi gis du sit dëj lañ nekk dañoo dem suul ji lii léegi léegi ñëw même pas une heure de temps ñu ñu ko mu ngi nii lu amul preuve bu leer naññee ñoom ñoo ko sànni léegi ñun lii senegal lii lii lii nii si ban réew lañ nekk quoi sa ñi ñii bakkan lañ jël bakkan bi ñu jël kii nii barke leeru arxuraan laa la wax de man man mii man sama jëma bopp maa mën a seere ci moom lu bari ndax dama doon nekk moom tout le doon defal ay jaamu yàlla nag lu baax rek barke leeru alxuraan koor gi nii ba nu koor gi commencé ba nu muy jeexee day xëy di joxe ndogu barke Cheikh Ibra di ñaanal gars yi jàmm ak wérgu yaram ak gudd fan te moom tay xool ko Fall yow Fall ñun nekkuñu Sénégal senegal waaye yow waaye yow réew mi daa nekkoon réew. Eh, lii teel lay soog a feeñ soxna si. lii man victime laa mos nañ ma ko def def nañ ma lii si xam na laa jotee ñoom. dañoo ñëw fekk ma si milieu di ma laaj carte d'identité ma ne ko présente toi indicateur la ñuy àndal dañuy doon policier ñaari ñu ànd ak lu ma cinq police kii indicateur ma ne ko présenté sa kii sa carte professionnelle mu ne ma yoo xam nga lépp di ma wax li ma ne ko eh man xaw ma la li ma sëkk yoo xam nga lan la carte d'identité nga woon ma sa carte ñu dóor ma xoolal mu dóor ma may xeex ak moom de ñu yóbbu ma ba fële technopole ñoom ñëpp téye ma man ak man la Birane Faye ak benn gel téye ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu ba sama bët yi di reetal est-ce que ma gaañu ba pare jël ñaari paquetu yamba sëf ko keneen ki biraan ne ko moo ko moom man ñu ne ma veillé est-ce que ma la lii c'est pas la fois kii la ñett lañ jàlloo la Henri ak beneen jaago seen brigade boobu kese a xaaraar ñoom kese la waaw te duñ dara ay sàcc lañ man maa ko wax ay sàcc lañ ay doome xaram pire lañ. doom d'accord gaa ñëwal xalil euh, ñëwal tuuti ndax dégg naa ñu naan kii bu deewee xaw ma euh, soxna si nga xamante ne nii moom fi mu nekk nii sonn na du ngeen ko yóbbu hôpital du ngeen ko woote. damay laaj ba xam man damay laaj man ba xam policier am nañ droit ñëw fii te amuñu autorisation. mun nañ génn te dañu am PV commissaire nee na doom génn nañ te amuñu PV loolu mun na nekk mun nañ rey suñu nit boom ko rey ko ma mu dee ñu bëgg ñoo reyaat waa ñun ban réew man mënu ma wax sama xol dafa tooy. xanaa ñëpp ma wax yóbbu dem dooma raam. naqar par ñëw di yàq suñu daj ay gërënaat doomu xaraam yàlla na yàlla àtteeg ñun ci kaw suuf barki Sëriñ Fall yàlla na yàlla àtteeg ñun gàtt day suñu yàq trop rey bari ñëw yàq suñu daj ay magi jëm wóor ba ngoon ñu daanu dafa ne loolu rafet na sunu àqat na leen dal barke Serigne na leen fii ku fi dee rek ñoom ñoo leen metti na metti na trop gis ngeen li nga xam ne moo xew ci jouru dëju bu Mouhamed. voilà salaamaaleykum waa Wasaare TV lii na ngeen fexe mu dem si Jomaay fay ak président Ousmane Sonko parce que lii dafa war a yegg si ñoom ñun ñun ñu ngeen di gis tey ji ñu taxaw fii nii ñun ñoo doon xeex biir Pikine bu manifestation amee bu injustice amee bu jàppee Sonko ba Adji Sarr defee lu ko neex keneen ak keneen ak keneen ñun ñoo doon wàcc terrain bi di xeex tey nag déguisé wuñ duñ kagulewu yéen yéen a fi nekk bu fekkee sax dañ ñoo jàpp tey deux jours prochains na ngeen ñu génnee xam ne dañ doon dañ doon xeex dignement on veut plus la police nous voulons la gendarmerie et nous réclamons la justice pour Ahmed Taya naka ñëpp yëg amul diaspora bi naka ñëpp xam lii naka Mollah Morgun live ñëpp jot si lii yoon lii gis nga buñ ko bàyyi mu jàll dinañ reyaat beneen beneen dañoo yaakaar ñun ay ay ay ay malfaiteur lañ ay malfaiteur ñun ay soudeur lañ ñun état dañoo reconnaître lu garaaw laa la wax policiers yi dañ ñuy saagaloo ñi dañ nice quoi jërëjëf fi mu nekk nii seen xol moo neexul ndax comme ni ma koy waxee nga ñàkk sa doom ba pare mbir yu mel nii ñëwaat dal ci sa kaw kilifa gi léegi loo wax nga ne. waaw ma ne man Sénégal man dama xamatul ñun si ban réew la ñu ne. mu noo rey nit say élément rey nit ba pare police dóor nit ba mu dee si ñuy dëj ñu fekk ñu fa di dóor ay lacrymogène te dëj bi am na fi ay nit ñoo xam ne tey jii daanu nañ daanu boo xam ne ni tey lu leen mënta dal responsable bi ñoom la. waaw ndax tey mënuñu rey ñun suñu rax ñu am lu ñu metti dem suuli ba ñëw ñu fekkaat ñu fi du ñu dóor ay lacrymogène xale yu ndaw yi lacrymogène si biir kër yi xale yu ndaw yeeg liir yi ak maire yi màgget ah mais mais ñun si lan la ñu nekk lan la ñun kenn xamatul lan la rey suñu rakk ñuy jooy noppee ñu fekkaat ñu si biir dëj bi di dóor ay lacrymogène lii nañ si wax wala ñoom léegi ah suñu bakkan xoola dañ leen koy jaay boo bëggee dégg-dégg suñu bakkan dañ leen koy jaay waaw d' accord jërëjëf yaakaar naa ne yéen a ngi gis li nga xamante ni moo di image nga xam ne moo xew ci dëju Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo démb bi ñu fi ñëwee tey nag ñu xëyaatoon ñëw ci li nga xam ne moo di sarax bi waaye li nga xamante ni moom ngeen fii gis daal di nay lool ndax bu ñu demee ba dëj ay lacrymogène di ci am ci weeru koor bi nga xam ne am na ay mag ñu fi nekk am na ñeneen ñoo xamante ni feebar nañu fi kon mbir moom mu doy nañu ñaanal ki nga xamante ne ni moom moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko ko xare ko aljannay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge gis ngeen nag ñun dañu ñëwoon rek ngir bokk ak famille bi euh, tiis bi waaye bokk ak ñoom naqar bi waaye fu mu nekk nii yaakaar naa ne euh, tiis bi ak naqar bi dafa nekk loo xam ne dafa booloo double ci euh, li nga xam ne moo mi nga xam ne la mi nga xam ne moo fi daal di jóge kon yéen a ko gisandoo yéen bokku internet yi ci li nga xamante ni moo di ci image yi kon na ci président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di wax na génne kàddu jëmale ko ci balaa moo gën a metti wala balaa moo gën a tiis ndax bu demee nii wala mu gën a lii defee nii rek xëy na dina yegg foo xamante ne nii yaakaaruñu ko woon comme son excellence monsieur le président de la république Bassirou jomay Faye bi mooy première kaawam boo xamante ne nii gis nañu mu metti lool kon ñu ngi koy ñaan bi sabilillah mu jàpp ci teel ci àddu balaa moo yegg foo xamante ne nii duñu ko fa foogee ndax bu ñu demee bu ay dëj lacrymogène di di ci am fayantoo di ci am bu wax rek xëy na dina egg foo xam ne fay yuuxu dafañ fooge wutoon loo xam ne dina metti lool ci côté yëpp nag ci côté ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy famille waa ji ci côté ñi nga xamante ni moo di ay xaritam ci côté ñi nga xamante ni ñoo yor sécurité Sénégal kon ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye ñoo ngi lay ñaan rek nga gaaw addu ci li nga xamante ni moo xew Pikine ci dëju ki nga xamante ni moo di Mouhamed di jeune bi nga xam ne moom moo fii daal di bàyyeekoo comme ni ngeen koy gisee jël nañu famille bi jël nañu magam jël nañu tamit ñi nga xamante ñuy wax ci autopsie bi nga xamante ne ni daal dinay génn kon yéen a gis image yaa ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci seen bi di wasaare di leen jox rendez ba beneen yoon incha allah ak yeneen i actualité ak système benn taalibe sëñ Abdoul Karim Mbacke bu mag bi jaajëf. lay nuyu. ñoo ngi lay bu baax. tur bi bi Iba Diop la. Iba Diop nga nekk grand frère ci Mouhamed mi nga xamante ni moom moo fi dal di bàyyeekoo nga yoroon li nga xam ne moo di autopsie beeg yooyu ndax mën nga ñu wax ci kayitu autopsie bi lan la génne ak yi nga xam ne moo xewoon ci hôpital bi. waaw li si hôpital ba mooy daanaka affaire torture la rek. jël nañ xale bi dóor nañ ko dóor ba daanaka biñ koy yóbbu hôpital sax presque dee na la ñuy wax rek. bi ñu ñëwaatee ñu def lu ñu war a def kay autopsie bi génn bi autopsie bi génn tamit wanewul lu dul ay yax yu dammook ay faar yu damm ay mbagg yu damm yooyu dong moom lañ fi wane te bu ñu wanee loolu tamit kuy autopsie dafa doon lu leer loo xamante ne ñun mënuñu si dara mënuñu si dara waaw rayal nañ ñu nag suñu rakk koo xam ne amaloon nañu njëriñ njëriñ la ñu amaloon ndax euh, daanaka suñu lu bëri moo ko yoroon ndax mu ngi liggéey mu ngi def lu mu war a def ñun fu mu war a jaar ak ñun mu ngi jaar ak ñun foofu autopsie nag lu mu génnee dafa doy waar lool lool lool sax dama doon sax ragala a wane affaire autopsie boobu bëri ay fracture autopsie bi li mu ngi nii léegi léegi dinaa la ko jox nga xool ko ndax loolu ko ko xool xam ni carrément te dañ leen tooñ ba si kanamu yàlla li ñu leen toojee fekk naa la si biir néeg yaa ngi ndogg sa ndogg mais jarul ñu lay takkal bu ñu amee soupçon nañ ñëw def li ñu war a def te bu ñuy dugg si kër war nañ am mandaa bi ñu dugg amuñu mandat amuñu dara mënoo dugg kër jàmbu rek yuuxu saaga dóor li nga bëgg amoo ko nga ne dañ may jox lii nga saaga nit mu fayu nga ne da ngaa réew nga yëpp ko dem si oto dem yóbbu ko. mooy euh, ak lu ñu ma ñàkk présenté carte man bi ma ñëwee ñu ma kart ndax dama ñëw fekk ñu jël booy yi ba yóbbu leen bi ñuy génnee booy yi man ci laa yam dégg ak menaces yi leen doon def ak saaga yeeg dinañ leen yóbbu loolu man dégg naa ko ci man bañ leen yóbboo nag bañ demee police nag man xam naa ñoo xam ne ay policier lañ loolu man xam naa ko ci te gis naa ko ci te ñeneen ñoo xam am ñeneen ñoo xam ne ñoom ay policiers am na si ay ASP ñoom ñëpp xam nañ seen tur mën nañoo tudd seen tur benn par benn ndax xam nañ seen tur ñoom ñëpp waaw. bi nga xamee ne te ne gis nga ko moom euh, maanaam yaramam lan fa la am ay gaañu gaañu. man avant autopsie am biñ koy njëkk a évacuer di ko yóbbu dalal jàmm man ma nekkandoo ak ñoom ak ci biir li ma nekkandoo ak ñoom ak ci biir yëpp di ko yóbbu man kii laa gis si moom lu ma gis si moom daal man gis naa ne yaram bi tëccu na. loxo bi neewi na man xam yaram bi yëpp toj na xam naa ni kii dafa damm loolu xam naa ko ci moom mais biñ demee nag autopsie bi nag moom moo leeral yenn yi waaw mais lan moo li ndax gis nañu ba ci jouru dëj bi ay lacrymogène ak yeneen ak yeneen di ci xew. xam nga policiers yi dañ ñoo tooñ bëgguñu tooñaat ñaari yoon mu xam xamee nag moom mu xameetu nit ñi la mu xameetu nit ñi la ndax Mouhamed moom moo ji nit ñi teraanga c'est ku ne teraanga bi nga xamee ne loolu am na ñu am lu leen metti lool yoon war a def liggéeyam yoon defatul liggéeyam ñëw ba si biir dëj bi di fi dóoraat ay lacrymogène loolu teguñu ko fenn loolu teguñu ko fenn gis nga ni ñëw ba si dëj di fa dóor ay lacrymogène di jàmmarloo xale yi xale yi il faut ñu fayu ñoom tamit li dañoo am lu leen metti ndax ku leen amal njëriñ lañ def te yaakaar naa nag dañoo nekk si. nguur gu bees nguur gu bees yi nag war na mën a def liggéeyam lii war na si mën a taxaw te yaakaar naa bii mooy seen première cas war nañ see mën a taxaw ndax lii lañ doon séntu si ñoom ndax lii lañ doon xeex ba ñu jox leen nguur gi kon kat nañu def seen liggéey. d'accord lan nga ñu mën a jox ay kàddu seede ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. Mouhamed dafa di nit ku baax mu Mouhamed bëggul ku mer buggul ku ñàkk man magam laa ñoo bokk ndey ak baay dama yor jabar yor yi doom Mouhamed dafa ma teggil sama lépp. lépp la ma Mouhamed eggul ki taxawoon léegi wéeru ma nii sama doom la mu Mouhamed moo leen yor moo leen defar lu nekk moo leen koy defar su ma leen jox sax dafa naan bàyyi leen koor gi mooy joxe ndogu mooy joxe xëdd mooy joxe lu ñu togg ba fee mu jaral ko bëgg joxe moo ko jaral mu dem sa daaru fee problème bi amee di fa segg ndogu di joxe xoolul kenn ko ko jox dërëm wala ñaar lu mu yar ci ay xaram di jaay di yar ay ginaaram di jaay lu mu mu koy bokk ak nit ñi di ko bokk ñun ñii waaw. mais naka la demee fi ngeen ko yóbbu fan nañ ko yóbbu hôpital ndax moom ci yoon bi la ñàkkee ba kanam wala ci hôpital bi la ñàkkee ba kanam wala. ndax biñ ko yóbbu hôpital moom waxul deful dara biñ ko yóbbu hôpital ba ni mu gaañoo amul benn lenn lu mu wax waaw niñ ko yóbbu hôpital ba ñuy wax waxul dara waaw waaw. d'accord comme fi mu nekk nii yaakaar naa ne fi mbir mi mu ngi gën a metti dañu lay jaajëfal rek di la jaale di la saw mu ngi leen jaajëfal bu baax a baax. yaay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Seynabou Seck. bu lan nga ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi dal di bàyyeekoo. yaayam laa parce que maa ngi ñu bokk ndey ak sama rakk la waaw Ahmed sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal dal ci seen kaw di la ma saw bu baax a baax yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di jóge Ahmed dafa doonoon doom ju baax. dëgg yàlla ak yonente bi gëm boppam bëgg liggéey xoolul alalu kenn waaye dañ ma woo ma nekk kër Mbay Fall ñu ne ma yaay Amet dañ ko jàpp ma ne ko lan la def mu ne deful dara de dañ leen fekk foofu rek bi ñuy ndogu policier ñëw dugg fekk leen fa jàpp leen di leen dóor di leen palpe fekk ñu ci ñoom dara di leen dóor ah ma ne ko loolu du yoon ma toogaat ba ci kanam ñu ne ma yóbbu nañ leen ma ne ko fu ñu leen yóbbu mu ne nee na dañ leen yóbbu polis ba delloowaat leen ma ne ko déedéet ma toog a toog a toog ba min bi jot sama doom bu jigéen bi woo ma ne ma ah yaay yóbbu nañ leen technopole de waaye dañ leen a dóor a dóor a dóor ba amet daal mu ngi ci diggante dund ak dee wallaahi nee na noonu ñu jël ko yóbbu ko hôpital bu ñu dem nag duñ ko jël hôpital bu ñu dem duñ ko jël ñu mujjee nag dem principal bi ñu demee lañ ko dugal bi ñu dugalee Amet ñun bu ñu buggee dem gis Amet sax ñu bañ ñu ne duñu dugg pour gis ko mu metti lool nag waaw ñu naqar lu ko torop nag wax dëgg yàlla ak yonente bi waaw mu doonoon soutien de famille yor ay rakam yor ay magam man mi di wax ak yow mu yor ma lu ma soxla suba ba ngoon mu defal ma ko moom Amet bu yàggul rek laa ñëw na ko Amet sama téléphone bi laa bëgg nga changé ma mun a ma yaay dinaa la ko changé bu bees laa lay wutal maag yaay mi ñoo bokk ndey baay waaye daf ma def comme yaay wax dëgg yàlla yonente bi métti naa ko torop nag. ndax yaay ci li nga xamante ne ni jot nañ la ko expliquer ndax Amet dafa amoon problème ak ñooñu wala. wax dëgg yàlla amul woon problème ak ñooñu wax dëgg yàlla xanaa nag dañ koo soupçonné rek. waaye amul woon problème wax dëgg yàlla ak yonente bi jàmm rek lañ ko leen segg kafeem toog ñu fekk ko fa def ko lañ ko def dóor ko ba mu dee metti na nag ba ci kanamu yàlla waaye nag lépp dañ koy teg ci loxo yàlla léegi nag ñuy ñaan nag président bi mu def liggéeyam parce que lii dafa metti lii dafa war a jeex ci dëkk bi parce que du moom rek lañ ko def am na ñeneen ak ñeneen ñu ko def teg na technopole am na ñoo xam ne sa gisuñu leen am na ñoo xam ne gisuñu leen léegi nag ñun dañuy ñaan dimbal waa ñu jàppale ñu te yàlla tax président def liggéeyam su deful liggéeyam tamit ah suñu njaboot gi tamit dañ def seen liggéey. def seen liggéey ci naka. waaw foo ñu def seen liggéey ndax duñ leen bàyyi noonu di dox di leen xool nii di leen gis ñuy dem seen yoon ah déedéet mënuñu ko waaw dañuy ñaan nag président de la république bi mu def liggéeyam. ndax da ngeen a xam ñan ñoo ko def wala da ngeen a am njottu ci ñu ko def. am na xale yi am na ñu bari xam nañ leen. ci ñi ko def waaw ci ñi ko def man xaw ma leen waaye xale yu góor yi am na ñu bari xam nañ leen wax dëgg yàlla yéen am na ñu bari xam nañ leen waaw mu metti lool nag waaw daal moo nekkoon sama wax. Mm-hmm. d'accord ndax bi ñu euh, dóoree ba bi nga xamante ni sa doom daal dinay génn àdduna ndax jot nga ko gis wala. déedéet wax dëgg yàlla jotuma koo gis nee naa la suñ demee hôpital ñu ne kenn du dugg ñun ñëpp dañuy dellu si waat mm-hmm. wax de ndax loolu neex na ci xol neexul ci xol boobu ba tey sa doom tëdd hôpital mardi. ba ni mu gaañoo tegoo ko bët ndax loolu neex na ci xol ah, metti na trop nag. ban yëg-yëg nga am bi ñu la nee sa doom tëdd na hôpital ba ni ñu la nee sa doom daal dinay génn àdduna te gisoo ko tàggatoo ak moom sax tàggatoo gu mujj. defuma ko dañu maa wax bi ñu ma nee rek sa doom noppalu na man de wax dëgg yàlla nit ñëpp ma fekk sama kaw falaa daanu waa kër gi yëpp ñëw ba ci koñ bi ñëpp ñëw fekk ma sama biir kër waa ci laa jógee nag sol sama yére. ànd ak samay doom ne la ñëw leen ñuy dem parce que ma fi maa ngi dëkk Kër Mbay Fall ma ànd ak sama njaboot ñu ñëw fii waaw ki doon wax fii léegi kooku sama doom la ku góor ki waaw kooku sama doom la waaw. lu bari marqué na ma ci moom Ameth lu bari marqué na ma ci moom wax dëgg yàlla yonente bi ndax bu ma duggaan fii rek fa mu nekk laay dem Ameth nangam Ameth nangam mu laax waxtu mu yëkkati jox ma kon loolu rek daf ma marqué. marqué na ma torop munu ma nag wax yàlla xam na ko munu ma wax. kon daal mën nañu ne sa doom ji tey daal dina lay wéetal bu baax a baax. dina ma wéetal ndax saa yi bu ma duggee Pikine dem këram fekk ko fa fi muy fréquenté fa laay dem fekk ko fa mu toog ndeysaan bu ma egsee mu yëkkati la mu am ne ma yaay am demal nga ñibbi ma dem ñibbi kon manqué na ma torop dëgg yàlla ak yonente bi waaw ma la waxoon léegi rek moom laa lay waxaat na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam. nii rek mooy solution bi. jërëjëf yaa booy ñu ngi lay jaale bu baax a baax di bokk ak yow tiis bi. jërëjëf. c'est bon grand. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi siyaar bu baax soxna si. tur bi naka la. tuur bi tur bi Idi Sañ la. lan nga ci Mouhamed mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. waaw Mouhamed mi sama doomu ndey la. waaw sama raq la. waaw ñoom ñëpp man maa man maa si mag yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak waaw sama rakk la. sa rakk la gannaaw ba ñu la jaalee mosawu la ci tiis bi nga xamante ni moo daal di dal ci seen kaw yan information rek nga ñu mën a jox ci li nga xamante ni moom moo fi xew. waaw information yi moom mbir mi moom yenn yi tooñ la waaw ndax tey jii. tooñ tooñ si ndax nit même sax boo ko fekkee sax lu ñuy tere. amoo droit dóor man mii di wax ak yow damay waxee si ancien militaire. classe 2002 2002 laa dem armée dem Batpara Batpara laa nekkoon kon man tey xam naa loi lu mu wax ak lu lu mu tere mais loolu musul am si benn loi waaw mais ñoom xaw ma man lu ma mënul comprendre nga jàpp nit vingt heures ba ay minuit di ko yóbbu vingt heures lañ leen jàpp si biir kër gi sax foofu lañ leen njëkk a xam nga tamit nit nga fekk ko si biir néeg dóor ko pompe à ba pare ëpp buntu néeg bi mais loolu mooy la loolu mooy kon ñoom dañu jëloon question ne dañ jëloon kii intention pour jéem a rey booy. 20 heures ba minuit moom xale yi moom fan la ñu nekk. minuit bi wër nañ leen fu ne mais technopole ba lañ leen yóbbu xam nga ne koo yóbbu technopole yeew ko di ko dóor ay cours xamal ne kooku mooy dëgg danga nga koy rey ñoxante dëgg tamit yéen nii mais mais lii lii nii état da si war a jóg waaw ndax ñun tey jii lii du du duñu duñu duñu de. du ñu bàyyi. bu yaboo ñoom nañu préparé bu bu état deful lu leer lu gaaw dinañ ñu rey ñun par kenn par kenn. ndax am ngeen ay preuve que ne ay homme de tenue lañ parce que ñi ma ci jël bi ñuy ñëw dañu daal di ciblé ba pare joxuñu leen lenn loo xamante ni mën na leen présenté que ne ay homme de tenue. non ñooñu Pikine fii ñëpp leen xam xam nga Pikine fii moom benn bopp la Pikine fii xale bu ndaw sax day xamante koo xam ne mu ngi dëkkee beneen secteur ñooñu xam nañ leen fii bu baax a baax. te tamit ak ay ASP tamit dañ ci raxaale ay ASP te xam nga ASP moom amul droit sax téye nit bay dóor nit waaw. mais lan moo sabab histoire bi ndax ñoom dañ leen a tooñ wala dafa am leen lu leen di toppee wala lan moo indi problème boobu. non ñoom ñoom ñoom xamante nañoo booy boo bëggee dégg-dëgg ñoom xamante nañoo ak booy yi yàgg nañu di jàpp booy fekk booy di tux wala booy yor lu ñuy tere ñu encaissé booy xaalis. ñoom ak booy yi xamante nañu bu baax a baax xam naa nag lii boo gisee mu demee nii nag dañ doon jéem a encaissé booy yi booy bañ. mais booy loolu. non man loolu waaw mais loolu man moom wóoruma wax dëgg fa yàlla moom. waaw mais li nga xam ne man loolu lañ ma wax te dëkk si kër gi ñoo ma ko wax ndax man tëngéej laa dëkk. mais man fii lu xew Pikine man dama koy yëg waaw maa ngi tëngéej mais Pikine fii man sama lépp fii la waaw. noonu lépp. lépp après ñun ndax ñun lu si waroon këyit yëpp mu ngi ñun. waaw ni moo génn àdduna muy Mouhamed di sa ndax jot nga ko gis. non man waa gis naa ko ndax ndax man nii depuis boobu ba léegi man maa si toppoon di dugg fune pour lijjanti këyit man boobu ba nii ba tey jii talu ma sax lekk te maa ngi woor waaw bu man ndogoo ba naan kafe rek jeex na du ma nelaw. ko gisee ci yan anam nga ko gisee moom. noo man gaawuma jooy mais tey moom dama jooy. waaw man gaawuma jooy nag waaw mais tey dama jooy ndax man li ma gis tey bu ma juddoo ba léegi musu musu musuma ko gis waaw non gaañu gaañu yi dafa meti dafa métti bopp bi bopp bi faar yeeg moom daal yaram bi daal moom daa yàqu moom wax dëgg fa yàlla moom waaw yaram bi moom dafa yàqu waaw. bu dundaatoon kii nu mu mel nii kii boo ko gisee nii da nga xam ne kii même bu dundaatee sax du baax. waaw même bu dundaatoon sax du baax waaw. am nga kenn koo xamante ni expliqué na naka lañ leen doon dóoree wala lañ leen leen dóor. wala man kii bi sama sama kii bi frère bi moo yooga magam ku mu bokkoon day ak baay Iba Diop moom moom moo leen toppoon moom moo leen toppoon waaw mais kii bi euh, beneen booy bu ñu escanté ba wekki bëñi booy boobu moo ko ne technopole lañ leen yóbbu ak dañ leen yóbbu technopole jëlee leen fa dugalaat leen biir arène ba. biir arène nationale ba pare mënatoo leen di leen dóor ay cours booy boobu ñu escanté ba defeere ko kooku moo wax loolu iba waaw te kooku moom tamit daa sonn waaw non moom nii noo moom kii nañ ko defeere nañ ko waaw nañ ko non kii maa ko yar ndax tey jii man ak moom ñii ñun ñun suñu maam ñun moo ñu yar ñun suñu maam moo ñu yar waaw moom yaayam dafa teel a gaaju sama maam nag yor ko benn moment sax sama yaay jëloon na ko yóbbu ko tëngéej ñu yeewandoo benn kër man nag moom waaw benn kër ñu koy yeewandoo sama rakk la du ma dugg Pikine tey déggante te te seetu ma ko ba gis ko waaw nit ku baax la te tamit alalam du ko booleeg mindeef waaw tey tey jii fii Pikine fii amul kuy taxaw ne mu musul lekk xaalisam waaw lu mu yor ci poos bi yaa ko moom waaw waaw waaw waaw waaw ok merci jërëjëf mais daal man li ma siy dolli mooy lenn la policiers yi nañ wax ak ñoom liggéeyuñ ñoom seen bopp xam nga nit booy booy aar ay nit da ngay jubale mais ñoom jubuñu ñoom ñooy band yi ñoom ñooy criminels yi boo bëggee dégg-dégg lii moom duñ si bàyyi dara xam nañ leen ñoom ñëpp nag bu si état deful dara dinañ ñu rey ñun ba ñu jeex par kenn par kenn waaw merci jërëjëf. ah gisoo ma ku ma bëgg ma ne ko kon naa la denc sama caat mu ne kooku de mën naa ko xaar parce ñoo. mun naa ko xaar parce que dañoo déggoo ma ne ko amul problème ma woo mag ji ñu waxtaan ba pare man leen maa ngi dellu Tëngéej ma dellu Tëngéej ci guddi gi lañ ma woo ci mu wax problème bi loolu lu mu mën nekkee vidéo yi yëpp gis ngeen ko ni policier yi duggee yàq sagas yi néegu jàmbur ki leen tax a jóg fekk ci moom benn drogue. ñoom am kenn ku leen tax a am na ku ñu doon wax xam na benn boy bi ñu doon seet si foofu mais même boo bu doon même kooku boo ko fekkoon ñu wax la ko fekkoon moom dara mais loolu nga ko war a def mais nañ bàyyi li ñuy def di toroxol xale yi ñoom ay nit lañu comme ñun dañ leen a jur ñu am papa am yaay xale yi am papa am yaay mais nañ bay la ñuy def lii nag bés bu ñu ko bàyyiwul ah képp kuñ ci xam nga rey nit nañ la rey. parce que loolu mooy xamante ni gis nga gis nga sa doom ji ci li nga xamante ne ni moo di ci hôpital bi état de santé maanaam yaramam wér gu yéem. non lii dafa ñaaw gis nga lii ay geste criminel dëgg lañ def non kii xale bi boo xoolee bopp bi dañ ko def. bu ko ma sax ñu ni famille bi di yëg xeer pavage yooyu ñu doon wax bopp bi yëpp lañ yàq. faar yi côté nopp bi sama xol bi dafa jeex daaw ma jooy de mais tey dama jooy ah di pour lan. amet ma xool euh, est-ce que ëpp na na vingt cinq ans ëpp na vingt cinq ans. ndax autopsie bi génn naa wala. yëpp génn na rànd nañ ko commissariat ba mu bindal ñu kii bi ñu yobbu ko ci procureur bi procureur bi répondre nañu ba ñu jëlaat papier yi delloo ak hôpital ñu libéré ñu corps bi yenn euh, autopsie yi yenn papier yi ñu ngi suma jarbaat bi yooyu yëpp ñu ngi ak ñoom maa leen nañ ko garder pour l'instant waaw. non autopsie bi kay li ci def dafa ñàng sax man moo tax cause wu yëpp mu ngi ci après booy bu paree moom mën na la ko woon comme nga en tout cas lii daal dama bëgg ni état na yëg lii mooy surtout président am nañ président bu bees na taxaw ci lii ñoom it jaar nañ ay policiers yi ci lii ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ñëpp kon xam nañu police actuellement deful liggéeyam ñun ay ancien militaire ñu de mën nañ faj suñu bopp mais nañ nañ bàyyi li ñuy def ñun bi ñuy servir euh, suñu dëkk ñoom juddu wuñu da ngeen a déposé plainte wala yéen famille ko déposé avocat bi dina ko déposé. bu jaree jër téeméer avocat bi wallaahi yaasim dinañ ko def. kon ndax kese la woon wala dafa am ñeneen ñu mu àndaloo. ñoom ñett la ñu woon ñett la ñu benn booy bi ñoom gaañ nañ ko ba toj yàq bëñ yëpp kanam gi même chose mu ngi fële ñu ñu taxal ko ñu dañ koy dañ koy àtte waaw ñu booy bi geste criminel la doon dem koo bëgg rey mu fayu koo bugga a rey du fayu ah léegi lan lañ bëgg di rey nit ki mu toog ñoom nit da wax ak ñoom sax pare woo ñu mbéj la. boo ñëwee ci brigade ba soxla kii keroog bu booy bi tëddee foofu kii dafa jam foofu di ko xool waaye da ne dégage loolu war na leen ñoom ñun ñoo leen fi teg. mais bi nga xamante ni àkk nañ xela yooyu ndax fekk nañ ci ñoom dara wala ba léegi amuñ ci ñoom benn preuve. dara amu ci ñëpp témoin yaa ngi fi témoin yaa ngi fi ñu ko fekkee benn benn benn ñoom ñëpp a ngi fi amul benn bi nga xam ne ñoom mën nañu wax ne yor nañ ko fekk ñu ci ñoom dara ñoom bu ñu ne yàlla amul. yàlla am na ñu xale bi wax dëgg yàlla ku ñàkk ki la lu mu am alalam boolewu ko kenn ñu nii di fa même de ah wax dëgg yàlla moom danañ yëngu ci ay laadum mag yooyu yëpp ah yooyu yëpp mi ngi moom laadum yaa ngi fi xar yu ndaw yaa ngi fi ay ginaar ak yooyu yëpp da koy jaay mais tey loolu xale bu koy yëngu même bu fekkoon ne nekkoon na xale bu bon tey bay def lii mais police moo ko war a encouragé mais police mënta xale yi bu ñu yoree xaalis nga bëggoon nangu xaalis boobu pour lat ñoom bu ñu bëggee xaalis nañ ko liggéey ko liggéey. mais ngeen preuve que ne police moom moo ñëwoon ci néeg bi. ñoom la ñu xam leen du ñeen ñaa ngi dëkk fii nañ génn. nañ génn barkeel leen ci bi barkeel leen ci alxuraan merci beaucoup ñu ngi lay jaale bu baax di la masaw. Mhm. ah mais jërëjëf mi ngi nii daal maa ngi leen sant yéen di leen gërëm parce que bi ma leen ko waxee boobu ba léegi bàyyiwu leen ñëw waaw man kay li ma leen di ko li ma leen di ñaan rek lii na état fexe ba yëg ko parce que ñu ne du ñu bàyyi état bu bu ñu amul benn firnde ni état def na liggéeyam ñu ne de du ñu bàyyi. mais état bu leen lan ngeen fas yéene. nañu def nañu rey ñu jeex peuple yëpp xam na rey rey nañ ñëpp loolu moo gën ah policiers ay civil lañu nañu dem jàng dem armée moo gën lii. ok. sëñ bi lan nga wax nga ne. man man man benn affaire rek ma metti si ñoo xamante ni am am yoo xam ne ñoom ñoo la waroon téye di la sécuriser jàpp benn booy bu ndaw war na sëñ Bamba jàpp leen dóor dóor ay dóor yu metti loo xam ne tagul si benn yoon. ñun jouru dëj Mouhamed bi. ba si dóor ba si jouru dëj bi ñun dañoo toog ñu ñëw fekk ñu fi dóor di ñu dóor ay lacrymogène lii kenn kenn xamul lii kenn xamul ban dëkk la war na sëriñ kenn xamul benn ban dëkk la ñun kër sëñ Bamba ñoom am na ko ñu jàpp fii ne instant ñu ngi koy maltraité seen oto nii nii nii tax xeebuñu li ñu def tey ñi waat foofu ni kii ñun bañuñu ci dara fii ba su am kuñ ci jàpp dañ fa am kuñ ci am na benn paa bu ñu jàpp nii di ko maltraité seen moroomu baay ci boppam nii nii nii man dañ ma naroon a fël moom mooy leen ci lañ jàpp noonu paa ñu rey booy ba pare ñëw si dëj di saldel dëj loolu buñ ci jàpp dañuy taal sanday amul loolu amul lii fii leem ñu ñu leen bàyyi day ci ñu nekkee ñu ñëwaat ñu def li dañoo sonn dañoo dee mënuñoo booleeg ñàkk mag ñooy leen ñu ni door ko ko mu dee ñun ñu ñàkk pour lan pour lan dañoo sonn waay. ñii bu leen yi ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci pikin ci dëju ki nga xamante ne nii moo di euh, Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. waa police Pikine la waaw. jërëjëf mbokk internet yi comme ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di xamet mi nga xam ne moo daal di ñàkk bakkanam yéen a ngi koy gis nag li nga xamante ne nii moom moo fi xew nekk lu doy waar ndax bu ñu demee ba nit nekk ci naqar ay lacrymogène ay dóore di lacrymogène. xale yaa ngi xeex ñëpp a ngi xeexoo sonal nit ñi ñëpp a ngi daw lacrymogène yaa ngi nii wax dëgg yàlla li metti na. métti na trop leneen doomu jàmbur ji ñu rob ko bari ñu policiers yi ñëw di leen ñaaw di leen tur di leen sol ay du dëgg du yoon nit ñi sonn nañu sonn nañu mbay doomu jàmbur yi ñuy rey lii war nañ cee wax lii war nañ cee wax mi ngi noonu wala jabar nii lañ ko sonn nañu sonn nañu sonn nañ sonn nañ dañu arrêté nañu arrêté lii nañu arrêté teguñu ko fenn yoon lii mooy lan lii mooy lan lii mooy lan yow yaa ngi rey doomu nit ba pare ñun ngi defal suñu doom yi di muñ di leen defal suñu doom yi démb ba léegi ñu leen di defal nañu dal nga rey suñu doom ba pare ñuy sang dem di suuli ngeen attaqué leen waat ñoom ñooy ban am ban monde lañ nekk léegi ban adduna lañ nekk léegi li ñoom lan lañ bëgg lan lañ bëgg nañ ñem sa amer rey nañ ko mais bu ñu reyaale si ban adduna lañ nekk yow da ngay tooñ ni ka rey ko ñoom la ñuy seet si moom gisuñu ko jëlee nu fekk nañ ko këram jëlee ko këram dóor ko yóbbu ko na technopole ba dóor ko rey ko yóbbu yóbbu ko hôpital indil nañ ko jël si suñu suñu néew suuli nañu waa jàmm naa nañ ñu may jàmm mais doxaat ñoo fekkaat ñu fu ñuy dajee suñu daj di lekk ñu attaqué wañ ak ay lacrymogène dañu ray ay borom yi la ñun ay nit lañ ay jaabi yàlla lañ buñ ñu ray buñ ñu ray lii nag leneen lu ci am ñoo koy nit seen bopp buñ ñu ray na ñu may jàmm d'accord jërëjëf jërëjëf internet yi amuñu droit ñëw si dëkk jàmbur xam nga di di di di la faro majal du yoon quoi bu dul ñu xool ñi dañoo am métit ba pare bu leen teg beneen métit wallaay policiers yi nga nañu bàyyi di téye gars yi di rey nit bu defee loolu yoon da nga koy si kii at si ci yoon yoon atte ko mais du noonu c'est pas professionnel quoi euh, non justice nous euh, xam nous voulons la justice quoi vraiment nu sommes marre nous voulons la justice Pikine gars yi dañoo respecté wul te noobu loo fi dëkk ay jàmbaar ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ñun Pikine lañ gëm ñun Pikine lañuy sagoo xam nga mais nit bu defee lu dul yoon yóbbu ko si yoon yoon atte ko mais pas nga koy fitnaal yàlla bugul kuy fitnaal doomu aadama ba pare non seulement ñi ñëw si dëju jàmbur ba pare di dóor di dóor oli du yoon du benn yoon du yoon ki ñu rey nii sama jarbaat la sama jarbaat la sama lépp la xamul dara lu dul liggéey liggéey rek la xam te moo yoroon ay fameem lii dafa ñaaw gis boo jàppee nit bu nekkul si yoon da nga koy téye yóbbu ko si yoon ñu jaarale ko si yoon waaye di dóor nit yóbbu ko ba buntu police naan dafa yomb yóbbu ko ba continuer moom ba teg na technopole di ko dóor ba damm ay faaram. dafa metti toj ndaalu bopp bi xale bu ndaw. lekkagul dara ci àddinaam te famem yaayam ak papaam bu yàggul rek la ñu génn àndi dete moom moo yor ay famem lii dafa ñaaw léegi léegi la ñu doon tànn ay la chromosome dañoo daw renfort la ñu yor ñu ngi nii rey ba pare waxatuñ si dara ñu ni wat ay renfort di ni kii ñu woor ba ngoon dañ ko tàmm du bii yoon de du bii yoon dañ ko def dañ ko tàmm habitude la ci ñoom dañuy dóor dañ lay fekk sa biir kër dóor la ba nga bëgg a dee saboté la yàq say bagage toroxal la ki li ñu def ni teguñu ko fenn dañ si war a wax nguur gu bees gi dañ si war a wax nag ñi jël mesure am ñu di dóor ñuy dóor xale la xale la moo ñaari yoon jërëjëf mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed nekk jeune bi nga xamante ni moo fi génn àdduna waaye gis ngeen mbir mi dafa euh, mujjee metti ndax gis ngeen ci dëj bi ay lacrymogène la ñu fiy dóor xeex commencé fi am ay ay jàppal yi mu nekk loo xamante ne nii euh, metti na euh, fi mu nekk nii euh, nañu ki nga xamante. dóor leen ba rey leen teguñu ko fenn suñu ñëwee laaj gërëse joxuñu leen gërëse rek ñu sonal leen dóor leen ñi ñoo la xale ci boppam Modou ñu indi fi waruñu ko indi waa du yoon Modou Baye Fall la Modou dooñul kenn dugul ci kenn moo ko ma taaya wóor na yàlla nit ku baax lañ rey nit ku baax lañ yóbbu teguñu ko fenn ko fii leen dara Modou Giraar kenn yéen nañ koy dégg nañ bàyyi jàmbur deful kenn leen mhm. metti na am na taay amal baax na yaru na mais nii fekk nañ ko fekk ci loo xamante ne yorul dara dara social dong la doon def ñu rey ko nii nii moo ngi noonu li ñu métti xaritam bi xaritam bi boo gisee ñuy def li lii moo leen métti niñ ko def nii dañ kaa rey rey bu ñaaw rey bu ñaaw lañ ko rey ba pare ñëwaat toroxoñu suñu biir dëj waaye yéen nañu xaar léegi laaj nañ la ndax luwa na ci dëkk bi nag lii luwa la wax leen nag lii nag bii nag mënuñu kaa ñu ci àdduna mënuñu kaa fàtte. léegi suñu ndey yaa ngi nii booba léegi ñu rey ko tëj ko ci néeg une semaine ñu rey ko tëj ko mënuñoo xamee mu nekk buñ demee di ko seetu duñ ñu may sax ñu gis amataay pour lan. ñoo gën a am lu ñu métti ñun ñu bokk ak moom ah boobu dee ah, na ñu nëbb ko it jamono yàlla ñu mu dee ñu nëbb ko door ay birig ak lépp lañ ko doon door amataay daa attan loolu. ndaga di boobu sama xarit bi ma nekk si biir oto bi may naan ñii ku ñuy door door yi métti na mu mel ay xeer la ñuy door si biir oto bi ñuy door maa ngi naan ay waay ñuy soxor nañ ku ñuy door si oto bi yaagu tuuti Ibrahima Ndiaye ñoo ne ma sa xarit bi la la gars jàpp fee ma ne ko fii lañ romb di door taay bi la Ahmed Aï si jour bi si jour bi la dee sama xarit boobu si jour bi la dee. massa massa bilaay metti na. metti na metti na ñàkk sa mbokk ba pare teg ci di dund li nga xamante ne nii moo di naqar ak fitna ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xamante ne nii yaakaar naa démb gis ngeen image yi ci wasaare tey jii la ñu ci dëj bi ndax magam boobu wooluñu fi puusal ma jaar ma ne ko boo dee nga rey ma barki maam seera fa ma daw sonko mu daw dugg si biir bi billaahi 23 heures lañ ko billaahi teg na boo leen ko door ba mu dee. fii xeeru pavé leen ko dóor ci femme. amee daa tuuti amee maa ko ëpp xoolal ma nu ma tooy. som nit. billahi mais dañuy rey rek mais duñ taw ñoo Diop lañ sant Diop parce que Serigne Touba Mbacke billahi wallahi taalaay mardi lañ ko rey mardi dina ndësal affaire bi dina ndësal affaire ba kañ ba daa war a jeex Pikine grand daa war a jeex Pikine massa massa doy na waar massa billahi metti na ñu kon li ma doon wax sànq gis ngeen leen policiers ay criminels lañu ay assassins lañu gis ngeen lii état état na ci jóg. parce que mënoo nekk ci dëj même boo amee ak ay booy problème fële mais nga xam ne yow yaa rey ki dem mais waroo ñëwaat ba ci dëj bi. imaam ya fa toog ak lépp nga defa dóor ay lacrymogène mais lii lan lañ bari Sénégal lañ ne bari Sénégal lañ ne mais lii lii lan la non yeneen yeneen bakkan lañ bëgg ñoom nañ sibilu ñëw bu ñu fekk ay góor lañu nañ sibilu ñu ñëw nañ ko def ñu xool wallaahi duñ ko duñ def comme jigéen nañ ko def ñu ñëw waaye ñu xaj la ñu way jërë ngeen jëf mbokk internet yaakaar naa ne fu mu nekk nii eh, gis ngeen li nga xam ne moo xew file euh, ci Pikine dégg ngeen nag magam bi daal di jot ci li nga wax ci li nga xamante ni moo di autopsie beeg yooyu fi mu nekk nii gis ngeen li nga xam ne moom moo fa xew ñu ngi taxaw ak koo xam ne mag la aussi si famille bi dañ koy bàyyi rek moom tamit moo wax ni mu ko gis. de m'exprimer en français. Euh, c'est une population meurtrie, traumatisée, qui vient juste d'enterrer son fils, l'un des dignes fils de ce quartier, Mohamed Diop. Euh, nous l'avons enterré parce qu'effectivement, il est d'une bavure policière. Les policiers, en l'amenant, l'ont traumatisé. Et nous avons constaté dans le certificat de genre de mort euh, qu'il a été euh, euh, tué d'une mort très violente. Selon le médecin légiste, euh, il subit beaucoup de traumatismes, euh, des fractures euh, de quelques côtes, des fractures crânières, ce que nous déplorons. Et nous espérons que le procureur de la République sera saisi, va s'autosaisir même pour que justice soit faite. Parce que vous avez vu comment les jeunes sont excités aujourd'hui. Parce que un de leurs est parti dans des conditions très douloureuses. Nous avons espoir en notre justice. Nous avons l'espoir qu'au lendemain de cette élection, cette ère nouvelle qui vient de s'ouvrir dans notre pays, avec l'arrivée de M. Diomaye Faye à la tête de ce pays, qu'il n'y aurait jamais plus d'impunité dans ce pays. Que cessent toutes ces bavures policières une bonne fois pour toutes. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de prendre à bras le corps cette situation-là, pour que cela puisse s'arrêter à ce mort-là. Sinon, Sinon, nous allons compter d'autres cadavres. Parce que vous voyez ces jeunes, ils ne sont pas là pour, euh, euh, euh pour, pour, pour, faire les yeux doux à la police. Ce qui est sûr et certain, tout policier qui ose s'aventurer au dehors dans ces jours-là risque sa vie. Et c'est dommage que les, les, les autorités aujourd'hui entendent le cri de cœur des populations entendre le cri de cœur de ces jeunes et qu'on ne fasse pas tout cas, arrêter l'hémorragie quand il est temps. En tout cas, nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que ceux qui sont artisans de cette bavure policière, que ceux qui ont les messieurs de sang aujourd'hui, le sang de, de, de, de, de Mohamed que ces gens-là soient euh, ngeen euh, li nga xamante ne ni moo di euh, kilifa gi moom tamit daal dinay wax waxaale li nga xamante ne ni moo am ci autopsie bi waaye ci ki nga xam ne moo di génn ak àdduna Mouhamed Diop moom tamit gis ngeen vidéo yi ci wasaare bi dugaloon nañu ko gis ngeen li nga xam ne tey nag moom moo fi xew ci jour bi nga xamante ne ni moom la ko denc di ko saraxal mu nekk loo xamante ni lu metti la ndax ndax ñàkk sa mbokk ba pare boole ci ak ay xeex wala ay lacrymogène la lu day xaw a metti nañu ñaanal ki nga xam ne moom moo fi euh, bàyyeekoo te yàlla yërëm ko xare ko aljanay si fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge mais tey nit du ñàkk ba pare nga koy gën a dolli loo xamante ne ni kenn du xam kenn du mën a. yaa ngi gis du sit dëj lañ nekk dañoo dem suulu ji lii léegi-léegi ñëw même pas une heure de temps ñu ko mu ngi nii lu amul preuve bu leer naññee ñoom ñoo ko sànni léegi ñun lii senegal la lii lii lii nii si ban réew lañ nekk quoi sa waaye ñii bakkan lañ jël bakkan bi ñu jël kii nii barki leeru arxuraan laa la wax de man man mii man sama jëma bopp maa mën a seere ci moom lu bari ndax dama doon nekk ak moom tout le temps doon defal ay jaamu yàlla nag lu baax rek barke leeru alxuraan koor gi nii ba nu koor gi commencé ba nu muy jeexee day xëy di joxe ndogu barke Cheikh Ibra di ñaanal gars yi jàmm ak wérgu yaram ak gudd fan te moom tey xool ko Fall yow Fall ñu nekkuñu Sénégal waaye waaye yow waaye yow réew mi daa nekk réew. Eh, lii teel lay soog a feeñ soxna si lii man victime laa mos nañ ma ko def def nañ ma lii si xam na laa jotee ñoom. dañoo ñëw fekk ma si milieu di ma laaj carte d'identité ma ne ko présente toi indicateur la ñuy àndal dañuy doon policier ñaar ñu ànd ak lu ma cinq police kii indicateur ma ne ko présenté sa kii sa carte professionnelle mu ne ma yoo xam nga lépp di ma wax li ma ne ko eh man xaw ma la li ma sëkk yoo xam nga lan la carte d'identité nga woon ma sa carte ñu dóor ma xoolal mu dóor ma may xeex ak moom de ñu yóbbu ma ba fële technopole ñoom ñëpp téye ma man ak man la Birane Faye ak benn gel téye ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu ba sama bët yi di reetal est-ce que ma gaañu ba pare jël ñaari paquetu yamba sëf ko keneen ki biraan ne ko moo ko moom man ñu ne ma veillé est-ce que ma la lii c'est pas la première fois kii la ñett lañ jàlloo la ak beneen jaago seen brigade boobu kese ak xaaraar ñoom kese la waaw te duñ dara ay sàcc lañ man maa ko wax ay sàcc lañ ay doome xaraam piir lañ. doom d'accord gaa ñëwal xalil euh, ñëwal tuuti ndax dégg naa ñu naan kii bu deewee xaw ma euh, soxna si nga xamante ne nii moom fi mu nekk nii sonn na du ngeen ko yóbbu hôpital du ngeen ko woote. damay laaj ba xam man damay laaj man ba xam policier am nañ droit ñëw fii te ñu autorisation. mun nañ génn te dañu am PV commissaire nee na doom génn nañ te amuñu PV loolu mun na nekk mun nañ rey suñu nit boom ko rey ko ma mu dee ñu bëgg ñoo reyaat waaye ñun ban réew lañ man mënu ma wax sama xol dafa tooy. xanaa ñëpp ma wax yóbbu ko mu dem dooma raam. naqar far ñu def suñu daj ngeen ñëw di yàq suñu daj def ay gërënaat doomu xaraam yàlla nañu yàlla àtteeg ñun ci kaw suuf barki Sëriñ Fall yàlla nañu yàlla àtteeg ñun gàtt suñu àq trop rey gi bari ñëw yàq suñu daj xool ay magi jëm wóor ba ngoon ñu daanu dafa ne loolu rafet na sunu àq na leen dal barke Sëriñ Fall sunu na leen dal fii ku fi rek ñoom ñoo yóbbu lii àq la. ndeysaan metti gis ngeen li nga xam ne moo xew ci jouru dëju bu Mouhamed. voilà salaamaaleykum waa TV lii na ngeen fexe mu dem si Diomaye fay ak président Ousmane Sonko parce que lii dafa war a yegg si ñoom ñun. ñun ñi ngeen di gis tey ji ñu taxaw fii nii ñun ñoo doon xeex biir Pikine bu manifestation amee bu injustice amee bu jàppee Sonko ba Adji Sarr defee lu ko neex keneen ak keneen ak keneen ñun ñoo doon wàcc terrain bi di xeex tey nag déguisé wuñ duñ kagulewu yéen yéen a fi nekk bu fekkee sax dañ ñoo jàpp tey deux jours prochains na ngeen ñu génnee xam ne dañ doon dañ doon xeex dignement on veut plus la police nous voulons la gendarmerie et nous réclamons la justice pour Ahmed Taya na ko ñëpp yëg amul diaspora bi na ñëpp xam lii na ko Mollah Morgun live ñëpp jot si lii du yoon lii gis nga buñ ko bàyyi bu jàll dinañ reyaat beneen beneen sën dañoo yaakaar ne ñun ay ay ay lañ ñun duñ ay malfaiteur ñun ay soudeur lañ ñun état dañoo reconnaître lu garaaw laa la wax yi dañ ñuy saagaloo ñi dañ nice quoi jërëjëf jërëjëf fi mu nekk nii seen xol moo neexul ndax comme ni ma koy waxee nga ñàkk sa doom ba pare mbir yu mel nii ñëwaat dal ci sa kaw kilifa gi gi wax nga ne. waaw ma ne man Sénégal man dama xamatul ñun si ban réew la ñu ne. mu noo rey nit say élément rey nit ba pare police dóor nit ba mu dee si ñuy dëj ñu fekk ñu fa di dóor ay lacrymogène te dëj bi am na fi ay nit ñoo xam ne tey jii daanu nañ daanu boo xam ne ni tey lu leen mënta dal responsable bi ñoom la. waaw ndax tey mënuñu rey ñun suñu rax ñu am lu ñu metti dem suuli ba ñëw ñu fekkaat ñu fi ñu dóor ay lacrymogène xale yu ndaw yi lacrymogène biir kër yi xale yu ndaw yeeg liir yi ak maire yi màgget ah mais mais ñun si lan la ñu nekk lan la ñun kenn xamatul lan la rey suñu rakk ñuy jooy noppee ñu fekkaat ñu si biir dëj bi duñu dóor ay lii nañ si wax wala ñoom léegi ah suñu bakkan xoola dañ leen koy jaay boo bëggee dégg-dégg suñu bakkan dañ leen koy jaay waaw oh. d'accord jërëjëf yaakaar naa ne yéen a ngi gis li nga xamante ni moo di image yi nga xam ne moo xew ci dëju Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo gannaaw démb bi ñu fi ñëwee tey nag ñu xëyaatoon ñëw ci li nga xam ne moo di sarax bi waaye li nga xamante ni moom ngeen fii gis daal di nay lool ndax bu ñu demee ba dëj ay lacrymogène di ci am ci koor bi nga xam ne am na ay mag ñu fi nekk am na ñeneen ñoo xamante ni feebar nañu fi kon mbir moomu doy na waar nañu ki nga xamante ne ni moom moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko xare ko aljannay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge euh, gis ngeen nag ñun dañu ñëwoon rek ngir bokk ak famille bi euh, tiis bi waaye bokk ñoom naqar bi waaye fu mu nekk nii yaakaar naa ne euh, tiis bi ak naqar bi dafa nekk loo xam ne dafa booloo double ci li nga xam ne moo di famille Mouhamed mi nga xam ne victime xam ne moo fi daal di jóge kon yéen a ko gisandoo yéen bokk internet yi ci li nga xamante ni moo di ci image yi kon na ci président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di wax na génne kàddu jëmale ko ci balaa moo gën a metti wala balaa moo gën a tiis ndax bu demee nii wala mu gën a lii defee nii rek xëy na dina yegg foo xamante ne nii yaakaaruñu ko woon comme son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye bi mooy première kaawam boo xamante ne nii gis nañu mu metti lool kon ñu ngi koy ñaan ngi sabilillah mu jàpp ci teel ci àddu balaa moo yegg foo xamante ni duñu ko fa foogee ndax bu ñu demee ba ay dëj lacrymogène di ci am xeex di ci am fayantoo di ci am bu ñu ci gaawul wax rek xëy na dina egg foo xam ne fay yuuxu fañ foogee wutoon loo xam ne dina metti lool ci côté yëpp nag ci côté ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy famille waa ji ci côté ñi nga xamante ni moo day ay xaritam ci côté ñi nga xamante ni ñoo yor sécurité Sénégal kon ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye ñu ngi lay ñaan rek nga gaaw àddu xew Pikine ci dëju ki nga xamante xamante ni moo di Mouhamed di jeune bi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo comme ni ngeen koy gisee jël nañu famille bi jël nañu magam jël nañu tamit ñi nga xamante ni daal dinañuy wax ci autopsie bi nga xamante ne ni daal nay génn kon yéen a gis image yaa ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci seen site bi di wasaare di leen jox rendez ba beneen yoon incha allah ak yeneen i actualité ak système benn taalibe sëñ Abdoul Karim Mbacke bu mag bi jaajëf. ñoo ñoo ngi lay fay bu baax. naka la. tur bi Iba Diop la. Iba nga nekk grand frère ci Mouhamed mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo nga yoroon li nga xam ne moo di autopsie beeg yooyu ndax mën nga ñu wax ci kayitu autopsie bi lan la génne ak yi nga xam ne moo xewoon ci hôpital bi. waaw li xewoon si hôpital mooy daanaka affaire torture la rek jël nañ xale bi dóor nañ ko dóor ba daanaka biñ koy yóbbu hôpital sax presque dee na la ñuy wax rek bi ñu ñëwaatee ñu def li ñu war a def kayit autopsie bi génn bi autopsie bi génn tamit wanewul lu dul ay yax yu dammook ay faar yu damm ay mbagg yu damm yooyu dong moom lañu fi wane te bu ñu wanee loolu tamit kuy autopsie dafa doon lu leer loo xamante ne ñun mënuñu si dara mënuñu si dara waaw reyal nañ ñu nag suñu rakk koo xam ne amaloon nañu njëriñ njëriñ la ñu amaloon ndax euh, daanaka suñu lu bëri moo ko yoroon ndax mu ngi liggéey mu ngi def lu mu war a def ñun fu mu war a jaar ak ñun mu ngi jaara ak ñun foofu autopsie nag lu mu génnee dafa doy waar lool lool lool sax dama doon sax ragal a wane affaire autopsie boobu bëri ay fracture autopsie bi li mu ngi nii léegi léegi dinaa la ko jox nga xool ko ndax loolu ku ko xool xam ni carrément te dañ leen tooñ ba si kanamu yàlla li ñu leen toojee fekk naa la si biir néeg yaa ngi ndogg sa ndogg mais jarul ñu lay takkal bu ñu amee si soupçon nañ ñëw def li ñu war a def te bu ñuy dugg si kër war nañ am mandat bi ñuy dugg amuñu mandat amuñu dara mënoo dugg kër jàmb rek yuuxu saaga dóor li nga bëgg amoo ko nga ne dañ may jox lii nga saaga nit mu fayu nga ne da ngaa réew nga yëpp ko dem si oto dem yóbbu ko mais lan mooy firndeel que ne ay homme de tenue la ndax dañu présenter carte wala dañu soloon tenue wala nu demee. Euh, ak lu ñu ma ñàkk présenter carte man bi ma ñëwee ñu ma carte ndax dama ñëw fekk ñu jël booy yi ba yóbbu leen bi ñuy génnee booy man ci laa yam dégg ak menaces yi ñu leen doon def ak saaga yeeg dinañ leen yóbbu loolu man dégg naa ko ci man bañ leen yóbboo nag bañ demee police nag man xam naa ñoo xam ne ay policier lañ loolu man xam naa ko ci te gis naa ko ci te ñoo xam ne am ñeneen ñoo xam ne ñoom it ay policiers am na si ay ASP ñoom ñëpp xam nañ seen tur mën nañoo tund seen tur benn par benn ndax xam nañ seen tur ñoom ñëpp waaw. bi nga xamee ne te ne gis nga ko moom euh, maanaam yaramam lan fa la am ay gaañu gaañu. man avant autopsie di am biñ koy njëkk a évacuer di ko yóbbu dalal jàmm man ma nekkandoog ñoom ak ci biir li ma nekkandoog ñoom ak ci biir yëpp di ko yóbbu man kii laa gis si moom lu ma gis si moom daal man gis naa ne yaram bi tëccu na. loxo bi neewi na man xam yaram bi yëpp toj na xam naa ne kii dafa damm loolu xam naa ko ci moom mais biñ demee nag autopsie bi nag moom moo leeral yenn yi waaw mais lan moo waral coow li ndax gis nañu ba ci jouru dëj bi ay lacrymogène ak yeneen ak yeneen di ci xew. xam nga policiers yi dañ ñoo tooñ bëgg ñu tooñaat ñaari yoon mu xamee nag moom mu xameetu nit ñi la. Mouhamed nit ñi la ndax Mouhamed moom moo ji nit ñi teraanga c'est ku ne teraanga bi nga xamee ne loolu am na ñu am lu leen metti lool yoon war a def liggéeyam yoon defatul liggéeyam ñëw ba si biir dëj bi di fi dóoraat ay lacrymogène loolu teguñu ko fenn loolu teguñu ko fenn gis nga ni ñëw ba si dëj di fa dóor ay lacrymogène di jàmmarloo xale yi xale yi il faut ñu fayu ñoom tamit li dañoo am lu leen metti ndax ku leen amal njëriñ lañ def te yaakaar naa nag dañoo nekk nguur gu bees nguur gu bees gi nag war na mën a def liggéeyam lii war na si mën a taxaw te yaakaar naa bii mooy seen première cas war nañ see mën a taxaw ndax lii lañ doon séntu si ñoom ndax lii lañ doon xeex ba ñu jox leen nguur gi kon kat nañu def seen liggéey. d'accord lan nga ñu mën a jox ay kàddu seede ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. Mouhamed dafa di nit ku baax mu Mouhamed bëggul ku mer buggul ku ñàq man magam laa ñoo bokk ndey baay dama yor jabar yor yi doom Mouhamed dafa ma teggil sama lépp. lépp la ma Mouhamed eggul ki taxawoon léegi wéeru ma nii sama doom la mu Mouhamed moo leen yor moo leen di defar lu nekk moo leen koy defar su ma leen jox sax dafa ma naan bàyyi leen koor gi mooy joxe ndogu mooy joxe xëdd mooy joxe lu ñu togg ba fee mu jaral ko bëgg joxe moo ko jaral mu dem sa daaru fee problème bi amee di fa segg ndogu di joxe xoolul kenn ko ko jox dërëm wala ñaar dërëm lu mu yar ci ay xaram di jaay di yar ay ginaaram di jaay lu mu am koy bokk ak nit ñi di ko bokk ñun ñii waaw. mais naka la demee fi ngeen ko yóbbu fan nañ ko yóbbu hôpital ndax moom ci yoon bi la ñàkkee ba kanam wala ci oppital bi la ñàkkee ba kanam wala. ndax biñ ko yóbbu hôpital moom waxul deful dara biñ ko yóbbu hôpital ba ni mu gaañoo amul benn lenn lu mu wax waaw niñ ko yóbbu hôpital ba ñuy wax waxul dara waaw waaw. comme fi mu nekk nii yaakaar naa ne fi mbir mi mu ngi gën a metti dañu lay jaajëfal rek di la jaali di la saw mu ngi leen jaajëfal bu baax a baax. yaay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Seynabou Seck. bu lan nga ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi dal di bàyyeekoo. yaayam la parce que maa ngi ñu bokk ndey ak sama rakk la waaw Ahmed sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw di la ma saw bu baax a baax yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di jóge Ahmed dafa doonoon doom ju baax wax dëgg yàlla ak yonante bi gëm boppam bëgg liggéey xoolul alalu kenn waaye dañ ma woo ma nekk kër Mbay Fall ñu ne ma yaay Amet dañ ko jàpp ma ne ko lan la def mu ne deful dara de dañ leen fekk foofu rek bi ñuy ndogu policier ñëw dugg fekk leen fa jàpp leen di leen dóor di leen palpe fekk ñu ci ñoom dara di leen dóor ah ma ne ko loolu du yoon ma toogaat ba ci kanam ñu ne ma yóbbu nañ leen man ko fu ñu leen yóbbu mu ne nee na dañ leen yóbbu police ba delloowaat leen ma ne ko déedéet ma toog a toog a toog ba min bi jot sama doom bu jigéen bi woo ma ne ma ah yaay yóbbu nañ leen technopole de waaye dañ leen a dóor a dóor a dóor ba amet daal mu ngi ci diggante dund ak dee wallaahi nee na noonu ñu jël ko yóbbu ko hôpital bu ñu dem nag duñ ko jël hôpital bu ñu dem duñ ko jël ñu mujjee nag dem principal bi ñu demee lañ ko dugal bi ñu dugalee Amet ñun bu ñu buggee dem gis Amet sax ñu bañ ñu ne duñu dugg pour gis ko mu metti lool nag waaw ñu naqar lu ko torop nag wax dëgg yàlla ak yonente waaw mu doonoon soutien de famille yor ay rakkam yor ay magam man mi di wax ak yow mu yor ma lu ma soxla suba ba ngoon mu defal ma ko moom Amet bu yàggul rek laa ñëw ne ko Ameth sama téléphone bi laa bëgg nga changé ma mu ne ma yaay dinaa la ko changé bu bees laa lay wutal maag yaam ñëw bokk ndey ak baay waaye daf ma def comme yaay wax dëgg yàlla yonente bi métti naa ko torop nag. ndax ci li nga xamante ne ni jot nañ la ko expliquer ndax Ameth dafa amoon problème ak ñooñu wala. wax dëgg yàlla amul woon problème ak ñooñu wax dëgg yàlla xanaa nag dañ koo soupçonné rek waaye amul woon problème wax dëgg yàlla ak yonente bi. jàmm rek lañ ko xam leel segg kafeem toog ñu fekk ko fa def ko lañ ko def dóor ko ba mu dee metti na nag ba ci kanamu yàlla waaye nag lépp dañ koy teg ci loxo yàlla léegi nag ñuy ñaan nag président bi mu def liggéeyam parce que lii dafa metti lii dafa war jeex ci dëkk bi que du moom rek lañ ko def am na ñeneen ak ñeneen ñu ko def technopole am na ñoo xam ne sax gisuñu leen am na ñoo xam ne gisuñu leen léegi nag ñun ñaan dimbal waa ñu jàppale ñu te yàlla tax président def liggéeyam su deful liggéeyam tamit ah suñu njaboot gi tam dañ def seen liggéey. def seen liggéey ci naka. waaw foo ñu def seen liggéey. ndax duñ leen bàyyi noonu. di dox di leen xool nii di leen gis ñuy dem seen yoon ah déedéet mënuñu ko waa dañuy ñaan nag président de la république bi mu def liggéeyam. ndax da ngeen xam ñan ñoo ko def wala da ngeen am njottu ci ñi ko def. am na xale yi am na ñu bari xam nañ leen. ci ñi ko def waaw ci ñi ko def man xaw ma leen waaye xale yu góor yi am na ñu bari xam nañ leen wax dëgg yàlla yéen am na bari xam nañ leen waaw mu metti lool nag waaw daal moo nekkoon sama wax. ndax bi ñu euh, dóoree ba bi nga xamante ni sa doom daal dinay génn àdduna ndax jot nga ko gis wala. déedéet wax dëgg yàlla jotuma koo gis nee naa la suñ demee hôpital ñu ne kenn du dugg ñun ñëpp dañuy dellu si waat wax de ndax loolu neex na ci xol neexul ci xol boobu ba tey sa doom tëdd hôpital mardi. ba ni mu gaañoo tegoo ko bët ndax loolu neex na ci xol ah, metti na trop nag. ban yëg-yëg nga am bi ñu la nee sa doom tëdd na hôpital ba ni ñu la nee sa doom daal dinay génn àdduna te gisoo ko tàggatoo ak moom sax tàggatoo gu mujj. defuma ko dañu maa wax bi ñu ma nee rek sa doom noppalu na ah, man de wax dëgg yàlla nit ñëpp ma fekk sama kaw falaa daanu waa kër ga yëpp ñëw ba ci koñ bi ñëpp ñëw fekk ma sama biir kër waa ci laa jógee nag sol sama yére. ànd ak samay doom ne la ñëw leen ñu dem parce que dëkkuma fi maa ngi dëkk Kër Mbay Fall ma ànd ak sama njaboot ñu ñëw fii waaw ki doon wax fii léegi kooku sama doom la ku góor ki waaw kooku sama doom la waaw. lu bari marqué na ma ci moom amet lu bari marqué na ma ci moom wax dëgg yàlla yonente bi ndax bu ma duggaan fii rek fa mu nekk laay dem amet nangam amet nangam mu laax waxtu mu yëkkati jox ma kon loolu rek daf ma marqué. marqué na ma torop munu ma nag wax yàlla xam na ko munu ma wax. kon daal mën nañu ne sa doom ji tey daal dina lay wéetal bu baax a baax. dina ma wéetal ndax saay bu ma duggee Pikine dem këram fekk ko fa. fi muy fréquenté fa laay dem fekk ko fa mu toog ndeysaan bu ma egsee mu yëkkati la mu am ne ma yaay am demal nga ñibbi ma dem ñibbi kon manqué na ma torop dëgg yàlla ak yonente bi waaw ma la waxoon léegi rek moom laa lay waxaat na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam. lii rek mooy solution bi. jërëjëf yaa booy ñu ngi lay jaale bu baax a baax di bokk ak yow tiis bi. jërëjëf. c'est bon grand. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi siyaar bu baax soxna si. tur bi naka la. tuur bi tur bi Idi Sañ la. lan nga ci Mouhamed mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. waaw Mouhamed mii sama doomu ndey la. waaw sama raq la. waaw ñoom ñëpp man maa man maa si mag yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay waaw sama rakk la. sa rakk la gannaaw ba ñu la jaalee mosawu la ci tiis bi nga xamante ni moo daal di dal ci seen kaw information rek nga mën a jox ci li nga xamante ni moom moo fi xew. waaw information yi moom mbir mi moom yenn yi tooñ la waaw ndax tey jii. tooñ ci naka. tooñ si ndax nit même sax boo ko fekkee ak sax lu ñuy tere amoo droit dóor man mii di wax ak yow damay waxee si ancien militaire. classe 2002 2002 laa dem armée dem Batpara Batpara laa nekkoon kon man tey xam naa loi lu mu wax ak lu lu lu mu tere mais loolu musul am si benn loi waaw mais ñoom xaw man lu ma mënul comprendre nga jàpp nit vingt heures ba ay minuit di ko yóbbu vingt lañ leen jàpp si biir kër gi sax foofu lañ leen njëkk a xam nga tamit nit nga fekk ko si biir néeg dóor ko pompe à ba pare ëpp buntu néeg bi mais loolu mooy la loolu mooy kon ñoom dañu jëloon question ne dañ jëloon kii intention pour jéem a rey booy. vingt heures ba minuit moom xale yi moom fan la ñu nekkoon. minuit bi wër nañ leen fu ne mais technopole ba lañ leen yóbbu xam nga ne koo yóbbu technopole yeew ko di ko dóor ay cours xamal ne kooku mooy dëgg da nga koy rey ñoxante dëgg tamit yéen nii waaw mais mais lii lii nii état da si war a jóg waaw ndax ñun tey jii lii du du duñu duñu duñu de. du ñu bàyyi. bu yaboo ñoom la ñu préparé bu bu état deful lu leer lu gaaw dinañ ñu rey ñun par kenn par kenn. ndax am ngeen ay preuve que ne ay homme de tenue lañ parce que ñi ma ci jël yëpp nee bi ñuy ñëw dañu daal di ciblé ba pare joxuñu leen lenn loo xamante ni mën na leen présenté que ne ay homme de tenue la. non ñooñu Pikine fii ñëpp leen xam xam nga Pikine fii moom benn bopp la Pikine fii xale bu ndaw sax day xamante koo xam ne mu ngi dëkkee beneen secteur ñooñu xam nañ leen fii bu baax a baax. te tamit ak ay ASP tamit dañ ci raxaale ay ASP te xam nga ASP moom amul droit sax téye nit bay dóor nit waaw. mais lan moo sabab histoire bi ndax ñoom dañ leen a tooñ wala dafa am leen lu leen di toppee wala lan moo indi problème boobu. noo ñoom ñoom ñoom xamante nañoo booy boo bëggee dégg-dëgg ñoom xamante nañoo ak booy yi yàgg nañu di jàpp booy fekk booy yi di tux wala booy yor lu ñuy tere ñu encaissé booy xaalis. ñoom ak booy yi xamante nañu bu baax a baax xam naa nag lii boo gisee mu demee nii nag dañ doon jéem a encaissé booy booy bañ. no booy loolu. non man loolu moom wóoruma waaw mais loolu man moom wóoruma wax dëgg fa yàlla moom. waaw mais li nga xam ne man loolu lañ ma wax te ñu dëkk si kër gi ñoo ma ko wax ndax man tëngéej laa dëkk. mais man fii lu xew pikin man dama koy yëg waaw maa ngi tëngéej mais pikin fii man sama lépp fii la waaw. noonu lépp. lépp après ñun ndax ñun lu si waroon këyit yëpp mu ngi ñun. waaw nga xamante ni moo génn àdduna muy Mouhamed di sa rakk ndax jot nga ko gis. no man waa gis naa ko ndax ndax man ni depuis boobu ba léegi man maa si toppoon di dugg fune ne pour lijjanti këyit yi man boobu ba nii ba tey ji taluma sax lekk te maa ñu woor waaw bu man ndogoo ba naan kafe rek jeex na du ma nelaw. ko gisee ci yan anam nga ko gisee moom. non man gaawuma jooy mais tey moom dama jooy. waaw man ma jooy nag waaw mais tey dama jooy ndax man li ma gis tey bu ma judoo ba léegi musu musu musu ma ko gis waaw non gaañu gaañu yi dafa meti dafa métti bopp bi bopp bi faar yeeg moom daal yaram bi daal moom ko daa yàqu moom wax dëgg fa yàlla moom waaw yaram bi moom dafa yàqu waaw. bu dundaatoon kii nu mu mel nii kii boo ko gisee nii da xam ne kii même bu dundaatee sax du baax. waaw même bu dundaatoon sax du baax waaw. am nga kenn koo xamante ni expliqué na naka lañ leen doon dóoree wala lañ leen leen dóor. wala non man kii bi sama sama kii bi frère bi. moo magam ku mu bokkoon day ak baay Iba Diop moom moom moo leen toppoon moom moo leen toppoon waaw mais kii bi euh, beneen booy bu ñu escanté ba wekki bëñi booy boobu moo ko ne technopole lañ leen yóbbu ak dañ leen yóbbu technopole jëlee leen fa dugalaal leen biir arène ba. biir arène nationale ba pare mënatoo leen di leen dóor ay cours booy boobu ñu escanté ba defeere ko kooku moo wax loolu Ibba waaw te kooku moom tamit da daa sonn waaw non moom nii non moom kii nañ ko defeere nañ ko waaw nañ ko non kii maa ko yar ndax tey jii man ak moom ñii ñun ñun suñu maam ñun moo ñu ñun suñu maam moo ñu yar waaw moom yaayam dafa teel a gaaju sama maam nag yor ko benn moment sax sama yaay jëloon na ko yóbbu ko tëngéej ñu yeewandoo benn kër ma ak moom waaw benn kër ñu koy yeewandoo sama rakk la du ma dugg Pikine tey déggante te seetu ma ko ba gis ko waaw nit ku baax la te tamit alalam du ko booleeg mindeef waaw tey tey jii fii pikin fii amul kuy taxaw ne mu musul lekk xaalisam waaw lu mu yor si poos bi yaa ko moom waaw waaw waaw waaw waaw ok merci jërëjëf mais daal man li ma siy dolli mooy lenn la policiers yi nañ nañ wax ak ñoom liggéeyuñ ñoom seen bopp xam nga nit booy booy aar ay nit da ngay jubale mais ñoom jubuñu ñoom ñooy band yi ñoom ñooy criminels yi boo bëggee dégg-dégg lii moom duñ si bàyyi dara xam nañ leen ñoom ñëpp nag bu si état deful dara dinañu rey ñun ba ñu jeex par kenn par kenn waaw merci jërëjëf. ah gisoo ma ku ma bëgg ma ne ko kon naa la denc sama caat mu ne kooku de mën naa ko xaar parce que ñoo. mun naa ko xaar parce que dañoo déggoo ma ne ko amul problème ma woo mag ji ñu waxtaan ba pare man la maa ngi dellu Tëngéej ma dellu Tëngéej ci guddi gi lañ ma woo ci mu wax problème bi man loolu lu ma nekkee vidéo yi yëpp gis ngeen ko ni policier yi duggee yàq sagage yi néegu jàmbur ki leen tax a jóg mus ñoo fekk ci moom benn drogue. ñoom am kenn ku leen tax am na ku doon wax xam na benn boy bu ñu doon seet si foofu mais même boo bu doon même kooku boo ko fekkoon ñu wax la ko fekkoon moom dara mais loolu lan ko a def mais nañ bàyyi li ñuy def di toroxol xale yi ñoom ay nit lañu comme ñun dañ leen a jur ñu am papa am yaay xale yi am papa am yaay mais nañ bay la ñuy def lii nag bés bu ñu ko bàyyiwul ah képp kuñ ci xam nga nga rey nit nañ la rey. parce que loolu mooy xamante ni gis nga gis nga sa doom ji ci li nga xamante ne ni moo di ci hôpital bi état de santé maanaam yaramam wér gu yéem. non lii dafa ñaaw gis ngeen lii ay geste criminel dëgg lañ def non kii xale bi boo xoolee bopp bi dañ ko def. bu ko ma wax sax ñu ni famille bi di yëg xeer pavage yooyu ñu doon wax bopp bi yëpp lañ yàq. faar yi côté nopp bi sama xol bi dafa jeex daaw ma jooy de mais tey dama jooy ah di pour lan a amet ma xool euh, est-ce que ëpp na ëpp na vingt cinq ans ëpp na vingt cinq ans ndax autopsie bi génn na wala yëpp génn na ren nañ ko commissariat ba mu bindal ñu kii bi ñu yóbbu ko ci procureur bi procureur bi répondre nañu ba ñu jëlaat papier yi delluwaat hôpital ñu liber ñu corps bi yenn autopsie euh, autopsie yi yenn papier yi ñu ngeeg suma jarbaat bi yooyu yëpp ñu ngi ak ñoom maa leen nañ ko garder pour l'instant waaw. non autopsie bi kay li ñu ci def dafa ñàng sax man moo tax cause yu blessure yëpp mu ci après booy bu paree moom mën na la ko woon comme rang en tout cas lii daal dama bëgg ni état na yëg lii mooy surtout président am nañ président bu bees na taxaw ci lii ñoom it jaar nañ ay policiers yi ci lii ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ñëpp kon xam nañu police actuellement deful liggéeyam. ñun ay ancien militaire la ñu de mën nañ faj suñu bopp mais nañ nañ bàyyi li ñuy def ñun bi ñuy servir euh, suñu dëkk ñoom juddu wuñu. ndax da ngeen a déposé plainte wala yéen famille bi. plainte bi dinañ ko déposé avocat bi dina ko déposé bu jaree jër téeméer avocat bi wallaahi yaasim dinañ ko def. ndax kese la woon wala dafa am ñeneen ñu mu àndaloo. ñoom ñett la ñu woon ñett la ñu benn booy bi ñoom gaañ nañ ko ba toj yàq bëñ yëpp kanam gi même chose mu ngi fële ñu ñu taxal ko ñu dañ koy dañ koy attee waaw ñaar booy bi geste criminel la doon def koo bëgg rey mu fayu koo bëgg a rey du fayu ah léegi la lañ bëgg di rey nit ki mu toog ñoom nit dangay ngay wax ak ñoom sax pare woo ñu mbéj la boo ñëwee ci brigade ba soxla kii bu booy bi tëddee foofu kii dafa jam foofu di ko xool waaye da ko ne dégage loolu war na leen ñoom ñu ñoo leen fi teg. mais bi nga xamante ni àkk si nañ xela yooyu ndax fekk nañ ci ñoom dara wala ba léegi amuñ ci ñoom benn preuve. dara amu ci ñëpp témoin yaa ngi fii témoin yaa ngi fi ñu ko fekkee benn benn benn ñoom ñëpp a ngi fi amul benn bi nga xam ne ñoom mën nañu wax ne yor nañ ko fekk ñu ci ñoom dara ñoom na bu ñu yaakaar yàlla amul yàlla am na. ñu xale bi wax dëgg yàlla ku ñàkk ki la lu mu am alalam boolewu ko kenn ñu nii di fa de ah wax dëgg yàlla moom danañ yëngu ci ay laadum mag yooyu yëpp ah. yooyu yëpp mi ngi ak moom laadum yaa ngi fi xar yu ndaw yaa ngi ay ginaar ak yooyu yëpp da koy jaay mais tey loolu xale bu koy yëngu même bu fekkoon ne nekkoon na xale bu bon tey bay def lii mais police moo ko war a encouragé mais police mënta ñëw xale yi bu ñu yoree xaalis nga bëggoon nangu xaalis boobu pour lan ñoom bu ñu bëggee xaalis nañ ko liggéey nañ ko liggéey. am ngeen preuve que ne police moom moo ñëwoon ci néeg bi. ñoom la ñu xam leen du ñeen ñaa ngi dëkk fii nañ génn. nañ génn merci beaucoup ñu ngi lay jaale bu baax di la masaw mhm. ah mais jërëjëf mi ngi nii daal maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm parce que bi ma leen ko waxee boobu ba léegi bàyyiwu leen yéen a ñëw waaw man kay li ma leen di ko li ma leen di ñaan rek lii na état fexe ba yëg ko parce que ñu ne ñu bàyyi état bu bu ñu amul benn firnde ni état def na liggéeyam ñu ne ñu bay mais état bu deful liggéeyam leen lan ngeen fas yéene. nañu def nañu rey ñu jeex peuple yëpp xam na ne rey rey na ñëpp loolu moo gën. policiers ay civil lañu nañu dem jàng dem armée moo gën lii ok. heure bu nga wax nga ne. man man man benn affaire rek ma metti si ñoo xamante ni am am yoo xam ne ñoom ñoo la waroon téye di la sécuriser jàpp benn booy bu ndaw war na sëñ Bamba jàpp leen dóor dóor ko ay dóor yu metti loo xam ne tagul si benn yoon ñun jour dëj Mouhamed bi ba si dóor ba si jour dëj bi ñun dañoo toog ñu ñëw fekk ñu fi dóor di ñu dóor ay lacrymogène lii kenn xamul lii kenn xamul lii kenn xamul ban dëkk la war na sëriñ Touba kenn xamul benn ban dëkk la ñun inspiré ñun inspiré ñun inspiré ñu war def sëñ Bamba ñoo xam ne ko ñu jàpp fii ne instant ñu ngi koy maltraité ci seen oto nii nii nii tax xeebuñu lii ñu def tey ñii waat foofu ni kii ñun bañuñu ci dara fii ba su am kuñ ci jàpp dafa am kuñ ci am na benn paa bu ñu jàpp nii di ko maltraité seen moroomu baay ci boppam nii nii nii man dañ ma naroon a fël moom mooy leen ci lañ jàpp nañu paa ñu rey booy ba pare ñëw ci dëj di saldel dëj loolu buñ ci jàpp dañuy taal sanday amul loolu amul lii fii leem ñu ñu bàyyi day ci ñu nekkee ñu ñëwaat ñu def li dañoo sonn dañoo dee mënuñoo booleeg ñàkk mag ñooy leen ngi ni door ko ko mu dee ñun ñu ñàkk pour lan pour lan dañoo sonn waay. ñii bu yi ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci pikin ci dëju ki nga xamante ne nii moo di euh, Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. waa police Pikine la waaw. jërëjëf mbokk internet yi comme ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xam ne moo daal di ñàkk bakkanam yéen a ngi koy gis nag li nga xamante ne nii moom moo fi xew nekk lu doy waar ndax bu ñu demee ba nit nekk ci naqar ay lacrymogène ay dóore di lacrymogène. xale yaa ngi xeex ñëpp a ngi xeexoo sonal nañu nit ñi a ngi daw lacrymogène yaa ngi nii wax dëgg yàlla li metti na. métti na trop reneen doomu jàmbur ji ñu rob ko bari ñu policiers yi ñëw di leen ñaaw di leen tur di leen sol ay ko du dëkk du yoon nañu sonn nañu sonn nañu mbay doomu jàmbur dañuy rey lii war nañ cee wax lii war nañ cee wax mi ngi noonu war wax nañ ko sonn nañu sonn nañu sonn nañ sonn nañ ngi defal suñu doom di muñ di leen defal suñu doom yi démb ba léegi ñu leen defal nañu dal nga rey suñu doom ba pare ñuy sang dem di suuli ngeen attaqué leen waat ñoom ñooy ban am ban monde lañ nekk léegi ban adduna lañ nekk léegi li ñoom lan lañ bëgg lan lañ bëgg nañ ñem sa amer rey ko mais bu ñu reyaale si ban adduna lañ nekk yow dangay tooñ ni ka pare rey ko ñoom la ñuy seet si moom gisuñu ko jëlee nu fekk nañ ko këram jëlee ko këram dóor ko yóbbu ko technopole ba dóor ko rey ko yóbbu yóbbu ko hôpital indil nañ ko jël nañ suñu suñu néew suuli nañu waa jàmm naa nañ ñu may jàmm mais doxaat ñoo fekkaat ñu fu ñuy dajee suñu dëj di lekk ñu attaqué wañ ak ay lacrymogène dañu rey ay borom yi xool la ñun ay nit lañ ay jaabi yàlla lañ buñ ñu rey buñ nag leneen lu ci am ñoo koy nit seen bopp buñ ñu rey na ñu may jàmm d'accord jërëjëf jërëjëf internet yi amuñu droit ñëw si dëkk jàmbur xam nga di di di di dóoraay la fala yoon ko bu dul dara ñu xool ñi dañoo am métit ba pare bu leen teg beneen métit wallaay la policier xam nga nañu bàyyi di téye gars yi di rey nit bu defee loolu yoon da nga koy yóbbu si kii at ci yoon yoon atte ko mais du noonu c'est pas professionnel quoi euh, non justice nous euh, xam nous voulons la justice quoi vraiment nu sommes mar nous voulons la justice Pikine gars yi dañoo respecté wul te ay noobu loo fi dëkk ay jàmbaar ñoo fi dëkk ay bañ bañkat ñoo fi dëkk ñun Pikine lañ gëm ñun Pikine lañuy sago xam nga mais nit bu defee yoon yóbbu ko si yoon yoon atte ko mais pas nga koy fitnaal yàlla bëggul kuy fitnaal doomu aadama ba pare non seulement ñi ñëw si dëju jàmbur ba pare di dóor di dóor yi loolu du yoon du benn yoon du yoon ki ñu rey nii sama jarbaat la sama jarbaat la sama lépp la xamul dara lu dul liggéey liggéey rek la xam te moo yoroon ay famem lii dafa ñaaw ki boo jàppee nit bu nekkul si yoon da koy téye yóbbu ko si yoon ñu jaarale ko si yoon waaye di dóor nit yóbbu ko ba buntu police naan dafa yomb yóbbu ko ba continuer moom ba technopole di ko dóor ba damm ay faaram. dafa metti toj ndaalu bopp bi xale bu ndaw lekkagul dara si addinaam te famem yaayam ak papaam bu yàggul rek la ñu génn addi DT moom moo yor ay famille lii dafa ñaaw léegi léegi la ñu doon tànn ay la chromosome dañoo daw renfort la ñu yor ñu ngi nii rey ba pare waxatuñ ci dara ñu indi wat ay renfort di ni kii ñu woor ba ngoon dañ ko tàmm du bii yoon de du bii yoon dañ ko def dañ ko tàmm habitude la ci ñoom dañuy dóor dañ lay fekk sa biir kër dóor la ba nga bëgg sa dee saboté la yàq say bagage toroxal la kii li ñu def ni teguñu ko fenn dañ si war a wax nguur gu bees gi dañ si war a wax nag ñu jël mesure am ñu benn droit di dóor ku lan ñuy dóor xale bi la jërëjëf mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne ni moo di Mouhamed nekk jeune bi nga xamante ni moo fi génn àdduna waaye gis ngeen mbir mi dafa euh, mujjee metti ndax gis ngeen ci dëj bi ay lacrymogène la ñu fiy dóor xeex commencé fi am ay jàppal bàyyi mu nekk loo xamante ne ni euh, metti na euh, fi mu nekk ni nañu ki nga xamante <clears throat> nañ leen teguñu ko fenn suñu ñëwee laaj graisse joxuñu leen graisse rek ñu sonal leen doon leen ñi ñoo la xale ci boppam Modou bu ñu indi fi waruñu ko indi waa du yoon Modou bàyyi faal la Modou dooñul kenn dugul ci kenn moo ko amee taayaa na yàlla nit ku baax lañ day nit ku baax lañ yóbbu teguñu ko fenn ko fii jàmbu defu leen dara Modou Giraar kenn la yéen a ngi koy nañ bàyyi jàmbur deful kenn leen metti na. am na taay amal nañ ñëpp baax na yaru na mais nii fekk nañ ko fa fekk ci loo xamante ne yorul dara dara social dong doon def ñu rey ko nii nii moo ngi noonu. li moo metti xaritam bi boo gisee ñuy def li lii moo leen metti niñ ko def nii dañ kaa rey rey bu ñaaw rey bu ñaaw lañ ko rey ba pare ñëwaat toroxoñu suñu biir dëj waaye yéen nañu xaar léegi laaj am na ci dëkk bi nag lii luwaa la wax leen nag lii nag naqar bii nag mënuñu kaa ci àdduna kaa fàtte. ñu jooy depuis une semaine ñu rey ko tëj ko ci nekk une semaine ñu rey ko tëj ko mënuñoo xamee météo mu nekk buñ demee di ko seetu duñ ñu ñu gis am météo pour lan ñoo gën a am lu ñu métti ñun ñu bokk ak moom ah boobu dee la ñu nëbb ko une semaine yàlla ñu mu dee ñu nëbb ko door ay biri fatigue ak lépp lañ ko doon dóor Ameth Ndiaye daa attan loolu. naka ni boobu sama xarit bi ma nekk si biir oto bi may naan ñii ku ñuy dóor dóor yi métti na mu mel ay xeer la ñuy dóor si biir oto bi ñuy dóor maay na ay waay ñuy soxor nañ ku ñuy dóor si oto bi yaagu tuuti Ibrahima Ndiaye ñoo ne ma sa xarit bi la la gars yi jàpp fee ma ne ko fii lañ romb di dóor taay si jour bi la dee. Ameth Ndiaye si jour bi si jour bi la dee sama xarit boobu bi la dee. massa massa bilaay metti na. metti na metti na ñàkk sa mbokk ba pare teg ci di dund li nga xamante ne nii moo di naqar ak fitna ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xamante ne nii yaakaar naa démb gis ngeen image yi ci wasaare tey jii la ñu ñëwaatoon ci dëj bi ndax magam boobu wóoluñu fi puusal puusal ma jaar. ma ne ko boo leen dem nga rey ma. barki maam seera fa boo leen dem nga daw sonko mu daw dugg si biir bi. billaahi 23 heures lañ ko rey. billahi technopole lañ ko door ba mu dee. fii xeeru pavé lañ ko dóor ci femme. amee daa tuuti amee maa ko ëpp xoolal man nu ma tooy som nit. billaahi mais dañuy rey rek mais duñ taw ñoo Diop lañ sant Diop parce que Serigne Touba Mbacké billaahi wallaahi taalaay mardi lañ ko rek mardi dina ndësal affaire bi dina ndësal affaire bi ba kañ daa war a jeex Pikine grand daa war a jeex Pikine massa massa doy na waar massa billaahi metti na kon li ma doon wax sànq gis ngeen leen policiers ay criminels lañu ay assassins lañu gis ngeen lii état état na ci jóg. parce que mënoo nekk ci dëj même boo amee ak ay booy problème fële mais nga xam ne yow yaa rey ki dem mais waroo ñëwaat ba ci dëj bi imaam ya fa toog ak lépp nga defa dóor ay lacrymogène mais lii lan lañ bari Sénégal lañ ne bari Sénégal lañ ne mais lii lii lan la non yeneen yeneen bakkan lañ bëgg ñoom nañ sivilu ñëw bu ñu fekk ay góor lañu nañ sivilu ñu ñëw nañ ko def ñu xool wallaahi duñ def comme jigéen nañ ko def ñu ñëw waaye ñuy xaj la ñu way. jërë ngeen jëf mbokku internet yi yaakaar naa ne fu mu nekk nii eh, gis ngeen li nga xam ne moo xew file eh, ci Pikine dégg ngeen nag magam bi daal dinay jot ci li nga wax ci li nga xamante ni moo di autopsie beeg mu nekk nii gis ngeen li nga xam ne moom moo fi xew ñu ngi taxaw ak koo xam ne mag la aussi si famille bi dañ koy bàyyi rek moom mu tamit moo wax ni mu ko. de m'exprimer en français. Euh, c'est une population meurtrie, traumatisée. qui vient juste d'enterrer son fils, l'un des dignes fils de ce quartier, Mohamed Diop. Euh, nous l'avons enterré parce qu'effectivement, il est victime d'une bavure policière. Les policiers, en l'amenant, l'ont traumatisé. Et nous avons constaté dans le certificat de genre de mort euh, qu'il a été euh, euh, tué d'une mort très violente. Selon le médecin légiste, euh, il subit beaucoup de traumatismes, euh, des fractures euh, de quelques côtes, des fractures crâniennes, ce que nous déplorons. Et nous espérons que le procureur de la République sera saisi, va s'autosaisir même pour que justice soit faite. Parce que vous avez vu comment les jeunes sont excités aujourd'hui. Parce que des leurs est parti. dans des conditions très douloureuses. Nous avons espoir en notre justice. Nous avons l'espoir qu'au lendemain de cette élection, cette ère nouvelle qui vient de s'ouvrir dans notre pays, avec l'arrivée de M. Diomaye Faye à la tête de ce pays, qu'il n'y aurait jamais plus d'impunité dans ce pays. Que cessent toutes ces bavures policières une bonne fois pour toutes. Ce que nous demandons, aux autorités, c'est de prendre à bras le corps cette situation-là, pour que cela puisse s'arrêter à ce mort-là. Sinon, sinon, nous allons compter d'autres cadavres. Parce que vous voyez ces jeunes, ils ne sont pas là pour, euh, euh, euh faire les doux à la police. Ce qui est sûr et certain, tout policier qui ose s'aventurer au dehors dans ces jours-là risque sa vie. Et c'est dommage que les, les, les autorités aujourd'hui entendent le cri de cœur des populations, entendent le cri de cœur de ces jeunes et qu'on ne fasse pas quelque chose pour, tout cas, arrêter l'hémorragie quand il est temps. En tout cas, nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que ceux qui sont artisans de cette bavure policière, que ceux qui ont les messieurs de sang aujourd'hui, le sang de, de, de, de, de Mohamed Diop, que ces gens-là soient euh, ngeen euh, li nga xamante ne ni moo di euh, kilifa gi moom tamit daal dinay wax waxaale li nga xamante ne ni moo am ci autopsie bi waaye ci ki nga xam ne moo di génn àdduna Mouhamed Diop moom tamit gis ngeen vidéo yi ci wasaare bi dugaloon nañu ko gis ngeen li nga xam ne tey nag moom moo fi xew ci jour bi nga xamante ne ni moom la ko denc di ko saraxal mu nekk loo ni lu metti la. ndax ñàkk sa mbokk ba pare boole ci ak ay xeex wala ay lacrymogène la lu day xaw a metti nañu ñaanal ki nga xam ne moom moo fi euh, bàyyeekoo tey yàlla yërëm ko xare ko aljanay si fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge mais tey nit du ñàkk ba pare nga koy gën a dolli loo xamante ne ni kenn du xam kenn du mën a yaa ngi gisatu si dëj lañ nekk dañu dem suulu ji lii léegi léegi ñëw même pas une heure de temps ñu sànni ñu mu ngi nii lu amul preuve bu leer naññee ñoom ñoo ko sànni léegi ñun lii senegal la lii lii lii si ban réew lañ nekk quoi sa waay ñii bakkan lañ jël bakkan bi ñu jël kii nii barke leeru arxuraan laa la wax de man man mii man sama jëma bopp maa mën a seere ci moom lu bari ndax ma doon nekk ak moom tout le temps. doon defal ay jaamu yàlla nag lu baax rek barke leeru alxuraan koor gi nii ba nu koor gi commencé ba nu jeexee day xëy di joxe ndogu barke Sey Ibra di ñaanal gaay yi jàmm ak wérgu yaram ak gudd fan te moom tay xool ko Fall yow Fall ñun nekkuñu Sénégal waaye waaye yow waaye yow mi daa nekk réew. Eh, eh, lii teel lay soog a feeñ soxna si lii man victime laa mos nañ ma ko def def nañ ma lii si xam na laa jotee ñoom. dañoo ñëw fekk ma si milieu di ma laaj carte d'identité ma ne ko présente toi indicateur la ñuy àndal dañuy doon policier ñaar ñu ànd ak lu ma cinq police kii indicateur ma ne ko présenté sa kii sa carte professionnelle mu ne ma yoo xam nga lépp di ma wax li ma ne ko eh man xaw ma la li ma sëkk yoo xam la carte d'identité nga woon ma sa carte ñu dóor ma xoolal mu dóor ma may xeex ak moom de ñu yóbbu ma ba fële technopole ñoom ñëpp téye ma man ak man la Birane Faye ak benn gel téye ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu ba sama bët yi di reetal est-ce que ma la gaañu ba pare jël ñaari paquetu yamba sëf ko keneen ki biraan ne ko moo ko moom man ñu ne ma veillé est-ce que ma la lii c'est pas la première fois kii la ñett lañ jàlloo la Henri ak beneen jaago seen brigade boobu kese a xaaraar ñoom kese la waaw te duñ dara ay sàcc lañ man maa ko wax ay sàcc lañ ay doome xaraam pire lañ. ay doom d'accord gaa ñëwal xalil euh, ñëwal tuuti ndax dégg naa ñu naan kii bu deewee xaw ma euh, soxna si nga xamante ne nii moom fi mu nekk nii sonn na du ngeen ko yóbbu hôpital du ngeen ko woote. damay laaj ba xam man damay laaj man ba xam policier am nañ droit ñëw fii te amuñu autorisation. mun nañ génn te dañu am PV commissaire nee na doom génn nañ te amuñu PV loolu mun na nekk mun nañ rey suñu nit boom ko rey ko ba mu dee ñu bëgg ñoo reyaat waaye ñun ban lañ ne. xoolal man mënu ma wax sama xol dafa tooy. xanaa ñëpp ma wax yóbbu ko mu dem dooma raam. naqar par ñu def suñu dëj ngeen ñëw di yàq suñu dëj def ñun ci kaw suuf barki Sëriñ Fall yàlla nañu yàlla àttak ñun gàtt nañ suñu àq trop rey kii ba pare ñëw yàq suñu dëj ay magi jëm ba ngoon ñu daanu dafa nga loolu rafet na sunu àq na leen dal barke Sëriñ Fall sunu àq na leen dal fii ku fi dee rek ñoom ñoo leen yóbbu na metti na trop gis ngeen li nga xam ne moo xew ci jouru dëju bu Mouhamed. voilà salaamaaleykum waa Wasaare TV lii na ngeen fexe mu dem si Jomaay fay ak président Ousmane Sonko parce que lii dafa war a yegg si ñoom ñun ñun ñu ngeen di gis tey ji ñu taxaw fii ñu ñun ñoo doon xeex biir Pikine bu manifestation amee bu injustice amee bu ñu jàppee Sonko ba Adji Sarr defee lu ko neex keneen ak keneen ak keneen ñun ñoo doon wàcc terrain bi di xeex tey nag déguisé wuñ duñ kagulewu yéen yéen a fi nekk bu fekkee sax dañ ñoo jàpp tey deux jours prochains na ngeen ñu génnee xam ne dañ doon dañ doon xeex dignement on veut plus la police nous voulons la gendarmerie et nous réclamons la justice pour Ahmed Taïa na ko ñëpp yëg amul diaspora bi na ko ñëpp xam lii na ko Mollah Morgun live ñëpp jot si lii du yoon lii gis nga ko bàyyi bu jàll dinañ reyaat beneen beneen sën dañoo yaakaar ne ñun ay ay ay ay lañ ñun duñ ay malfaiteur ñun ay soudeur lañ ñun état dañoo reconnaître lu garaaw laa la yi dañ ñuy saagaloo ñi nice quoi jërëjëf jërëjëf fu mu nekk nii seen xol moo neexul ndax comme ni ma koy waxee nga ñàkk sa doom ba pare mbir yu mel nii ñëwaat dal ci sa kaw kilifa gi loo wax nga ne. waaw ma ne man Sénégal man dama xamatul ñun si ban réew la ñu ne. munoo rey nit say élément rey nit ba pare police dóor nit ba mu dee si ñuy dëj ñu fekk ñu fa di dóor ay lacrymogène te dëj bi am na fi ay nit ñoo xam ne tey jii daanu nañ daanu boo xam ne ni tey lu leen mënta dal responsable bi ñoom la. waaw ndax tey mënuñu rey ñun suñu rax ñu am lu ñu metti dem suuli ba ñëw ñu fekkaat ñu fi ñu dóor ay lacrymogène xale yu ndaw yi lacrymogène yi si biir kër yi xale yu ndaw yeeg liir yi ak maire yi màgget ah mais mais ñun si la ñu nekk lan la ñun kenn xamatul lan la rey suñu rakk ñuy jooy noppee ñu fekkaat ñu si biir dëj bi duñu dóor ay lacrymogène lii nañ si wax wala ñoom léegi ah suñu bakkan xoola dañ leen koy jaay boo bëggee dëgg-dëgg suñu bakkan dañ leen koy jaay waaw d'accord jërëjëf yaakaar naa ne yéen a ngi gis li nga xamante ni moo di image yi nga xam ne moo xew ci dëju Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo gannaaw démb bi ñu fi ñëwee tey nag ñu xëyaatoon ñëw ci li nga xam ne moo di sarax bi waaye li nga xamante ni moom ngeen fii gis daal di nay doy waar lool ndax bu ñu demee ba dëj ay lacrymogène di ci am ci weeru koor bi nga xam ne am na ay mag ñu fi nekk am na ñeneen ñoo xamante ni feebar nañu fi kon mbir moom mu doy na waar nañu ñaanal ki nga xamante ne ni moom moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko ko xare ko aljannay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge euh, gis ngeen nag ñun dañu ñëwoon rek ngir bokk ak bi euh, tiis bi waaye bokk ñoom naqar bi waaye fu mu nekk nii yaakaar naa ne euh, tiis bi ak naqar bi dafa nekk loo xam ne dafa booloo double ci li nga xam ne moo mi nga xam ne victime la mi xam ne moo fi daal di jóge kon yéen a ko gisandoo yéen bokk internet yi ci li nga xamante ni moo di ci image yi kon na ci président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di wax na génne kàddu jëm jëmale ko ci balaa moo gën a metti wala balaa moo gën a tiis ndax bu demee nii wala mu gën a lii defee nii rek xëy na dina yegg foo xamante ne nii yaakaaruñu ko woon comme son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye bi mooy première kaawam boo xamante ne nii gis nañu mu metti lool kon ñu ngi koy ñaan bisabilillah mu jàpp ci teel ci àddu balaa moo yegg foo xamante ne nii duñu ko fa foogee ndax bu ñu demee bu ay dëj lacrymogène di ci am xeex di ci am fayantoo di ci am wax rek xëy na dina egg foo xam ne fay yuuxu dafañ foogee wutoon loo xam ne dina metti lool ci côté yëpp nag ci côté ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy famille waa ji ci ñi nga xamante ni moo day ay xaritam ci côté ñi nga xamante ni ñoo yor sécurité Sénégal kon ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye ñu ngi lay ñaan rek nga gaaw addu ci li nga xamante ne ni moo xew Pikine ci dëju ki nga xamante ne ni moo di Mouhamed di jeune bi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo comme ni ngeen koy gisee jël nañu famille bi jël nañu magam jël nañu tamit ñi nga xamante ñuy wax ci autopsie bi nga xamante ne ni daal dinay génn kon yéen a gis image yaa ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci seen site bi di wasaare di leen jox rendez-vous ba beneen incha allah ak yeneen i actualité ak système benn taalibe sëñ Abdoul Karim Mbacke bu mag bi jaajëf. ñoo ngi lay nuyu. ngi lay fay bu baax. tur naka la. tur bi Iba Diop la. Kebe Diop nga nekk grand frère ci Mouhamed mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo nga yoroon li nga xam ne moo di autopsie beeg yooyu ndax mën nga ñu wax ci kayitu autopsie bi lan la génne ak yi nga xam ne moo xewoon ci hôpital waaw li xewoon si hôpital ba mooy daanaka affaire torture la rek jël nañ xale bi dóor nañ ko dóor ba daanaka biñ koy yóbbu hôpital sax presque dee na la ñuy wax rek bi ñu ñëwaatee ñu def li ñu def kay autopsie bi génn bi autopsie bi génn tamit wanewul lu dul ay yax yu dammook ay faar yu damm ay mbagg yu damm. yooyu dong moom lañ fi wane te bu ñu wanee lool tamit kuy autopsie dafa doon lu leer loo xamante ne ñun mënuñu si dara mënuñu si dara waaw rayal nañ ñu nag suñu rakk koo xam ne amaloon nañu njëriñ njëriñ la ñu amaloon ndax euh, daanaka suñu lu bëri moo ko yoroon ndax mu ngi liggéey mu ngi def lu mu war a def ñun fu mu war a jaar ñun mu ngi jaar ak ñun foofu autopsie nag lu mu génnee dafa doy waar lool lool lool sax dama doon sax ragala a wane affaire autopsie boobu faar yu damm bëri ay fracture autopsie bi li mu ngi nii léegi léegi dinaa la ko jox nga xool ko ndax loolu ko ko xool xam ni carrément te dañ leen tooñ ba si kanamu yàlla li ñu leen toojee fekk naa la si biir néeg yaa ngi ndogg sa ndogg mais jarul ñu lay takkal bu ñu amee si soupçon nañ ñëw def li ñu war a def te bu ñuy dugg si kër war nañ am mandat bi ñuy dugg amuñu mandaa amuñu dara mënoo dugg kër jàmb rek yuuxu saaga dóor li nga bëgg amoo ko nga ni dañ may jox lii nga saaga nit mu fayu nga ni da ngaa réew nga yëpp ko dem si oto yóbbu ko mais lan mooy firndeel que ne ñoom ay homme de tenue la ndax dañu présenté carte wala dañu soloon tenue wala nu mu demee. Euh, ak lu ñu ma ñàkk présenté carte man bi ma ñëwee ñu ma carte ndax dama ñëw fekk ñu jël booy yi ba yóbbu leen bi ñuy génnee booy yi man ci laa yem dégg ak menaces yi ñu leen doon def ak saaga yeeg dinañ leen yóbbu loolu man dégg naa ko ci man bañ leen yóbboo nag bañ demee police nag man xam naa ñoo xam ne ay policier lañ loolu man xam naa ko ci te gis naa ko ci te ñoo xam ne am ñeneen ñoo xam ne ñoom it ay policiers am na si ay ASP ñoom ñëpp xam nañ seen tur mën na nañoo tudd seen tur benn par benn ndax xam nañ seen tur ñoom ñëpp waaw. bi nga xamee ne te ne gis nga ko moom euh, maanaam yaramam lan fa la am ay gaañu gaañu. man avant autopsie am biñ koy njëkk a évacuer di ko yóbbu dalal jàmm man ma nekkandoo ak ñoom ak ci biir li ma nekkandoo ak ñoom ak ci biir yëpp di ko yóbbu man kii laa gis si moom lu ma gis si moom daal man gis naa ne yaram bi tëccu na. loxo bi neewi na man xam yaram bi yëpp toj na xam naa ni kii dafa damm loolu xam naa ko ci moom mais biñ demee nag autopsie bi nag moom moo leeral yenn yi waaw mais lan moo waral coow li ndax gis nañu ba ci jouru dëj bi ay lacrymogène ak yeneen ak yeneen di ci xew. xam nga policiers yi dañ ñoo tooñ bëgguñu tooñaat ñaari yoon mu xamee nag moom mu xameetu nit ñi la. Mouhamed nit ñi la ndax Mouhamed moom moo ji nit ñi teraanga c'est que ku ne teraanga bi nga xamee ne loolu am na ñu am lu leen metti lool yoon war a def liggéeyam yoon defatul liggéeyam ñëw ba si biir dëj bi di fi dóoraat ay lacrymogène loolu teguñu ko fenn loolu teguñu ko fenn gis nga nii ñëw ba si dëj di fa dóor ay lacrymogène di jàmmarloo xale yi xale yi il faut ñu fayu ñoom tamit li dañoo am lu leen metti ndax ku leen amal njëriñ lañ def te yaakaar naa nag dañoo nekk si. nguur gu bees nguur gu bees yi nag war na mën a def liggéeyam lii war na si mën a taxaw te yaakaar naa bii mooy seen première cas war nañ see mën a taxaw ndax lii lañ doon séntu si ñoom ndax lii lañ doon xeex ba ñu jox leen nguur gi kon kat nañu def seen liggéey. d'accord lan nga ñu mën a jox ay kàddu seede ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. Mouhamed dafa di nit ku baax mu Mouhamed buggul ku mer buggul ku ñàkk man magam laa ñoo bokk ndey ak baay dama yor jabar yor yi doom Mouhamed dafa ma teggil sama lépp. lépp la ma Mouhamed eggul li taxawoon léegi wéeru ma nii sama doom la mu Mouhamed moo leen yor moo leen di defar lu nekk moo leen koy defar su ma leen jox sax dafa naan bàyyi leen koor gi mooy joxe ndogu mooy joxe xëdd mooy joxe lu ñu togg ba fee mu jaral ko bëgg joxe moo ko jaral mu dem sa daaru fee problème bi amee di fa segg ndogu di joxe xoolul kenn ko ko jox dërëm wala ñaar dërëm lu mu yar ci ay xaram di jaay di yar ay ginaaram di jaay lu mu mu koy bokk ak nit ñi di ko bokk ñun ñii waaw. mais naka la demee fi ngeen ko yóbbu fan nañ ko yóbbu hôpital ndax moom ci yoon bi la ñàkkee ba kanam wala ci hôpital bi la ñàkkee ba kanam wala. ndax biñ ko yóbbu hôpital moom waxul deful dara biñ ko yóbbu hôpital ba ni mu gaañoo amul benn lenn lu mu wax waaw niñ ko yóbbu hôpital ba ñuy wax waxul dara waaw waaw. d'accord comme fi mu nekk nii yaakaar naa ne fi mbir mi mu ngi gën a metti dañu lay jaajëfal rek di la jaale di la saw mu ngi leen jaajëfal bu baax a baax. yaay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Seynabou Seck. bu lan nga ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi dal di bàyyeekoo. yaayam laa parce que maa ngi yaayam ñu bokk ndey sama rakk la waaw Ahmed sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal dal ci seen kaw di la ma saw bu baax a baax yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di jóge Ahmed dafa doonoon doom ju baax. dëgg yàlla ak yonente bi gëm boppam bëgg liggéey xoolul alalu kenn waaye dañ ma woo ma nekk kër Mbay Fall ñu ne ma yaay Amet dañ ko jàpp ma ne ko lan la def mu ne deful dara de dañ leen fekk foofu rek bi ñuy ndogu policiers ñëw dugg fekk leen fa jàpp leen di leen dóor di leen palpe fekk ñu ci ñoom dara di leen dóor ah ma ne ko loolu du yoon ma toogaat ba ci kanam ñu ne ma yóbbu nañ leen ma ne ko fu ñu leen yóbbu mu ne nee na dañ leen yóbbu police ba delloowaat leen ma ne ko déedéet ma toog a toog a toog ba min wi jot sama doom bu jigéen bi woo ma ne ma ah yaay yóbbu nañ leen technopole de waaye dañ leen a dóor a dóor a dóor ba amet daal mu ngi ci diggante dund ak dee wallaahi nee na noonu ñu jël ko yóbbu ko hôpital bu ñu dem nag duñ ko jël hôpital bu ñu dem duñ ko jël ñu mujjee nag dem principal bi ñu demee lañ ko dugal bi ñu dugalee Ameth ñun bu ñu buggee dem gis Ameth sax ñu bañ ñu ne duñu dugg pour gis ko mu metti lool nag waaw ñu naqar lu ko torop nag wax dëgg yàlla ak yonente bi waaw mu doonoon soutien de famille yor ay rakam yor ay magam man mi di wax ak yow mu yor ma lu ma soxla suba ba ngoon mu defal ma ko moom Ameth bu yàggul rek laa ñëw na ko amet sama téléphone bi laa bëgg nga changé ma mun a ma yaay dinaa la ko changé bu bees laa lay wutal maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak baay waaye daf ma def comme yaay wax dëgg yàlla yonente bi métti naa ko torop nag. ndax yaay ci li nga xamante ne ni jot nañ la ko expliquer ndax amet dafa amoon problème ak ñooñu wala. wax dëgg yàlla amul woon problème ak ñooñu wax dëgg yàlla xanaa nag dañ koo soupçonné rek waaye amul woon problème wax dëgg yàlla ak yonente bi. jàmm rek lañ ko xam leel segg kafeem toog ñu fekk ko fa def ko lañ ko def dóor ko ba mu dee metti na nag ba ci kanamu yàlla waaye nag lépp dañ koy teg ci loxo yàlla léegi nag ñuy ñaan nag président bi mu def liggéeyam parce que lii dafa metti lii dafa war a jeex ci dëkk bi parce que du moom rek lañ ko def am na ñeneen ak ñeneen ñu ko def technopole am na ñoo xam ne sax gisuñu leen am na ñoo xam ne gisuñu leen léegi nag ñun dañuy ñaan dimbal waa ñu jàppale ñu te yàlla tax président def liggéeyam su deful liggéeyam tamit ah sunu njaboot gi tam dañ def seen liggéey. def seen liggéey ci naka. waaw foo ñu def seen liggéey. ndax duñ leen bàyyi noonu. di dox di leen xool nii di leen gis ñuy dem seen yoon ah déedéet mënuñu ko waa dañuy ñaan nag président de la république bi mu def liggéeyam. ndax da ngeen xam ñan ñoo ko def wala da ngeen a am njottu ci ñu ko def. am na xale yi am na ñu bari xam nañ leen. ci ñi ko def waaw ci ñi ko def man xaw ma leen waaye xale yu góor yi am na ñu bari xam nañ leen wax dëgg yàlla yéen am na ñu bari xam nañ leen waaw mu metti lool nag waaw daal moo nekkoon sama wax. Mm-hmm. d'accord ndax bi ñu euh, dóoree ba bi nga xamante ni sa doom daal dinay génn àdduna ndax jot nga ko gis wala. déedéet wax dëgg yàlla jotuma koo gis nee naa la suñ demee hôpital ñu ne kenn du dugg ñun ñëpp dañuy dellu si waat mm-hmm. wax de ndax loolu neex na ci xol neexul ci xol mm-hmm. boobu ba tey sa doom tëdd hôpital mardi. ba ni mu gaañoo tegoo ko bët ndax loolu neex na ci xol ah, metti na trop nag. ban yëg-yëg nga am bi ñu la nee sa doom tëdd na hôpital ba ni ñu la nee sa doom daal dinay génn àdduna te gisoo ko tàggatoo ak moom sax tàggatoo gu mujj. defuma ko dañu maa wax bi ñu ma nee rek sa doom noppalu na ah, man de wax dëgg yàlla nit ñëpp ma fekk sama kaw falaa daanu waa kër gi yëpp ñëw ba ci koñ bi ñëpp ñëw fekk ma sama biir kër waa ci laa jógee nag sol sama yére. ànd ak samay doom ne la ñëw leen ñuy dem parce que ma fi maa ngi dëkk Kër Mbay Fall ma ànd ak sama njaboot ñu ñëw fii waaw ki doon wax fii léegi kooku sama doom la ku góor ki waaw kooku sama doom la waaw. lu bari marqué na ma ci moom Ameth lu bari marqué na ma ci moom wax dëgg yàlla yonente bi ndax bu ma duggaan fii rek fa mu nekk laay dem Ameth nangam Ameth nangam mu laax waxtu mu yëkkati jox ma kon loolu rek daf ma marqué. marqué na ma torop munu ma nag wax yàlla xam na ko munu ma wax. daal mën nañu ne sa doom ji tey daal dina lay wéetal bu baax a baax. dina ma wéetal ndax saa yi bu ma duggee Pikine dem këram fekk ko fa fi muy fréquenté fa laay dem fekk ko fa mu toog ndeysaan bu ma egsee mu yëkkati la mu am ne ma yaay am demal nga ñibbi ma dem ñibbi kon manqué na ma torop dëgg yàlla ak yonente bi waaw ma la waxoon léegi rek moom laa lay waxaat na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam. nii rek mooy solution bi. jërëjëf yaa booy ñu ngi lay jaale bu baax a baax di bokk ak yow tiis bi. jërëjëf. c'est bon grand. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi siyaar bu baax soxna si. tur bi naka la. tur bi tur bi Idi Sañ la. lan nga ci Mouhamed mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. waaw Mouhamed mi sama doomu ndey la. waaw sama raq la. waaw ñoom ñëpp man maa man maa si mag yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak waaw sama rakk la. sa rakk la gannaaw ba ñu la jaalee mosawu la ci tiis bi nga xamante ni moo daal di dal ci seen kaw yan information rek nga ñu mën a jox ci li nga xamante ni moom moo fi xew. waaw information yi moom mbir mi moom yenn yi tooñ la waaw ndax tey jii. tooñ tooñ si ndax nit même sax boo ko fekkee sax lu ñuy tere. amoo droit dóor man mii di wax ak yow damay waxee si ancien militaire. classe 2002 2002 laa dem armée dem Batpara Batpara laa nekkoon kon man tey xam naa loi lu mu wax ak lu lu mu tere mais loolu musul am si benn loi waaw mais ñoom xaw ma man lu ma mënul comprendre nga jàpp nit vingt heures ba ay minuit di ko yóbbu vingt heures lañ leen jàpp si biir kër gi sax foofu lañu leen njëkk a escanté xam nga tamit nit nga fekk ko si biir néeg dóor ko pompe à ba pare ëpp buntu néeg bi mais loolu mooy la loolu mooy kon ñoom dañu jëloon question ne dañ jëloon kii intention pour jéem a rey booy. vingt heures ba minuit moom xale yi moom fan la ñu nekkoon. minuit bi wër nañ leen fu ne mais technopole ba lañ leen yóbbu xam nga ne koo yóbbu technopole yeew ko di ko dóor ay cours xamal ne kooku mooy dëgg da nga koy rey ñu waxante dëgg tamit yéen ñi waaw mais mais lii lii nii état da si war a jóg waaw ndax ñun tey jii lii du du duñu duñu duñu bàyyi de. duñu bàyyi. bu yaboo ñoom nañu préparé bu bu état deful lu leer lu gaaw dinañ ñu rey ñun par kenn par kenn. ndax am ay preuve que ay homme de tenue lañ parce que ñi ma ci jël yëpp nee nañ bi ñuy ñëw dañu daal di ciblé ba pare joxuñu leen lenn loo xamante ni mën na leen présenté que ne ñii ay homme de tenue la. non ñooñu Pikine fii ñëpp leen xam xam nga pigin fii moom benn bopp la Pikine fii xale bu ndaw sax day xamante koo xam ne mu ngi dëkkee beneen secteur ñooñu xam nañ leen fii bu baax a baax. te tamit ak ay ASP tamit dañ ci raxaale ay ASP te xam nga ASP moom amul droit sax téye nit bay dóor nit waaw. mais lan moo sabab histoire bi ndax ñoom dañ leen a tooñ wala dafa am lenn lu leen di toppee wala lan moo indi problème boobu. noo ñoom ñoom ñoom xamante nañoo booy boo bëggee dégg-dégg ñoom xamante nañoo ak booy yi yàgg nañu di jàpp booy fekk booy yi di tux wala booy yor lu ñuy tere ñu encaissé booy xaalis. ñoom ak booy yi xamante nañu bu baax a baax xam naa nag lii boo gisee mu demee nii nag dañ doon jéem a encaissé booy yi booy bañ. mais booy loolu. non man loolu waaw mais loolu man moom wóoruma wax dëgg fa yàlla moom waaw mais li nga xam ne man loolu lañ ma wax te ñu dëkk si kër gi ñoo ma ko wax ndax man tëngéej laa dëkk. mais man fii lu xew Pikine man dama koy yëg waaw maa ngi tëngéej mais Pikine fii man sama lépp fii la waaw. noonu lépp. lépp après ñun ndax ñun lu si waroon këyit yëpp mu ngi ñun. waaw ni moo génn àdduna muy Mouhamed di sa ndax jot nga ko gis. non man waa gis naa ko ndax ndax man nii depuis boobu ba léegi man maa si toppoon di dugg fu pour lijjanti këyit yi man boobu ba nii ba tey ji talu ma sax lekk te maa ngi woor waaw bu ma ndogoo ba naan kafe jeex na du ma nelaw. ko gisee gisee moom. non man gaawuma jooy mais tey moom dama jooy. waaw man gaawuma jooy nag waaw mais tey dama jooy ndax man li ma gis tey bu ma juddoo ba léegi musu musu musuma ko gis waaw non gaañu gaañu yi dafa meti dafa métti bopp bi bopp bi faar yeeg moom daal yaram bi daal moom ko daa yàqu moom wax dëgg fa yàlla moom waaw yaram bi moom dafa yàqu waaw kon bu kii nu mu mel nii kii boo ko gisee nii da nga xam ne kii même bu dundaatee sax du baax. waaw même bu dundaatoon sax du baax waaw. am nga kenn koo xamante ni expliqué na naka lañ leen doon dóoree wala lañ leen leen dóor. wala man kii bi sama sama kii bi frère bi moo yooga magam ku mu bokkoon day ak baay Iba Diop moom moom moo leen toppoon moom moo leen toppoon waaw mais kii bi euh, beneen booy bu ñu escanté ba wekki bëñi booy boobu moo ko ne lañ leen yóbbu ak dañ leen yóbbu technopole jëlee leen fa dugalaat leen biir arène ba. biir arène nationale ba pare mënatoo leen di leen dóor ay cours booy boobu ñu escanté ba defeere ko kooku moo wax loolu Ibba waaw te kooku moom tamit da daa sonn waaw non moom nii noo moom kii nañ ko defeere nañ ko waaw nañ ko non kii maa ko yar ndax tey jii man ak moom ñii ñun ñun suñu maam ñun moo ñu yar ñun suñu maam moo ñu yar waaw moom yaayam dafa teel a gaaju sama maam nag yor ko benn moment sax sama yaay jëloon na ko yóbbu ko Tëngéej ñu yeewandoo benn kër ma nag moom waaw benn kër ñu koy yeewandoo sama rakk la du ma dugg Pikine tey déggante teewu te seetu ma ko ba gis ko waaw nit ku baax la te tamit alalam du ko booleeg mindeef waaw tey tey jii fii pikin fii amul kuy taxaw ne mu musul lekk xaalisam waaw lu mu yor ci poos bi yaa ko moom waaw waaw waaw waaw waaw ok merci jërëjëf mais daal man daal li ma siy dolli mooy lenn la policiers yi nañ wax ak ñoom liggéeyuñ ñoom seen bopp xam nga nit booy booy aar ay nit da ngay jubale mais ñoom jubuñu ñoom ñooy bandi yi ñoom ñooy criminels yi boo bëggee dégg-dégg te lii moom duñ si bàyyi dara xam nañ leen ñoom ñëpp nag bu si état deful dara dinañ ñu rey ñun ba ñu jeex par kenn par kenn waaw merci jërëjëf. ah gisoo ma ko ma bëgg ma ne kon naa la denc sama caat mu ne kooku de mën naa ko xaar parce ñoo. mun naa ko xaar parce que dañoo déggoo ma ne ko amul problème ma woo mag ji ñu waxtaan ba pare man leen maa ngi dellu Tëngéej ma dellu Tëngéej ci guddi gi lañ ma woo di mu wax problème bi man leen loolu nu mu mën nekkee vidéo yi yëpp gis ngeen ko ni policiers yi duggee yàq sagage yi néegu jàmbur ki leen tax a jóg mus ñoo fekk ci moom benn drogue. ñoo am kenn ku leen tax a jóg am na ku ñu doon wax xam na benn boy bi ñu doon seet si foofu mais même boo bu même kooku boo ko fekkoon ñu wax la ko fekkoon moom dara mais loolu nga ko war a def mais nañ bàyyi li ñuy def di toroxol xale yi ñoom ay nit lañu comme ñun dañ leen a jur ñu am papa am yaay xale yi am papa am yaay mais nañ bay la ñuy def lii nag bés bu ñu ko bàyyiwul ah képp kuñ ci xam nga nga rey nit nañ la rey. parce que loolu mooy xamante ni gis nga gis nga sa doom ji ci li nga xamante ne ni moo di ci hôpital bi état de santé maanaam yaramam wér gu yéem. non lii dafa ñaaw gis ngeen lii ay gestes criminels dëgg lañ def non kii xale bi boo xoolee bopp bi dañ ko def. bu ko ma wax sax ñu ni famille bi di yëg xeer pavage yooyu ñu doon wax bopp bi yëpp lañ yàq. faar yi côté nopp bi sama xol bi dafa jeex daaw ma jooy de mais tey dama jooy ah di pour lan. amet ah, ma xool euh, est-ce que ëpp na ëpp na vingt cinq ans ëpp na vingt cinq ans. ndax autopsie bi génn naa wala. yëpp génn na ran nañ ko commissariat ba mu bindal ñu kii bi ñu yóbbu ko ci procureur bi procureur bi répondre nañu ba ñu jëlaat papier yi delluwaat ko ñu libéré ñu corps bi yenn autopsie euh, autopsie yi yenn papier yi ñu ngeeg suma jarbaat bi yooyu yëpp ñu ngi ak ñoom maa leen nañ ko garder pour l'instant waaw. non autopsie bi kay li ñu ci def dafa ñàng sax man moo tax cause wu blessure yëpp mi ngi ci après booy bu paree moom mën na la ko woon comprendre rang en tout cas lii daal dama bëgg ne état na yëg lii mooy surtout président am nañ président bu bees na taxaw ci lii ñoom it jaar nañ ay policiers yi ci lii ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ñëpp kon xam nañu police actuellement deful liggéeyam. ñun ay ancien militaire la ñu de mën nañ faj suñu bopp mais nañ nañ bàyyi li ñuy def ñun bi ñuy servir suñu dëkk ñoom juddu wuñu. da ngeen a déposé plainte wala yéen famille bi. plainte bi dinañ ko déposé avocat bi dina ko déposé bu jaree jër téeméer mu avocat bi wallaahi dinañ ko def. ndax kese la woon wala dafa am ñeneen ñu mu àndaloon. ñoom ñett la ñu woon ñett la ñu benn booy bi ñoom gaañ nañ ko ba toj yàq bëñ yëpp kanam gi même chose mu ngi fële ñu ñu taxal ko ñu dañ koy dañ koy àttee waaw ñeneen booy bi geste criminel la doon dem koo bëgg rey mu fayu koo bëgg a rey du fayu ah léegi la nañ bëgg di rey nit ki mu toog ñoom nit da ngay wax ak ñoom sax pare woo ñu mbañ la boo ñëwee ci birgaar ba soxla kii keroog bu booy bu tëddee foofu kii dafa jam foofu di ko xool waaye da ko ne dégage loolu war na leen ñoom ñu ñoo leen fi teg. mais bi nga xamante nii àkk si nañ xela yooyu ndax fekk nañ ci ñoom dara wala ba léegi amuñ ci ñoom benn preuve. dara amu ci ñëpp témoin yaa ngi fi. tey yaa ngi fi ñu ko fekkee benn benn benn ñoom ñëpp a ngi fi amul benn bi nga xam ne ñoom mën nañu wax ne yor nañ ko fekk ñu ci ñoom dara ñoom bu ñu yaakaar yàlla amul yàlla am na. ñu xale bi wax dëgg yàlla ku ñàkk ñaan la lu mu am alalam boolewu ko kenn ñu nii di fa même de ah wax dëgg yàlla moom danañ yëngu ci ay laadum mag yooyu yëpp ah. yooyu yëpp mi ngi ak moom laadum yaa ngi fi xar yu ndaw yaa ngi ay ginaar ak yooyu yëpp da koy jaay mais tey loolu xale bu koy yëngu même bu fekkoon ne nekkoon na xale bu bon tey bay def lii mais police moo ko war a encouragé mais police mënta ñëw xale yi bu ñu yoree xaalis nga bëggoon nangu xaalis boobu pour lan ñoom bu ñu bëggee xaalis nañ ko liggéey nañ ko liggéey. am ngeen preuve ne police moom moo ñëwoon ci néeg bi. ñoom la ñu xam leen du ñeen ñaa ngi dëkk fii nañ génn. nañ génn merci beaucoup ñu ngi lay jaale bu baax di la ma saw uh-huh. ah mais jërëjëf mi ngi nii daal maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm parce que bi ma leen ko waxee boobu ba léegi bàyyiwu leen yéen a ngi ñëw waaw man kay li ma leen di ko li ma leen di ñaan rek lii ne état fexe ba yëg ko parce que ñu ne du ñu bàyyi état bu bu ñu amu benn firnde ni état def na liggéeyam ñu ne du ñu bay mais état bu deful liggéeyam leen lan ngeen fas yéene. nañu def nañu rey ñu jex peuple yëpp xam na ne rey rey na ñëpp loolu moo gën. policiers ay civil lañu nañu dem jàng dem armée moo gën lii ok. heure ñu yeewoo sëñ bi lan nga wax nga ne. man man benn affaire rek ma metti si ñoo xamante ni am am na tënk yoo xam ne ñoom ñoo la waroon di la sécuriser jàpp benn booy bu ndaw war na sëñ Bamba jàpp leen dóor ay dóor yu metti loo xam ne si benn yoon. ñun jouru dëj Mouhamed bi. ba si dóor ba si toog ñu ñëw fekk ñu fi dóor di ñu ay lacrymogène lii kenn kenn xamul lii kenn xamul ban dëkk la war na sëriñ Touba lii kenn xamul benn ban dëkk la ñun inspiré ñun inspiré ñun inspiré xamal la ñu war a def tëral suñu bopp rek ñu dóor ñu war na sëñ Bamba. fii ne sax ñu ngi koy maltraité seen oto nii nii nii tax xeebuñu li ñu bu ñu jàpp ko maltraité seen moroom mu bàyyi ci boppam nii nii man dañ ma naroon a fël moom mooy ci jàpp dañuy taal sanday amul loolu amul lii fii lépp ñu ñu leen bàyyi day ñu nekkee ñu ñëwaat di def li dañoo sonn dañoo dee mënuñoo boole ñàkk mag ñooy leen door ko ko mu dee ñun ñu ñàkk pour lan pour lan dañoo sonn waay. ñii bu leen yi ni koy gisee ñu ngi file ci pikin ci dëju ki nga xamante ne nii moo di euh, Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. waa police Pikine la waaw. jërëjëf mbokk internet yi comme ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne nii moo di Mouhamed mi nga xam ne moo daal di ñàkk bakkanam yéen a ngi koy gis nag li nga xamante ne nii moom moo fi xew nekk lu doy waar ndax bu ñu demee ba nit nekk ci naqar ay lacrymogène ay dóore di lacrymogène. xale yaa ngi xeex ñëpp ngi xeexoo sonal nit ñi ñëpp ngi daw lacrymogène yaa ngi nii. wax dëgg yàlla li métti na métti na trop reneen doomu jàmbur ji ñu rob ko bari ñu policiers yi ñëw di leen ñaaw di leen tur di leen sol ay ko du dëgg du yoon nit ñi sonn nañu sonn nañu mbay doomu jàmbur yi ñuy rey lii war nañ cee wax lii war nañ cee wax mi ngi noonu war nañ cee ko sonn nañu sonn nañu sonn nañ sonn nañ dañu arrêté nañu arrêté lii nañu arrêté teguñu ko fenn yoon yow yaa ngi rey doomu nit ba ñu ngi defal suñu di muñ di leen defal suñu doom yi démb ba léegi ñu leen di defal nañu dal nga rey suñu doom ba pare ñuy sang dem di suuli ngeen attaqué leen waat ñoom ñooy ban am ban monde lañ nekk léegi ban àdduna lañ nekk léegi li ñoom lan lañ bëgg lan lañ bëgg nañ ñem sa amer rey nañ ko mais bu ñu reyaale si ban àdduna lañ nekk yow da ngay tooñ ni ka pare rey ko ñoom la ñuy seet si moom gisuñu ko jëlee na fekk nañ ko këram jëlee ko këram door ko yóbbu ko technopole ba door ko ray ko yóbbu yóbbu ko hôpital indil nañ ko jël nañ suñu suñu néew suuli nañu waa jàmm naa nañ ñu may jàmm mais doxaat ñoo fekkaat ñu fu ñuy dajee suñu daj di lekk ñu attaqué waa ñu ak ay lacrymogène dañoo ray ay borom yi xool la ñun ay nit lañ ay jaabi yàlla lañ buñ ñu ray buñ ñu ray lii nag leneen lu ci am ñoo koy nit seen bopp buñ ñu ray na ñu may jàmm d'accord jërëjëf jërëjëf internet yi amuñu droit ñëw ci dëkk jàmm xam nga di di di di dóoraay la mademoiselle du yoon quoi bu dara ñu xool ñi dañoo am métit ba pare bu leen teg beneen métit policiers xam nga ñu baay di téye gars yi di rey nit bu defee loolu yoon da nga koy yóbbu si kii nii at si yoon yoon atte ko mais du noonu c'est pas professionnel quoi non justice nous xam nga nous voulons la justice quoi vraiment nu sommes marre nous voulons la justice Pikine gars yi dañoo respecté wul te fii ay noobu la fi dëkk ay jàmbaar ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ñun Pikine lañ gëm ñun Pikine lañuy sagoo xam nga mais nit bu defee lu dul yoon yóbbu ko si yoon yoon atte ko mais paa nga koy fitnaal yàlla bugul kuy fitnaal doomu aadama ba pare non seulement ñi ñëw si dëju jàmbur ba pare di dóor di dóor yi loolu du yoon du benn yoon du yoon ki ñu rey nii sama jarbaat la sama jarbaat la sama lépp la xamul dara lu dul liggéey liggéey rek la xam te moo yoroon ay famem lii dafa ñaaw gis boo jàppee nit bu nekkul si yoon da nga koy téye yóbbu ko si yoon ñi jaarale ko si yoon waaye di dóor nit yóbbu ko ba buntu police naan dafa yomb yóbbu ko ba continuer moom ba technopole di ko dóor ba damm ay faaram. dafa metti toj ndaalu bopp bi xale ndaw. lekkagul dara ci àddinaam te famem yaayam ak papaam bu yàggul rek la ñu génn àddi dete moom moo yor ay famem lii dafa ñaaw léegi léegi la ñu doon tànn ay la chromosome dañoo daw renfort la ñu yor ñu ngi nii rey ba pare waxatuñ ci dara ñu indi wat ay renfort di ni kii ñu woor ba woon dañ ko tàmm du bii yoon de du bii yoon dañ ko def dañ ko tàmm habitude la ci ñoom dañuy dóor dañ lay fekk sa biir kër dóor la ba nga bëgg a dee saboté la yàq say bagage toroxal la ki li ñu def nii teguñu ko fenn dañ ci war a wax nguur gu bees gi dañ si war a wax nag ñi jël mesure am ñu benn droit di dóor ku la ñuy dóor xale la xale la moo ñaari jërëjëf mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Pikine ci dëju ki nga xamante ne ni moo di Mouhamed nekk jeune bi nga xamante ni moo fi génn àdduna waaye gis ngeen mbir mi dafa euh, mujjee metti ndax gis ngeen ci dëj bi ay lacrymogène la ñu fiy dóor xeex commencé fi am ay jàppal bàyyi mu nekk loo xamante ne nii ah, metti na euh, fi mu nekk nii eh, nañu ki nga xamante graisse joxuñu leen graisse rek ñu sonal leen dóor leen ñi ñoo la xale ci boppam Modou bu ñu indi fii waruñu ko indi waa du yoon Modou Baye Fall la Modou dooñul kenn ci kenn moo xam ne taaya wóor na yàlla nit ku baax lañ rey nit ku baax lañ yóbbu teguñu ko fenn lañ def Modou ñoo ngi indiwaat ko fii nañ yéen a koy dégg nañ bàyyi jàmbur deful kenn leen metti na am na taay amal nañ ñëpp baax na yaru na mais nii fekk nañ ko fa fekk ci loo xamante ne yorul dara dara social dong la doon def ñu rey ko nii nii moo ngi li nañu metti xaritam bi xaritam bi boo gisee ñu def li lii moo leen metti niñ ko def nii dañ kaa rey rey bu ñaaw rey bu ñaaw lañ ko rey ba pare ñëwaat toroxoñu suñu biir dëj waaye yéen nañu xaar léegi laaj nañ la ndax luwaa am na ci dëkk bi nag lii luwaa la wax leen nag lii nag naqar bii nag mënuñu kaa fàtte ñu ci àdduna mënuñu kaa fàtte. léegi suñu ndey yaa ngi nii booba ñu rey ko tëj ko ci néeg une semaine ñu rey ko tëj ko mënuñoo xamee message ci lu mu nekk buñ demee di ko seetu duñ ñu may sax ñu gis ametaay pour lan ñoo gën a am lu ñu métti ñun ñu bokk moom ah boobu dee na ñu nëbb ko une semaine yàlla ñu mu dee ñu nëbb ko door ay birig yeeg lépp lañ ko doon door Ahmed Nday daa attan loolu naka ne boobu sama xarit bi ma nekk si biir oto bi may naan ñii ku ñuy door door yi métti na mu mel ay xeer la ñuy door si biir oto bi ñuy door maa ngi naan ay waay ñi soxor nañ ku ñuy door si oto bi yaagu tuuti Ibrahima Ndiaye ñoo ne ma sa xarit bi la la gars yi jàpp fee ma ne ko fii lañ romb di door taay si jour bi la dee am na taay si jour bi si jour sama xarit boobu si bi la dee massa massa bilaay metti na metti na metti na ñàkk sa mbokk ba pare teg ci di dund li nga xamante ne nii moo di naqar ak euh, fitna euh, ci dëju ki nga xamante ne nii moo di euh, Mouhamed mi nga xamante ne nii yaakaar naa démb gis ngeen image yi ci wasaare tey jii lañu ñu ci dëj bi ndax magam boobu wooluñu fi puusal ma puusal ma jaar ma ne ko boo dee demoo nga rey ma barki maam seera fa ma daw sonko mu daw dugg si biir bi billaahi 23 heures lañ ko rey billaahi te na boo leen ko door ba mu dee. fii xeeru pavé la nga dóor ci fàmb. amee daa tuuti amee maa ko ëpp xoolal ma nu ma tooy som nit. billahi mais dañuy rey rek mais duñ taw ñoo Diop lañ sant Diop parce que Serigne Touba Mbacké billahi wallahi taalaay mardi lañ ko rey mardi dina ndësal affaire bi dina ndësal affaire bi ba kañ daa war a jeex Pikine grand daa war a jeex Pikine massa massa doy na waar massa billahi metti na uh-huh. Uh-huh. ñu jékki gis nga ko kon li ma doon wax sànq gis ngeen leen policier ay criminel lañu ay assassin lañu. gis nga lii état état na ci jóg. parce que mënoo nekk ci dëj même boo amee ak ay booy problème fële mais nga xam ne yow yaa rey ki dem mais waroo ñëwaat ba ci dëj bi. imaam ya fa toog ak lépp nga defa dóor ay lacrymogène mais lii lan lañ bari Sénégal lañ ne bari Sénégal lañ ne mais lii lii lan la non yeneen yeneen bakkan lañ bëgg ñoom nañ sivilu ñëw bu ñu fekk ay góor lañu nañ sivilu ñu ñëw nañ ko def ñu xool wallaahi duñ ko duñ def comme jigéen nañ ko def ñu ñëw waaye ñu xaj la ñu waay jërë ngeen jëf mbokk internet yi yaakaar naa ne fu mu nekk nii eh, gis ngeen li nga xam ne moo xew file eh, ci Pikine dégg ngeen nag magam bi daal dinay jot ci li nga wax ci li nga xamante ni moo di autopsie beeg yooyu fi mu nekk nii gis ngeen li nga xam ne moom moo fi xew ñu ngi taxaw ak koo xam ne mag la aussi si famille bi dañ koy bàyyi rek moom mu tamit mu wax ni mu ko gis. de m'exprimer en français. Euh, c'est une population meurtrie, traumatisée, qui vient juste d'enterrer son fils, l'un des dignes fils de ce quartier, Mohamed Diop. Euh, nous l'avons enterré parce qu'effectivement, il est victime d'une bavure policière. Les policiers, en l'amenant, l'ont traumatisé. Et nous avons constaté dans le, cette frère de Jean de Mort euh, qu'il a été euh, euh, tué d'une mort très violente. Selon le médecin légiste, euh, il subit beaucoup de traumatismes, euh, des fractures euh, de quelques côtes, des fractures crânières, ce que nous déplorons. Et nous espérons que le procureur de la République sera saisi, va s'autosaisir même pour que justice soit faite. Parce que vous avez vu comment les jeunes sont excités aujourd'hui. Parce que un des leurs est parti dans des conditions très douloureuses. Nous avons espoir en notre justice. Nous avons l'espoir qu'au lendemain de cette élection, cette ère nouvelle qui vient de s'ouvrir dans notre pays, avec l'arrivée de M. Diomaye Faye à la tête de ce pays, qu'il n'y aurait jamais plus d'impunité dans ce pays. Que cessent toutes ces bavures policières une bonne fois pour toutes. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de prendre à bras le corps cette situation-là, pour que cela puisse s'arrêter à ce mort-là. Sinon, Sinon, nous allons compter d'autres cadavres. Parce que vous voyez ces jeunes, ils ne sont pas là pour, euh, euh, euh, pour, pour, pour, faire les yeux doux à la police. Ce qui est sûr et certain, tout policier qui ose s'aventurer au dehors dans ces jours-là risque sa vie. Et c'est dommage que les, les, les autorités aujourd'hui entendent le cri de cœur des populations entendre le cri de cœur de ces jeunes et qu'on ne fasse pas en tout cas, arrêter l'hémorragie quand il est temps. En tout cas, nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que ceux qui sont artisans de cette bavure policière, que ceux qui ont les messieurs de sang aujourd'hui, le sang de, de, de, que ces gens-là soient euh, ngeen euh, li nga xamante ne ni moo di euh, kilifa gi moom tamit daal dinay wax waxaale li nga xamante ne ni moo am ci autopsie bi waaye ci ki nga xam ne moo di génn àdduna Mouhamed Diop moom tamit gis ngeen vidéo yi ci wasaare bi dugaloon nañu ko gis ngeen li nga xam ne tey nag moom moo fi xew ci jour bi nga xamante ne ni moom lañu ko denc di ko saraxal mu nekk loo xamante ni lu metti la. ndax ñàkk sa mbokk ba pare boole ci ak ay xeex wala ay lacrymogène la lu day xaw a metti nañu ñaanal ki nga xam ne moom moo fi euh, bàyyeekoo te yàlla yërëm ko xare ko aljanay si fa mu jëm gënal ko fi nga xamante nii fi la jóge mais tey nit du ñàkk ba pare nga koy gën a dolli loo xamante ne ni kenn du xam kenn du mën a. Hmm. yaa ngi gis ne si dëj nekk dañoo dem suul ji lii léegi léegi ñëw même pas une heure de temps ñu ko mu ngi nii lu amul preuve bu leer naññee ñoom ñoo ko sànni léegi ñun lii senegal lii lii lii nii si ban réew lañ nekk quoi sa waay ñii bakkan lañ jël bakkan bi ñu jël kii nii barke leeru arxuraan laa la wax de man man mii man sama jëma bopp maa mën a seere ci moom lu bari ndax dama doon nekk ak moom tout le temps. doon defal ay jaamu yàlla nag lu baax rek barke leeru alxuraan koor gi nii ba nu koor gi commencé ba nu jeexee day xëy di joxe ndogu barke Cheikh Ibra di ñaanal gaay yi jàmm ak wérgu yaram ak gudd fan te moom tay xool ko Fall yow Fall ñu nekkuñu Sénégal senegal waaye yow waaye yow réew mi daa nekkoon réew. Eh, eh, lii teel lay soog a feeñ soxna si. lii man victime laa mus nañ ma ko def. def nañ ma lii si xam na laa jotee ñoom. dañoo ñëw fekk ma si milieu di ma laaj carte d'identité ma ne ko présente toi indicateur la ñuy àndal dañuy doon policier ñaari ñu ànd ak lu ma cinq police kii indicateur ma ne ko présenté sa kii sa carte professionnelle mu ne ma yoo xam nga lépp di ma wax li ma ne ko eh man xaw ma la li ma sëkka yoo xam lan la carte d'identité nga won ma sa carte ñu dóor ma xoolal mu dóor ma may xeex ak moom de ñu yóbbu ma ba fële technopole ñoom ñëpp téye ma man ak man la Birane Faye ak benn gel téye ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu ba sama bëti yi di reetal est ce que moom ma la gaañu ba pare jël ñaari pakkatu yamba sëf ko keneen ki biraan ne ko moo ko moom man ñu ne ma veillé est ce que ma la lii c' est pas la première fois kii la ñett lañ jàlloo la Henri ak beneen jaago seen brigade boobu kese ak xaaraar ñoom kese la waaw te duñ dara ay sàcc lañ man maa ko wax ay sàcc lañ ay doome xaram pire lañ. doom d'accord gaa ñëwal xalil euh, ñëwal tuuti ndax dégg naa ñu naan kii bu deewee xaw ma euh, soxna si nga xamante ne nii moom fi mu nekk nii sonn na du ngeen ko yóbbu hôpital du ngeen ko woote. damay laaj ba xam man damay laaj man ba xam policier am nañ droit ñëw fii te amuñu autorisation. mun nañ génn te doon am PV commissaire nee na doon génn nañ te amuñu PV loolu mun na nekk mun nañ rey suñu nit boom ko rey ko ma mu dee ñu bëgg ñoo reyaat waa ñun ban réew man mënu ma wax sama xol dafa tooy. mënu ma wax dooma raam. naqar par ñu di yàq suñu dëj ay gërënaat doomu xaraam yàlla na yàlla àtteeg ñun ci kaw suuf barki sëriñ Fall yàlla na yàlla àtteeg ñun gàtt suñu yàq trop rey kii bari ñëw yàq suñu ay magi jëm wóor ba ngoon ñu daanu dafa ne loolu rafet na sunu àq na leen dal barke sëriñ Fall sunu àq fii ku fi dee rek ñoom ñoo leen metti na metti na trop gis ngeen li nga xam ne moo xew ci jouru dëju bu Mouhamed. voilà salaamaaleykum waa Wasaare TV lii na ngeen fexe mu dem si Jomaay fay ak président Ousmane Sonko parce que lii dafa war a yegg si ñoom ñun ñun ñu ngeen di gis tey ji ñu taxaw fii ñu ñun ñoo doon xeex biir Pikine bu manifestation ame bu injustice amee bu ñu jàppee Sonko ba Adji Sarr defee lu ko neex keneen ak keneen ak keneen ñun ñoo doon wàcc si terrain bi di xeex tey nag déguisé wuñ duñ kagulewu yéen yéen a fi nekk bu fekkee sax dañ ñoo jàpp tey deux jours prochains na ngeen ñu génnee xam ne dañ doon dañ doon xeex dignement on veut plus la police nous voulons la gendarmerie et nous réclamons la justice pour Ahmed Taya na ko ñëpp yëg amul diaspora bi na ko ñëpp xam lii na ko Mollah Morgun live ñëpp jot yoon lii gis nga buñ ko bàyyee bu jàll dinañ reyaat beneen beneen sën dañoo yaakaar ne ñun ay ay ay ay malfaiteur lañ ñun duñ ay malfaiteur ñun ay soudeur lañ ñun état dañoo la wax policiers yi dañ ñuy saagaloo ñi dañ nice quoi jërëjëf jërëjëf fi mu nekk nii seen xol moo neexul ndax comme ni ma koy waxee nga ñàkk sa doom ba pare mbir yu mel nii ñëwaat dal sa kaw kilifa gi loo wax nga ne. waaw ma ne man Sénégal man dama xamatul ñun si ban réew la ñu ne mu noo rey nit sey élément rey nit ba pare police dóor nit ba mu dee si ñuy dëj ñu fekk ñu fa di dóor ay lacrymogène te dëj bi am na fi ay nit ñoo xam ne tey jii daanu nañ daanu boo xam ne ni tey lu leen mënta dal responsable bi ñoom la. waaw ndax tey mënuñu rey ñun suñu rax ñu am lu ñu metti dem suuli ba ñëw ñu fekkaat ñu fi du ñu dóor ay lacrymogène xale yu ndaw yi lacrymogène yi si biir kër yi xale yu ndaw yeeg liir yi ak maire yi màgget ah mais mais ñun si lan la ñu nekk lan la ñun kenn xamatul lan la rey suñu rakk ñuy jooy noppee ñu fekkaat ñu si biir dëj bi di dóor ay lacrymogène lii nañ si wax wala ñoom léegi ah suñu bakkan xoola dañ leen koy jaay boo bëggee dégg-dégg suñu bakkan dañ leen koy jaay waaw d' accord jërëjëf yaakaar naa ne yéen a ngi gis li nga xamante ni moo di image nga xam ne euh, moo xew ci dëju euh, Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di euh, bàyyeekoo gannaaw démb bi ñu fi ñëwee tey nag ñu xëyaatoon ñëw ci li nga xam ne moo di sarax bi waaye li nga xamante ni moo ngi ngeen fii gis daal di nay doy waar lool ndax bu ñu demee ba dëj ay lacrymogène di ci am ci weeru koor bi nga xam ne am na ay mag ñu fi nekk am na ñeneen ñoo xamante ni feebar nañu fi kon mbir moom mu doy waar nañu ñaanal ki nga xamante ne ni moom moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko ko xare ko aljannay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jóge euh, gis ngeen nag ñun dañu ñëwoon rek ngir bokk ak famille bi euh, tiis bi waaye bokk ñoom naqar bi waaye fu mu nekk nii yaakaar naa ne euh, tiis bi naqar bi dafa nekk loo xam ne dafa booloo double ci li nga xam ne moo di famille Mouhamed mi nga xam ne victime la mi nga xam ne moo fi daal di jóge kon yéen a ko gisandoo yéen bokk internet yi ci li nga xamante ni moo di ci image yi kon na ci président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di wax na jëmale ko ci balaa moo gën a metti wala balaa moo gën a tiis ndax bu demee nii wala mu gën a di defee nii rek xëy na dina yégg foo xamante ne nii yaakaaruñu ko woon comme son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye bi mooy première kaawam boo xamante ne nii gis nañu mu metti lool kon ñu ngi koy ñaan ngi bisabilillah mu jàpp ci teel ci àddu balaa moo yegg foo xamante ne nii duñu ko fa foogee ndax bu ñu demee bu ay dëj lacrymogène di ci am xeex di ci am wax rek xëy na dina egg foo xam ne fay yuuxu dafañ foogee wutoon loo xam ne dina metti lool ci côté yëpp nag ci côté ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy famille waa ji ci côté xamante ni moo di ay xaritam ci côté ñi nga xamante ni ñoo yor sécurité Sénégal kon ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye ñoo ngi lay ñaan rek nga gaaw addu ci li nga xamante ni moo xew Pikine ci dëju ki nga xamante ni moo di Mouhamed di jeune bi nga xam ne moom moo fii daal di bàyyeekoo comme ni ngeen koy gisee jël nañu famille bi jël nañu magam ñuy wax ci autopsie bi nga xamante ne ni daal dinay génn kon yéen a gis image yaa ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci seen site bi di wasaare di leen jox rendez-vous ba beneen incha allah ak yeneen i actualité ak système en taalibe sëñ Abdoul Karim Mbacké bu mag bi jaajëf. di lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax. bi naka la. tur bi Iba Diop la. Kebe Diop nga nekk grand frère ci Mouhamed mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo nga yoroon li nga xam ne moo di autopsie beeg yooyu ndax mën nga ñu wax ci kayitu autopsie bi lan la génne ak yi nga xam ne moo xewoon ci hôpital bi. waaw li si hôpital mooy daanaka affaire torture la rek jël nañ xale bi dóor nañ ko dóor ba daanaka biñ koy yóbbu hôpital sax presque dee na la ñuy wax rek bi ñu ñëwaatee ñu def lu ñu war a def kayit autopsie bi génn bi autopsie bi génn tamit wanewul lu dul ay yax yu dammook ay faar yu damm ay mbagg yu damm yooyu dong moom lañ fi wane te bu ñu wanee loolu tamit kuy autopsie dafa doon lu leer loo xamante ne ñun mënuñu si dara mënuñu si dara waaw rayal nañ ñu nag suñu rakk koo xam ne amaloon nañu njëriñ njëriñ la ñu amaloon ndax euh, daanaka suñu lu bëri moo ko yoroon ndax mu ngi liggéey mu ngi def lu mu war a def ñun fu mu war a jaar ñun mu ngi jaar ak ñun foofu autopsie nag lu mu génnee dafa doy waar lool lool lool sax dama doon sax ragal a wane affaire autopsie boobu bëri ay fracture autopsie bi li mu ngi nii léegi léegi dinaa la ko jox nga xool ko ndax loolu ku ko xool xam ni carrément te dañ leen tooñ ba si kanamu yàlla li ñu leen tooñee fekk naa la si biir néeg yaa ngi ndogg sa ndogg mais jarul ñu lay takka bu ñu amee soupçon nañ ñëw def li ñu war a def te bu ñuy dugg si kër war nañ am mandaa bi ñuy dugg amuñu mandat amuñu dara mënoo dugg kër jàmbu rek yuuxu saaga dóor li nga bëgg amoo ko nga ne dañ may jox lii nga saaga nit mu fayu nga ne da ngaa réew nga yëpp ko dem si oto yóbbu ko mais lan mooy firndeel que ne ñoom ay homme de tenue la ndax dañu présenté carte wala dañu soloon tenue wala nu dem euh, ak lu ñu ma ñàkk présenté kart man bi ma ñëwee ñu ma carte ndax dama ñëw fekk ñu jël booy ba yóbbu leen bi ñuy génne booy man ci laa yem dégg ak menaces yi leen doon def ak saaga yeeg dinañ leen yóbbu loolu man dégg naa ko ci man bañ leen yóbboo nag bañ demee police nag man xam naa ñoo xam ne ay policier lañ loolu man xam naa ko ci te gis naa ko ci ñoo xam ne ñoo xam ne ay policier am na si ay ASP ñoom ñëpp xam nañ seen tur mën na nañoo tudd seen tur benn par benn ndax xam nañ seen tur ñoom ñëpp waaw. bi nga xamee ne te gis nga ko moom euh, maanaam yaramam lan fa la am ay gaañu gaañu. man avant autopsie di am biñ koy njëkk a évacuer di ko yóbbu dalal jàmm man ma nekkandoog ñoom ak ci biir li ma nekkandoog ñoom ak ci biir yëpp di ko yóbbu man kii laa gis si moom lu ma gis si moom daal man gis naa ne yaram bi tëccu na. loxo bi newwi na man xam yaram bi yëpp toj na xam naa ne kii dafa damm loolu xam naa ko ci moom mais bi demee nag autopsie bi nag moom moo leeral yenn yi waaw mais lan moo waral coow li ndax gis nañu ba ci jouru dëj bi ay lacrymogène ak yeneen ak yeneen di ci xew. xam nga policiers yi dañ ñoo tooñ bëgg ñu tooñaat ñaari yoon mu xamee nag moom mu xameetu nit ñi la mu xameetu nit ñi la ndax Mouhamed moom moo ji nit ñi teraanga c'est que ku ne teraanga bi nga xamee ne loolu am na ñu am lu leen metti lool yoon war a def liggéeyam yoon defatul liggéeyam ñëw ba si biir dëj bi di fi dóoraat ay lacrymogène loolu teguñu ko fenn loolu teguñu ko fenn gis nga ni ñëw ba si dëj di fa dóor ay lacrymogène di jàmmarloo xale yi xale yi il ñu fay ñoom tamit li dañoo am lu leen metti ndax ku leen amal njëriñ lañ def te yaakaar naa nag dañoo nekk si. nguur gu bees nguur gu bees gi nag war na mën a def liggéeyam lii war na si mën a taxaw te yaakaar naa bii mooy seen première cas war nañ see mën a taxaw ndax lii lañ doon séntu si ñoom ndax lii lañ doon xeex ba ñu jox leen nguur gi kon kat nañu def seen liggéey. d'accord lan nga ñu mën a jox ay kàddu seede ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di jóge. Mouhamed dafa dib nit ku baax mu Mouhamed bëggul ku mer bëggul ku ñàkk. dafa ma teggil sama lépp. lépp la ma Mouhamed eggul ki taxawoon léegi wéeru ma nii sama doom la mu Mouhamed moo leen yor moo leen defar lu nekk moo leen koy defar su ma leen jox sax dafa naan bàyyi leen koor gii mooy joxe ndogu mooy joxe xëdd mooy joxe lu ñu toog ba fee mu jaral ko bëgg joxe moo ko jaral mu dem sa daaru fee problème amee di segg ndogu di joxe xoolul kenn ko ko jox dërëm wala ñaadram lu mu yar si ay xaram di jaay di yar ay ginaaram di jaay lu mu am mu koy bokk ak nit ñi di ko bokk ak ñun ñii mais naka la demee fi ngeen ko yóbbu fan nañ ko yóbbu hôpital ndax moom ci yoon bi la ñàkkee ba kanam wala ci hôpital bi la ñàkkee ba kanam wala. ndax biñ ko yóbbu hôpital moom waxul deful dara biñ ko yóbbu hôpital ba ni mu gaañoo amul benn lenn lu mu wax waaw niñ ko yóbbu hôpital ba ñuy wax waxul dara waaw waaw. d'accord comme fi mu nekk nii yaakaar naa ne fi mbir mi mu ngi gën a metti dañu lay jaajëfal rek di la jaali di la saw mu ngi leen jaajëfal bu baax a baax. yaay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Seynabou na bu lan nga ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi dal di bàyyeekoo. yaayam parce que maa ngi yaayam ñu bokk ndey sama rakk la waaw Ahmed sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo dal di dal ci seen kaw di la ma saw bu baax a baax yan kàddu yu sedd rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di jóge. Ahmed dafa doonoon doom ju baax. wax dëgg yàlla ak yonente bi gëm boppam bëgg liggéey xoolul alalu kenn waaye dañ ma woo ma nekk kër Mbay Fall ñu ne ma yaay Amet dañ ko jàpp ma ne ko lan la def mu ne deful dara de dañ leen fekk foofu rek bi ñuy ndogu policier ñëw dugg fekk leen fa jàpp leen di leen dóor di leen palpe fekk ñu ci ñoom dara di leen dóor ah ma ne ko loolu du yoon ma toogaat ba ci kanam ñu ne ma yóbbu nañ leen man ko fu ñu leen yóbbu mu ne nee na dañ leen yóbbu police ba delloowaat leen ma ne ko déedéet ma toog a toog a toog ba min bu jot sama doom bu jigéen bi woo ma ne ma ah yaay yóbbu nañ leen technopole de waaye dañ leen a dóor a dóor a dóor ba amet daal mu ngi ci diggante dund ak dee wallaahi nee na noonu ñu jël ko yóbbu ko hôpital bu ñu dem nag duñ ko jël hôpital bu ñu dem duñ ko jël ñu mujjee nag dem principal bi ñu demee lañ ko dugal bi ñu dugalee Ameth ñun bu ñu buggee dem gis Ameth sax ñu bañ ñu ne duñu dugg pour gis ko mu metti lool nag waaw ñu naqar lu ko torop nag wax dëgg yàlla ak yonente bi waaw mu doonoon soutien de famille yor ay rakam yor ay magam man mi di wax ak yow mu yor ma lu ma soxla suba ba ngoon mu defal ma ko moom Ameth bu yàggul rek laa ñëw na ko Ameth sama téléphone bi laa bëgg nga changé ma mu a ma yaay dinaa la ko changé bu bees laa lay wutal maa ngi yaay mi ñoo bokk ndey ak baay waaye daf ma def comme yaay wax dëgg yàlla yonente bi métti lu naa ko torop nag. yaay ci li nga xamante ne ni jot nañ la ko expliquer ndax Ameth dafa amoon problème ak ñooñu wala. wax dëgg yàlla amul woon problème ak ñooñu wax dëgg yàlla xanaa nag dañ koo soupçonné rek waaye amul woon problème wax dëgg yàlla ak yonente bi. jàmm rek lañ ko xam leel segg kafeem toog ñu fekk ko fa def ko lañ ko def dóor ko ba mu dee metti na nag ba ci kanamu yàlla waaye nag lépp dañ koy teg ci loxo yàlla léegi nag ñuy ñaan nag président bi mu def liggéeyam parce que lii dafa metti lii dafa war a jeex ci dëkk bi parce que du moom rek lañ ko def am na ñeneen ak ñeneen ñu ko def technopole am na ñoo xam ne sax gisuñu leen am na ñoo xam ne gisuñu leen léegi nag ñun dañuy ñaan dimbal waa ñu jàppale ñu te yàlla tax président def liggéeyam su deful liggéeyam tamit ah suñu njaboot gi tam dañ def seen liggéey. def seen liggéey ci naka. waaw foo ñu def seen liggéey. ndax duñ leen bàyyi noonu. di dox di leen xool nii di leen gis ñuy dem seen yoon ah déedéet mënuñu ko waa dañuy ñaan nag président de la république bi mu def liggéeyam. ndax da ngeen xam ñan ñoo ko def wala da ngeen a am njottu ci ñi ko def. am na xale yi am na ñu bari xam nañ leen. ci ñi ko def waaw ci ñi ko def man xaw ma leen waaye xale yu góor yi am na ñu bari xam nañ leen mm-hmm. wax dëgg yàlla yéen am na ñu bari xam nañ leen mm-hmm. waaw mu metti lool nag mm-hmm. waaw daal moo nekkoon sama wax. d'accord ndax bi ñu euh, dóoree ba bi nga xamante ni sa doom daal dinay génn àdduna ndax jot nga ko gis walla déedéet wax dëgg yàlla jotuma koo gis nee naa la suñ demee hôpital ñu ne kenn du dugg ñun ñëpp dañuy dellu si wax de ndax loolu neex na ci xol neexul ci xol boobu ba tey sa doom tëdd hôpital mardi. ba ni mu gaañoo tegoo ko bët ndax loolu neex na ci xol ah metti na trop nag. ban yëg-yëg nga am bi ñu la nee sa doom tëdd na hôpital ba ñu la nee sa doom daal dinay génn àdduna te gisoo ko tàggatoo ak moom sax tàggatoo gu mujj. defuma ko dañu maa wax bi ñu ma nee rek sa doom noppalu na ah, man de wax dëgg yàlla nit ñëpp ma fekk sama kaw falaa daanu waa kër gi yëpp ñëw ba ci koñ bi ñëpp ñëw fekk ma sama biir kër waa ci laa jógee nag sol sama yére. ànd ak samay doom ne la ñëw leen ñu dem parce que ma fi maa ngi dëkk Kër Mbay faal ma ànd ak sama njaboot ñu ñëw fii waaw ki doon wax fii léegi kooku sama doom la ku góor ki waaw kooku sama doom la waaw. lu bari marqué na ma ci moom amet lu bari marqué na ma ci moom wax dëgg yàlla yonente bi ndax bu ma duggaan fii rek fa mu nekk laay dem amet nangam amet nangam mu laax waxtu mu yëkkati jox ma kon loolu rek daf ma marqué. marqué na ma torop munu ma nag wax yàlla xam na ko munu ma wax. kon daal mën nañu ne sa doom ji tey daal dina lay wéetal bu baax a baax. dina ma wéetal ndax saa yi bu ma duggee Pikine dem këram fekk ko fa. fi muy fréquenté fa laay dem fekk ko fa mu toog ndeysaan bu ma egsee mu yëkkati la mu am ne ma yaay am demal nga ñibbi ma dem ñibbi kon manqué na ma torop dëgg yàlla ak yonente bi waaw ma la waxoon léegi rek moom laa lay waxaat na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam. lii rek mooy solution bi. jërëjëf yaa booy ñu ngi lay jaale bu baax a baax di bokk ak yow tiis bi. jërëjëf. c'est bon grand. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi siyaar bu baax soxna si. tur bi naka la. tur bi tur bi Idi Sañ la. lan nga ci Mouhamed mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. waaw Mouhamed mii sama doomu ndey la. waaw sama raq la. waaw ñoom ñëpp man maa man maa si mag yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak waaw sama rakk la. sa rakk la gannaaw ba ñu la jaalee mosawu la ci tiis bi nga xamante ni moo daal di dal ci seen kaw information rek nga ñu mën a jox ci li nga xamante ni moom moo fi waaw information yi moom mbir mi moom yenn yi tooñ la waaw ndax tey jii. tooñ tooñ si ndax nit même sax boo ko fekkee sax lu ñuy tere amoo droit dóor man mii di wax ak yow damay waxee si ancien militaire. classe 2002 2002 laa dem armée dem Batpara Batpara laa nekkoon kon man tey xam naa loi lu mu wax ak lu mu lu mu tere mais loolu musul am si benn loi waaw mais ñoom xaw man lu ma mënul comprendre nga jàpp nit vingt heures ba ay minuit di ko yóbbu vingt lañ leen jàpp si biir kër gi sax foofu lañ leen njëkk a xam nga tamit nit nga fekk ko si biir néeg dóor ko pompe à ba pare ëpp buntu néeg bi mais loolu mooy la loolu mooy kon ñoom dañu jëloon question ne dañ jëloon kii intention pour jéem a rey booy. vingt heures ba moom xale yi moom fan la ñu nekkoon. minuit bi wër nañ leen fu ne mais technopole ba lañ leen yóbbu xam nga ne koo yóbbu technopole yeew ko di ko dóor ay cours xamal ne kooku mooy dëgg da nga koy rey ñoxante dëgg tamit yéen nii waaw mais mais lii lii nii état da si war a jóg waaw ndax ñun tey jii lii du du duñu duñu duñu bàyyi de. du ñu bàyyi. bu yaboo ñoom nañu préparé bu bu état deful lu leer lu gaaw dinañ ñu rey ñun par kenn par kenn. ndax am ay preuve que ne ay homme de tenue lañ parce que ñi ma ci jël yëpp nee nañ bi ñuy ñëw dañu daal di ciblé ba pare joxuñu leen lenn loo xamante ni mën na leen présenté que ne ñii ay homme de tenue. non ñooñu Pikine fii ñëpp leen xam xam nga Pikine fii moom benn bopp la Pikine fii xale bu ndaw sax day xamante koo xam ne mu ngi dëkkee beneen secteur ñooñu xam nañ leen fii bu baax a baax. te tamit ak ay ASP tamit dañ ci raxaale ay ASP te xam nga ASP moom amul droit sax téye nit bay dóor nit waaw. mais lan moo sabab histoire bi ndax ñoom dañ leen a tooñ wala dafa am leen lu leen di toppee wala lan moo indi problème boobu. non ñoom ñoom ñoom xamante nañoo booy boo bëggee dégg-dëgg ñoom xamante nañoo booy yi yàgg nañu di jàpp booy fekk booy di tux wala booy yor lu ñuy tere ñu encaissé booy xaalis. ñoom ak booy yi xamante nañu bu baax a baax xam naa nag lii boo gisee mu demee nii nag dañ doon jéem a encaissé booy yi bañ. mais booy loolu. non man loolu moom wóoruma waaw mais loolu man moom wóoruma wax dëgg fa yàlla moom. waaw mais li nga xam ne man loolu lañ ma wax te ñu dëkk si kër gi ñoo ma ko wax ndax man tëngéej laa dëkk. mais man fii lu xew pikin man dama koy yëg waaw maa ngi tëngéej mais Pikine fii man sama lépp fii la waaw. noonu lépp. lépp après ñun ndax ñun lu si waroon këyit yëpp mu ngi ñun. waaw nga xamante génn àdduna muy Mouhamed di sa ndax jot nga ko gis. non man waa gis naa ko ndax ndax man nii depuis boobu ba léegi man maa si toppoon di dugg fu pour lijjanti këyit yi man boobu ba nii ba tey ji taluma sax lekk maa ngi woor waaw bu ma ndogoo ba naan kafe rek jeex na du ma nelaw. ko gisee ci gisee moom. non man gaawuma jooy mais tey moom dama jooy. waaw man gaawuma jooy nag waaw mais tey dama jooy ndax man li ma gis tey bu ma judoo ba léegi musu musu musuma ko gis waaw non gaañu gaañu yi dafa meti fo métti bopp bi bopp bi faar yeeg moom daal yaram bi daal moom daa yàqu moom wax dëgg fa yàlla moom waaw yaram bi moom dafa yàqu waaw. bu dundaatoon kii nu mu mel nii kii boo ko gisee nii da nga xam ne kii même bu dundaatee sax du baax. waaw même bu dundaatoon sax du baax waaw. am nga kenn koo xamante ni expliqué na naka lañ leen doon dóoree wala lañ leen leen dóor. wala non man kii bi sama sama kii bi frère bi. moo yooga magam ku mu bokkoon day ak baay Iba Diop moom moom moo leen toppoon moom moo leen toppoon waaw mais kii bi euh, beneen booy bu ñu escanté ba wekki bëñi booy boobu moo ko ne technopole lañ leen yóbbu ak dañ leen yóbbu technopole jëlee leen fa dugalaat leen biir arène ba. biir arène nationale ba pare mënatoo leen di leen dóor ay cours booy boobu ñu escanté ba defeere ko kooku moo wax loolu Ibba waaw te kooku moom tamit daa sonn waaw non moom nii noo moom kii nañ ko defeere nañ ko waaw nañ ko non kii maa ko yar ndax tey jii man ak moom ñii ñun ñun suñu maam ñun moo ñu ñun suñu maam moo ñu yar waaw moom yaayam dafa teel a gaaju sama maam nag yor ko benn moment sax sama yaay jëloon na ko yóbbu ko tëngéej ñu yeewandoo benn kër ma nag moom waaw benn kër ñu koy yeewandoo sama rax la du ma dugg Pikine tey déggante teewu te seetu ma ko ba gis ko waaw nit ku baax la te tamit alalam du ko booleeg mindeef waaw tey tey jii fii pikin fii amul kuy taxaw ne mu musul lekk xaalisam waaw lu mu yor ci poos bi yaa ko moom waaw waaw waaw waaw waaw ok merci jërëjëf mais daal man li ma siy dolli mooy lenn la policiers yi nañ wax ak ñoom liggéeyuñ ñoom seen bopp xam nga nit booy booy aar ay nit da ngay jubale mais ñoom jubuñu ñoom ñooy bandi yi ñoom ñooy criminels yi boo bëggee dégg-dégg te lii moom duñ si bàyyi dara xam nañ leen ñoom ñëpp nag bu si état deful dara dinañ ñu rey ñun ba ñu jeex par kenn par kenn waaw merci jërëjëf. ah gisoo ma ku ma bëgg ma ne ko kon naa la denc sama caat mu ne kooku de mën naa ko xaar parce ñoo. mun naa ko xaar parce que dañoo déggoo ma ne ko amul problème ma woo mag ji ñu waxtaan ba pare man la maa ngi dellu Tëngéej ma dellu Tëngéej ci guddi gi lañ ma woo di mu wax problème bi man la loolu lu mu mën nekk yëpp gis ngeen ko ni policier yi duggee yàq sagas yi néegu jàmbur ki leen tax a jóg mus ñoo fekk ci moom benn drogue. ñoom am kenn ku leen tax a am na ku ñu doon wax xam na benn boy bi ñu doon seet si foofu mais même boo bu doon même kooku boo ko fekkoon ñu wax la ko fekkoon moom dara mais loolu nga ko war a def mais nañ bàyyi li ñuy def di toroxol xale yi ñoom ay nit lañu comme ñun dañ leen a jur ñu am papa am yaay xale yi am papa am yaay mais nañ bay la ñuy def lii nag bés bu ñu ko bàyyiwul ah képp kuñ ci xam nga rey nit nañ la rey. parce que loolu mooy xamante gis nga gis nga sa doom ji ci li nga xamante ne ni moo di ci hôpital bi état de santé maanaam yaramam wér gu yéem. non lii dafa ñaaw gis nga lii ay geste criminel dëgg lañ def non kii xale bi boo xoolee bopp bi dañ ko def. bu ko ma wax sax ñu ni famille bi di yëg xeer pavage yooyu ñu doon wax bopp bi yëpp lañ yàq. faar yi côté nopp bi sama xol bi dafa jeex daaw ma jooy de mais tey dama jooy ah di pour lan. amet ma xool euh, est-ce que ëpp na ëpp na vingt cinq ans ëpp na vingt cinq ans. ndax autopsie bi génn na wala. yëpp génn na ran nañ ko commissariat ba mu bindal ñu kii bi ñu yóbbu ko ci procureur bi procureur bi répondre nañu ba ñu jëlaat papier yi delluwaat ak ñu libéré ñu corps bi yenn euh, autopsie yi yenn papier yi ñu ngeeg suma jarbaat bi yooyu yëpp ñu ngi ak ñoom maa leen nañ ko garder pour l'instant waaw. non autopsie bi kay li ci def dafa ñàng sax man moo tax cause yu blessure yëpp mi ci après booy bu paree moom mën na la ko woon comprendre nga en tout cas lii daal dama bëgg ni état na yëg lii mooy surtout président am nañ président bu bees na taxaw ci lii ñoom jaar nañ ay policiers yi ci lii ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ñëpp kon xam nañu police actuellement deful liggéeyam. ñun ay ancien militaire la ñu de mën nañ faj suñu bopp mais nañ nañ bàyyi li ñuy def ñun bi ñuy servir suñu dëkk ñoom juddu wuñu. ndax da ngeen a déposé plainte wala yéen famille bi. plainte bi dinañ ko déposé avocat bi dina ko déposé bu jaree jër téeméer avocat bi wallaahi yaasim dinañ ko def. ndax kese la woon wala dafa am ñeneen ñu mu àndaloo. ñoom ñett la ñu woon ñett la benn booy bi ñoom gaañ nañ ko ba toj yàq bëñ yëpp kanam gi même chose mu ngi fële ñu ñu taxal ko ñu dañ koy dañ koy attee waaw ñeneen booy bi geste criminel la doon def koo bëgg rey mu fayu koo bëgg a rey du fayu ah léegi la lañ bëgg di rey nit ki mu toog ñoom nit da ngay wax ak ñoom sax pare woo ñu mbéj la boo ñëwee ci brigade ba soxla kii keroog bu booy bi tëddee foofu kii dafa jam foofu di ko xool waaye da ko ne dégage loolu war na leen ñoom ñu ñoo leen fi teg. mais bi nga xamante ni àkk si nañ xela yooyu ndax fekk nañ ci ñoom dara wala ba léegi amuñ ci ñoom benn preuve. dara amu ci ñëpp témoin yaa ngi fii témoin yaa ngi fi ñu ko fekkee benn benn benn ñoom ñëpp ngi fi amul benn bi nga xam ne ñoom mën nañu wax ne yor nañ ko fekk ñu ci ñoom dara ñoom na bu ñu yaakaar yàlla amul yàlla am na. ñu xale bi wax dëgg yàlla ku ñàkk ki la lu mu am alalam boolewu ko kenn ñu nii di fa même de ah wax dëgg yàlla moom danañ yëngu ci ay laadum ak yooyu yëpp ah. yooyu yëpp mi ngeen ak moom laadum yaa ngi fi xar yu ndaw yaa ngi fi ay ginaar ak yooyu yëpp da koy jaay mais tey loolu xale bu koy yëngu même bu fekkoon ne nekkoon na xale bu bon tey bay def lii mais police moo ko war a mais police mënta ñëw xale yi bu ñu yoree xaalis nga bëggoon nangu xaalis boobu pour lat ñoom bu ñu bëggee xaalis nañ ko liggéey nañ ko liggéey. am ngeen preuve que ne police moom moo ñëwoon ci néeg bi. ñoom la ñu xam leen du ñeen ñaa ngi dëkk fii nañ génn. nañ génn merci beaucoup ñu ngi lay jaale bu baax di la masaw mhm. ah mais jërëjëf mi ngi nii daal maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm parce que bi ma leen ko waxee boobu ba léegi bàyyiwu leen yéen a ngi ñëw waaw man kay li ma leen di ko li ma leen di ñaan rek lii ne état fexe ba yëg ko parce que ñu ne duñu bàyyi état bu bu ñu amul benn firnde ni état def na liggéeyam ñu ne de duñu bàyyi. mais état bu deful liggéeyam leen lan ngeen fas yéene. nañu def nañu rey ñu jex peuple yëpp xam na ne rey rey nañ ñëpp loolu moo gën. policiers ay civil lañu nañu dem jàng dem armée moo gën lii